téléspectateur bu 2STV yi Karajo affaire de bettaate da fi tey waaye ba tay baax na xam nga man moom lu ne attan naa ko waaw ay bett yooyu yëpp bu amee tamit damay accepté waaw Bruno laajuma la <laughs> cadrel te nga jël détails yi du dëgg bul participer ci samay affaire asalaamaaleykum mbokk téléspectateur bu 2STV euh, euh, mbokk téléspectateur yi ah euh, xam naa ne yéen ñëpp yéen a ngi doon xaar émission bi mais ñu ngi jégal bu baax ci retard bi ah tey invité yi ñu am ñoo ànd ak ay waaw looloo tax retard bi am <coughs> waaye ñu ngi leen di nuyu euh, ñi toog seen salle di ñu setaan à travers la 2STV kenn ku ci nekk ci yéen ñu ngi leen di bëggee ci ànd bi ngeen ànd ak ñun euh, di setaan émission confrontation àjjuma ju jot la seule émission qui pense à vous et vous incite à regarder la télé tey du ma ci wet benn yoon euh, dama koy ànd ak sama rak sama xarit Mouhamadou Moustapha Mouhamadou Moustapha maa ngi lay ziar di la nuyu maa ngi lay delloo ziar di la fay <laughs> <laughs> aja nuyoo waaye vuruj muy keneen. waaw vuruj muy keneen arrête de faire damay sangu piscine. waaw <laughs> eh, eh, sama gàddikoor yi bu ñu egsee tamit nañu ñëw. waaw ci yoon parce que tey gàddikoor yi bu ñu egsee. Mhm. papi nañu ñëw. Mhm. yaa ngi dégg foofu papi moo fa génn. Mhm. Euh, euh, alors euh, di nuyu ñëpp ah di ziar ñëpp di wax mm, mbégte ak bànneex saa su nekk bu ñuy jàkkaarloo ak et juste pour rappeler que maintenant confrontation am na page Instagram confrontation tiré 2STV 2STV ak internautes yeeg téléspectateurs ñoom ñu ñuy wax ñu bëgg ñu invité leen. ah jeex na ah, di participer à. waaw comme ñoom ñoo ñoom fi laaj dix mille problème aussi waaw donc. Ah, parce que man dama waxoon ñii. rang du ñëw. te ñun ki koy gérer mi ngi ba France Kirara. waaw ñu ngi koy gërëm bu baax ah. <laughs> uh-huh. euh, wax dëgg yàlla euh, groupe WhatsApp bi aussi. ñu ngi koy ñu ngi koy yi nekk ci YouTube bi Facebook bi après dama lay bàyyi nga ñëw man ma ñëw ci YouTube bi. mais euh, pour rang muy def ndànk ci waaw bi dëgg rang mu seddal daal waaw rang muy sedd tey xam nga nee na tey moom tey tey dama ko woo dama leen woo ci dîner d'affaires waaw ci wax naa leen ko pour ñu bañ a yàq palaat yeeg pour kenn bañ a yàq ah, ci yoon waaye lii ma def tey ku ko gis xam ne Baye Modou Kane moo fi jaar ma sa taag ma sa yer ndaak euh, euh, moom nee naa ko guerre des marques la la nekkee ak man ah bee passé laal na ma ay Louis Vuitton tey mu laal ma Givenchy waaye xam naa ne du ma fi xaar Christian Dior bi kenn du ko fi xaar tamit mhm. du dëgg Baye Modou Kane ma sa taag ma sa yer ndaak moo ma jox lii first class baara day caaxaan am naa fa yére ah bon waaw mais prochainement moom laay sol mënoon ñëw ñu def détails yi jël ko de <laughs> sama lam bi gis nga seen gold la jërëjëf. Mhm. reer bi tey euh, euh, tapis vert ñoom ñoo koy joxe. d'accord hmm, tapis vert ñoo ko joxe ànd ko waa Nourou la Jus. Mhm. Ah, ak euh, ki nga xamante ne moom mooy fruita xam nga fruiteria. waaw Samba kenn la borom Bonavita. fu ne lay génn. tey ñoom nee nañ dañuy dalal ki nga xamante ne moom mooy. rang. rang muy dix mille problème. <laughs> ayca rang maa ngi lay nuyu de. rang caractère nga de lan la. salaamaaleykum d'abord salaamaaleykum tous les sénégalais sénégalaises. di nuyu Bijou di nuyu sama Baye Fall bi. Mhm. Moustapha dëgg la di nuyu waa 2STV yëpp quoi. waaw mhm. ah, di nuyu xam ñu bëgg dix mille problème ñu koy bëggee di nuyu tamit surtout Cheikh Ba maa ngi koy nuyu bu baax a baax. di nuyu daal di nuyu daal ñëpp wa ku lim juum tu vois di bëgg di la bëgg tamit di bëgg tamit gaa yor affaire yi parce que lii tamit yombul quoi. dëgg la rang muy gaaw. rang muy gaaw ma nga noonu dix mille problème la mais tey euh, wax dëgg yàlla gars yi commencé nañ dugg commencé nañ participer. Mhm. Mor borom cheveux yi maa ngi koy nuyu bu nuyu bu baax euh, Abdou Major xaw ma fan nga nekk mais xam naa ne yaa ngi si yoon bi di ñëw euh, ñoom ñëpp maa ngi lay nuyu ñoom ñëpp maa ngi nuyu Baye Modou Malaw Pikine léegi-léegi di ñëw jàggatul dara Alima borom TFM maa ngi koy nuyu bu baax madame Silla jabu mbay ah ñoom ñëpp ñu ngi ci émission confrontation di xaar di nekk waaye da bàyyi fashion borom confirmation maa ngi ñëw ci yow madame Ndiaye mhm. loolu balaa émission bi di jeex léegi ma daal ci jàll au royal mhm. ñu leen di gërëm mhm. di gërëm sponsor yi nga xamante ne ñu ngi àndandoog ñun euh, ci émission confrontation ayca parce que euh, Mouhamadou Moustapha foog naa am na fooy dugg ak 10 000 ñu ñëw ci actualité bi balaa ñuy ñëw ci invité surprise voilà donc comme actualité moment bii nii moom gis nañ ko lu lu am rek moom da ciy da ciy gën def ci sortie bien vrai que ñu bëri dañ ko xaw euh, am image bu ko jox mais on a remarqué que lu am rek moom 10 000 problème day ñëw ak ay médecine bi moment bi ñëpp gi ci wax hmm. donc 10 000 problème foofu tamit am na ci kàddu 10 000 am na ci yëpp kàddu xam nga nag hmm. moom damay am fierté di ko dalal ci plateau hmm. confrontation parce que su ma jumulee 10 000 problème bokk na 10 ans ma 8 ans mës mës ci ñi ko njëkk a dalal ci télé a la doon wax <laughs> waaw la doon wax ñu koy nuyu bu baax 10 euh, 000 kontaan nañ sa teewaay ci émission confrontation ah parce que gars yi ñoo vendredi passé ñu dalaloon kilifa tey gars yi rek laa leme la mais ma indiwaat ñeneen part ñoo xamante ne dañuy participer ci biir émission bi. Mhm. say yeneen invité surprise laa la indil tey. Mhm. tey dama bëgg spécial jubóo tey confrontation foofu laa woote. du dëgg rang muy gaaw. question yi nag daam non rang muy leer quoi. <laughs> rang muy. leer quoi muy leer. ci leer bu demee na maanaam nan wax dëgg wax li fi nekk. Mhm. waxante dëgg quoi. dëgg surtout. amul ay teg main teg xel. ñoo bett ak nit émission Lili man je suis pour lépp de je te dis la vérité. rang. muy gaaw. waaye man rang muy bette man. yaa ma jaaxal. yow xam nga loolu sax. rang muy gaaw dëgg li ma wax. yow rang muy bette yow xam nga loolu sax. xeexu bette <laughs> na ko dal ran ñu pare ko rek ran ñu pare euh, avant invité yi di ñëw parce que euh, ñu leeral ah. ci actualité yi dañuy dugg ak moom ci actualité yow tout temps dañuy gis dangay ngay da ak sénégalais yi lu jëm ci prisonniers yi waaye moment bi gaal gi gaa yi ngi dem. Hmm, bëri na waaw yi ñu ngi dem si gaal yi. ñu bare man def naa ci géej gi nekk naa mool. Hmm. def naa mool que mën naan ay onze ans ñu xam dix mille problème ñu ko xamee ci géej. Ah olof Njaay ni géej Mbambulaan waaw parce que ñu wax lépp ñun mënuñu ñu rek jaar nañ fii fii fii fii nañu comprendre ko ak tant de dafa yàgg yàgg nay am euh, dafay doore feeñ dafay doore feeñ mais maanaam loolu mooy doot ñi naan ko burlee man def naa ko mais ah, dafa man mos naa ko def ay un mais dafa échec si bëtu xol mi defeer yi mais bu demee nag ba jamono jii nag waaw camp saint bi sant bi nii gën a bare gën a metti état de Sénégal eh, war a eh, dafa am lu war a ci 10 000 da ne 2001 ko defoon. waaw 2001 ñëwaatal ci fait lan moo la ci xiiroon ba nga bëgg ko def. non jamono yooyu nga def ko. parce que jamono mais comme li yi di génn rek ba dugg si gaal yi màgg naa sama maman amul benn moyen bi. dëgg la man nekk naa fa mag bu góor. ma ñàkkante ko di dem géej nekk mool di nekk mool sama jàng sax looloo ko teela a yàq ma nekk mool nekk mool ba ba ba benn moment bi samay copains yu bare si géej gi nañu deewee parce que géej amul sécurité. géej amul marine tey bu demee tey ba benn bateau jóge sa àll ba ñëw ba fii Sénégal wutu daal fi tuur benn euh, benn chimique poson kon ñun ñun. nag day jóge ci actualité bi dem si beneen mais boobu dinañ ci ñëw léegi wax ci clandestin ba tey lépp si wàllu clandestin la parce que géej bu demee ba raaf bu demee ba ba na jaal géej gi jaay ko. Mhm. jël géej gi jaay ko ay tubaab yoo xam ne ba pare signé benn contrat boo xam ne pendant cinq ans ñuy teel suñu géej mhm. léegi ñun jeunesse bi nekk ci Sénégal bu ñu amul lu ñu joob mhm. fu ne na ni jaar yow mi nekk ci taabal bi yow mi sa taabal nekk ci mbedd mi bete maire bi mayu la jàmm guddi mayu la jàmm bëccëg yow si maan bi ba policier bi mayu la jàmm guddi boo ko joxul tuut taw doo dem moo tax ma ne fekkoon du bande di li fi nekk laa lay wax xam nga yaakaar ne da nga ñëw def clandestin est-ce que xam ngeen gars li ñu dund seen biir kër yi lan la wa sénégalais yi di géem seen biir gàlle yi entre famille ak ñeneen ndax da ngay juróo si ko ñaaw tekki woo ay kii mu ngi faj bu mu gàccee mais da xool foo jaar xool noo ko lijjantee ñan ñooy lijjanti loolu dégg lu mu wax de. Mhm. yoo xam da ngay marche arrière quoi wala oto bi arrière nga di moom nga yëg nii quoi. non c'est-à-dire dañuy mel ni sa buy. non <laughs> maanaam nit ñi li ñuy dund. maanaam mhm. la population du Sénégal. Mhm. ci nit ki di nga dund benn xol souffrance boo xam te ni. doo ko wax doo ko mën a wax. te gars yi dañu goree. am na ñoo xam daan toog un an xoolal gënu mus a am dix mille bu wow loolu. temps bi métti na méttaay boo xam te ni ndax borom àll la ñooy sëy seen biir. baadool yi di sëy seen biir ñoom ñooy ànd seen biir seen appartement yi ñoom la léegi yow mii nag baadool bi nekk si kër juddoo si kër nga war a màgg war a mel na comme nit ñi am xaalis comme nit ñi mënoo juddoo Sénégal màggee Sénégal yaroo Sénégal fan ngay sonn biir Sénégal parce que l'état du Sénégal xam nga waa clandestin nekkul da ngay ñëw dugg si gaal am tax nga fippu dugg si gaal yi am nga la doon job amoo mu dëgg la am nga ko doon job dafa am ci ginnaaw quoi. waaw nangu la fay parce que yow mi nekk jeune di job di dund pour am dara kenn jàppale lool yow boo gisee foo jaar da nga fay jaar. ndax mënoon nekk bu Sénégal te boo xoolee fii gars yi doon sonal nit ñi muy maire bi doon sonal waa mbedd mi ñuy job muy policier doon sonal ko taximaan yi da nga jàpp benn jeune doo ko sax baal fat fat kooku day dem ba day nekk benn rancunier. fippkat lay nekk day nekk benn ra maanaam rancunier parce que doomu aadama boo demee ba ba may toog liberté man na Sénégal ngay suñu jàpp benn Sénégalais di ko rey si mbedd mi ñu taxaw du seetaan mi benn Sénégalais bu boobu yow mi tey boobu léegi benn birig si koñ bi nii di jaay ay coob duñu jënd si yow te lakkat yi bu ñu ubbee ñoom ñoo jënd seen biir ñoom seen biir la moo tax ñun amuñu boobu solidarité léegi loolu loolu loolu c'est la faute à qui mais l'état l'état l'état ak parents yi ndax les responsabilités donc sont partagées. non non état ak parents yi. ndax fi nga juddoo sa gàlle fii fii muy man muy yow ba ku su nekk dëkk nga foo xam te ni am na ñu la fa mën a dimbalee mais dañuy xaar ba nga dee ñu indil nag ngan di nag di jooy amul sens quoi. nit boo eh koy dimbali da koy dimbali ci ba muy dund di nooy loolu loolu ñi mu dëkkal la population bi et li nga bu fekkee da nga état moo ci am part de responsable ci ban ci ban côté. si beneen côté maanaam si homme de tenue nekk si le terrain. Mm-hmm. ñi nekk pouvoir ñi nekk maire ñi jàppaate kat tey nga fekk benn maire bu jaay mango nga jàpp ak tab yóbbu ko maire mu ba saa gis waa maire yi bay gàddu seen xool ak camion mais mais mais dix mille tey ni ngay waxee li ngay wax am na importance mais est-ce que gisoo ni que ku jaar fi nga war a jaar comme ni nga koy waxee rang muy leer ku jaar fi nga war a jaar est-ce que tey jii euh, euh, boo boo demee parce que mairie yi dafa am marché marché public am yoon am mais est-ce que gisoo ni que gars yi dañuy ñëw seen buntu kër bu neexee ñu daan ñu mbaar ko bu neexee ñu pour yokk tuuti daal di koy kiosque <coughs> bu neexee ñu yokk tuuti daal di koy laal magasin est-ce que loolu yoon la. non loolu moom loolu du yoon mais am na ay kër yoo xam ne ñoom seen kër seen boppam dañ ko tabax am ci boutique magasin mais teew day fay. te mbedd na ah, la wax yoon la territoire la na wax. yow saa boo xëyee da ngay fay impôt ndax da nga jënd sax benn tàngal loolu impôt la de ñoom ñun ñoo leen fay kon léegi ñoom ñun dañu war a yërëm maanaam il faut benn xol yërmaande ci population bi boo fekkee benn baado la buy jaay taabalam même boo ko nar a jàpp sax mais xoolal kii waaw lu ko yàlla jox quoi nga yërëm ko baal ko mais toujours dañuy subir papier loi boo xam te ne n'existe pas ay préfet bind lii da koy def préfet du yàlla maire yi du yenente dimi man li ngay kaas ah. euh, yow man li ngay kaas xam nga pourquoi parfois du ma la comprendre parce que ay idéologie yu bien nga am li yi ngay kaas dafa am importance mais moi je me dis que canaliser wu ko canaliser woo ko quoi parce que yi ngay wax yëpp dafa am importance ñun ñu ngi jógee ci immigration clandestine ba ci maire bi jaay table bi ci marché bi xamuñu ban yoon lañ aw ba ba wàcc géej <laughs> parce de jaar si gaal yi nii mais dix mille ñu jaar si gaal yi ah. fii na nekkoon di job di liggéey mais est-ce que yooyu yëpp dem gaal gi mooy solution mais dafa tar mais dem gaal gi solution non dem gaal mhm. man dama conseillé kenn muy jaar si gaal yi je te dis ah. la vérité mhm. ndax dama gis gis booy bu pawnal may dugg si gaal Ah, du ma ko def de je te dis la vérité mhm. mais tamit du ma leen du ma jël lépp ma takkal seen kaw mhm. ndax tool tamit parents yi tamit parce que da ngay gis naan ay da nga war a tekki ay diw muy faj muy faj ba mu gàccee ay diw da tekki na moo yooyu nga koy dégg mhm. yow nga judd si gàll mu am koo xam ne mu ngi Europe di ñëw di def di gérer di paaw na lu ko neexee di gem nu ko neexee nice quoi yow mi ñëw sax si yow mi dëkk si kër yi sax nga nekk magam wala papaam sax juddoo si kër yi yoroo boo taatee añ doo añ parce que monde bi moo toll foofu nag léegi moo tax booy da nga koy ñàkkante pour am na xam na ni ko amul xaalis doo nit. Hmm. mais borom àll nañu tagg fii. dégg naa 6000 di ko wax 6000 6000 tarkindaa. waaw hmm, day wax lu am importance parfois. non dafa leer dafa leer. Hmm. dafa leer affaire bi loolu wu fipp mais mais 10 est que ni ngeen koy waxee ñàkkul teggin quand même parce que 10 000 rang muy saaga day mel ni ku dof. c'est quoi le problème. non pourtant boo xoolee man ay ndey laay wax ay avant départ yi il faut référer ah. hmm. nga siir maanaam xalaat quoi <laughs> li ngay xaat ko même booy gém sa gém woon ci waxta bañ cee dugal nday bi. mais nday yaay nday euh, mooy yaay. mais nit ñi nag ñoo xóot maayin bëgg indi ay pral naan waaye dafay saaga. day mais nag ah 10 000 ma de yow dangay ngay saaga nday. mais ñenn ñi nag damay dangay léeg-léeg nga teppi léeg-léeg nga tapat ñenn ñi damay teppi. waaw naa de. ñenn ñi damay teppi ñenn ñi ma xorom poole. waaw d'accord non non ñenn ñi ma paaw na leen ñii ma ñaanal leen. Mm. ñii ma jàngal leen suratu Yaasin amul sentiment. mais li ñi ngay fi daaw la. non ñoom ñoo géem man ku tegg sa yoon man du suma loolu parce que xam nga mun naa la ñaanal tey bu subaa ma tagg la ma la baal maax parce que da fekk nga géem lu nice man waa clashé ma nit pour nekk ak moom noonu wala benn genre vandam nii fu ñu gisee lekkante dama la classe pour nga répilé waat delloo waat nekkaat nit. wax mais di yow ñëpp ngay classe yow da ngay classe état yi da ngay classe rappeurs yi nga yow tam. di non ni nga classé nii est façon bi nga koy waxee nii est-ce am na teggin. non yow gars ñu ngi wax loo xam ne nii moo gën a tooy xepp li may wax nii xasaw xun ñàkk kilifa toog fi di wax lu leen neex. mën fen mën teg dil ñun nous sommes là pour les peuples. man si mbedd mi laay juddoo si mbedd mi laay njàpp lu ma gis ñu koy wax si mbedd mi man dama koy kalaate si kaw. Mhm. c'est simple de. mais mais mais dañ mooy li ma doon li ma doon li ma doon wax toujours yow yow ku ne ngay clash di bi même boo daan rap sax. ah même boo daan rap sax da nga daan yéeg ci kaw seen i classe état bi classe ay rappeurs yi classe. pourquoi ba léegi ba léegi ba léegi. te maa ngi da nga bàyyi rap ni maa ngi pare sama album nii bientôt ba léegi ba dama koy def maa ngi pare sama album te maa ngi ci classe rappeurs yi parce que affaire hip hop la quoi xam nga rap rap la ba tey exemple boo jëlee tey benn Fou Malade exemple waaw benn malal benn Fou Malade la quoi. waaw benn Fou Malade la quoi moom Fou Malade. waaw boo ko tegee ci cadre concert hip hop. mais en tant que turam moom am na lu ñuy dund. en tant que côté game game la hip hop la quoi mais nekkul affaire de règlement de compte wala affaire de leneen man koy bëggee bu baax quoi. mais dafa leen jàppal daan ñoom wax ma ñoom ma la sut nañ de. maa yooyu wax de laay wax quoi moo nekk si guerre moom bokk na si ñu ma doon défendre quoi. waaw parce la moom moom ambassadeur la foofu bu ko mu def comme <laughs> si kas bi ñëpp maa leen di mooy sa problème yeneen rappeurs yi yow. waaw non ñii am na ñenn ngi sama concert la ñu mën a maîtriser. waaw yaa non Y'en a marre benn benn la woon boo xam te ni jotoon na am jotatul am. ay rappeurs yu dagale woon rek teg seen benn maayen ay bandi ay nante te xel ñu xool ni ñuy lekk xaalisu Ablaye Wade roceeg waat ñu fal Macky Sall. regretté ko quoi. dernière foire au problème bi amoon Y'en a marre sama exposition moo jël paie man. moo tax ñoom bu naan dix mille problème ñu ngi nii naan dix problème boobu bu mosu bokk fii dañuy fen wet yëre ni sol mooy seetu xool faut pas forcer bi bi joobu kilib bi sa gàll Fadar Baro ba parcelle PA maa ngi foon foo ba ay 5 heures matin te ba ma ñibbi dama njàpp ñibbi dox parcelle laa doxe ba Mirina yee seen bopp la ni joobal donc looloo tax yow nga démission wala dafa am loo jot a jot man mu xam boobu c'est dëgg dëgg ma la man du ma ma yàgg si ay dóorkat yow da nga gis ne ñooñu ay dóorkat lañ quoi moo tax nga retiré wu ëpp gis nga mm. li ñuy géam ñu ngi ni xam nga yenaa maa daal amoon na am na jàll na ko waaw kilifa naan kilifa daa si moom muy fuural mais dama koy ñaan moom boo amee lu muy géam dëgg-dëgg fekk dëgg la si moom na ah, nag kaasal aussi xool waa Kaolack quoi ah kaasal na waa Kaolack keroog foo ne kan kaasal na waa Kaolack fii waaw kaasal na waa Kaolack mais artiste la ne du leen kaasal non mais da leen war a kaasal mais loolu waaw fan mais fa atli si jaar moom waaw fa la jaar mais da leen war kaatal par force mais dimi problème yi yow compté nga sa problème ak gars yi non fii yamul ay problème fu bisu yow yow jàppante nga yow yow te xuloo nga ñëpp bu dee ay problème yaa ma këppale fuuf problème sax dugg moom ay problème moom yaa ma ñëpp nga xulool xeex nga fii doon da ngay tamit ka laay xeexal tout le monde dimi nekk ma gis naa la kii keroog foofu noonu gaañ boo noonu xaw ma damaa sibir la woon xaw ma waajoo noonu mbalax maa moom mu tudd. damaa si xanaa xamoo damaa si biir ba jaafa si biir ndeysaan abu cobolo <laughs> gis naa la moom fi nga koy ñiimantu ndeysaan quoi. Eh, dama ko ñiiman gars yi baal leen quoi rang muy dal. rang muy dal ay cëmbar waaw eh, waaw léegi nag nga mën gars yi baal leen lu tax ma leen di baal. non yow da nga baal gars yi. non non man. yow rang muy saaga ndey saay su la neexee. non man dama nga yabaate réew boobu góolbatiku. moo naa tudd yeneen turu artistes yi mais dama ñëw ba ma bañ ba ñu la dix mille problème mais 10 000 problème xam nga dama lay njëkk a invité. Ah. man sa invité ah, sama émission ak yow continuité la. Ah. parce que bul fàtte huit ans ci ginnaaw waxtaane woon nañu waxi 10 000 problème bi du dëgg. <coughs> ba ñu invité woon vrai 10 000 problème bi. dafa leer non dafa leer parce muy arrêté la woon dëgg dëgg la de. <laughs> Hmm, mais sa continué bi yëpp 10 000 mais 10 000 ana la say. rang muy wat ndel wat say waa Mbàkke yi ñoo ko wat loo def bañ wat ko policier Mbàkke yi ñoo dagg sama rase yi nan nga def mais pour ñoom ndeysaan mhm. nga jàpp nit man benn policier bu tudd ko la Siteu moom a jàpp ndeysaan yow amuñu droit humilier la nag man je dis que sa dagg rase yi humiliation la ko xam nga soxor ak bon moo gën a bon yow man yow man du ma Pablo Escobar man du ma Michael Israfil man du ma Uno du ma Alex man du ma benn bandi du ma de ndeysaan benn gaañ laa rek comme nit ñi doomu aadama quoi. yow nag yaay <laughs> yàlla wàcce ma fi ah waaw comme ni mu ko waxee si alxuraan wa maa umiru illaa liya'budullaa jaamu yàlla wàcce ma fi pour ma daw sama ay mission si di lance ay message moom moo ma gisee xoola teg ma choc ndax man xam nga ñu bare maa ngi dégg ay képp ku xool journaliste sax yooyu seen làmmiñ du xotteeku. Mhm. moo tax ma wax moo tax chaque fois man damay répète damay répète moo nan avant de loolu. damay wax loolu quoi toujours quoi. ku nekk nag naan dix mille problème lii. te te ndeysaan lu ma lu ma waxul kenn du ko xam. billahi ma ñu ma jàpp xool mënoo jàpp nit ki pour exemple rek mënoo jàpp nit ki une heure du matin ah mënoo jàpp nit ki une heure du matin une heure du matin une heure deux heures trois heures quatre heures mu siiw si presse yi ndax jàpp naa dix mille problème. yow mais da nga gis ne moom da nga utiliser pour siiw en fait. jàppee ma dara. boo ko laajee mun moom. ah gars yi nañu jàppee yamba tunde xam nga xam tax na ñëw ñenn gars yi. rang mu yamba ñenn gars yi mën a fen ñi naan saako yamba la ko jàppee <laughs> ñu ay kilo xam nga gën a bon mooy fen eh, eh, xam nga duu moo gën a bon baal ñu rafetal ko rek. non waaw rafetal ñoom la defal diine d'affaire. waaw non ay boisson la rek ma lii. après da nga koy naan ay jus de fruits rek. fruiterie yaa kenn dafa ay fruits ak yooyu. dafa métti quoi rang muy naan rek. waaw waaw jaajëf waaw moom man cité laa waxale yow mi ma jàpp cité ba dagg sama rase yi. policier bi. moom moom xamuñu policier la xamuñu lan mais li ngay def nii est-ce que du tax policier acharnement mu am acharnement contre yow policier yi du ñëpp a du ñëpp a baax du ñëpp a bon am naa si ay xarit ah, man am naa askan bi lañ fi nekkal kat am naa ay fans gendarme en pagaille am naa ay fans militaire ay fans pompier maa ngi leen di bëggee am naa ay fans policier mais am na policier yu con ah? je dis la vérité ran muy gendarme yow da ngay dem de sa waay déggoo ma de da ngay dellu 100 mètres de li ma dafa leer yow parce que mënoo jàpp mënoo for nit Mhm. mënoo for mënoo for nit mënoo jàpp nit ki exemple neen dan ma jàppee bon bet xam na la lan la for foofu mhm. ñaari juin bon la fa for mais ñaari juin bon dina tax nga jàpp doomu jàmbur yóbbu ko kaso ñaari bon ñaari bon dina tax nga jàpp nit ki dagay rasaam ñaari juin loo xam nit ki da koy at ñaari bon dina tax nga jël nit ki jël turam wa jël turam jàll ko si ay internet xanaa waxoo ko lii consommation la consommation jël turam jàll ko si ay internet di ko jaay di ko jaay di ko jaay ay journal li du dara di ko jaay ay journaliste man nekk si man nekku si karat li nekk si man si man la nekk ndax awalu ma jal muskallafin tasixul imaanihi fii la nekk fii sama dënd la nekk nekku si ay rassa rassa mooy karaw mooy cokk mooy leneen da nga koy wet mu saqaat nga wataat mu sëqaat ne tente pas rang muy sëq rang ten taw ngay am. naka defaatal parce que mënu ma gëm benn affaire yow nga. def nii lan la yow. day jaaru te jeelu Mbàkke. Ah. damay wax nag pour état bi. pour état bi pour état bi maa ngi ñëw pour état bi dimbali leen. Mhm. jeelu Mbàkke moo gën a. waxal li nga bëgg wax yëpp si àdduna message yi dafa am important ndax dama ko. non rang muy jàllale ay message tey tey waxal lu la neex. jeelu Mbàkke boobu gis jeel bu bon. Mhm. jeelu Mbàkke amul sax oto bu ñu livré ay prisonniers xoola Jurbel billaahi jëlu mbàkke butine bi xam ngeen lan la eh, butine bi waa jëlu mbàkke bi mhm. saaku soble saaku soble moom mooy xolal moom mooy kii bi rido bi jëlu mbàkke jëlu mbàkke moom néeg boo xam ne ñu ngi koy woy xool fuur ba ñoom ñoo ma jàppan dugal ma fa mhm. moo tax ma xam la fa nekk wax ko man saamet laa xaman di ko wax léegi ñoo ma jàpp yóbbu ma jëlu mbàkke ba pare te polisu mbàkke mm. mais naka ngay jàppee nit di ko dugal sa duusu puubukaay mu koy fanaan non ñi pauvre nañu waaye ñaaw na. waaw ah, loolu du yoon non dafa ñaaw douze puubukaay la ma dugal ma tëdd nii. billaahi wallaahi maam benn gàmban waaw biir yi moo doon daw mais xet bi nu doon dal foofu ak tàngaay bi nekk Mbàkke yow naka laay taxaw man naka laay taxaw man wata kaso Jurbel ma taxaw si ma taxaw tribunal wa Jurbel ma maa taxaw man euh, waa parquet bu Diourbel laa taxaw ñu may jugé waaw pour ñu jugé la waaw ñu libéré sama kanam ñaari nit ñoo xam ne sama kanam kenn nga xam ko jàppee mm. billaahi wallaahi barka alxuraan karim cinquante paquet la nga ko jàppee baal ko kenn ki vingt sept paquet ñu nga nekk référence nekk porteur de voix ah, tey ah. moo tax am am na yoo xam ne waroo ko def sax dañ la ci jàppal man su ma neexoon toog man la man je suis fumeur je xool yow tu koy def loolu fii ñëppay taal bu leen son fii ñëppay tox bon. kaba taal yow temps bi fii boo. <laughs> Eh, fii boo eh, taal foo nga xam ne. jigéen waa jigéen ñi man ci rang muy sos yaa nga waxoon sànq bàyyi leen réew mi ñu fi nekk jeex. rang muy sos sos. amul sos de fii ñi dañuy mos. rang ngay sos ñii di fóon eh. ñii di pawnal ñii di final ku ne yaa nga si non te waxoo ko. mais est-ce que man ngay jiñ toxu yamba ndax bon yamba nu mu gis sax di pare nu mu jàppee saako yamba. waaye ngay dem sa waay ñaata ponkal nañ fi jàpp rek ngi si ay affaire fii nii kase bi. mais ñi féere doomu jàmb nag wax leen si góor jigéen yi ni jàpp ñuy mariage ñoo ñoo jar a lijjanti. les amoureux de homme yow góor boo xam ne doo biir. soxla ngeen ne góor jigéen yi fekkoon na ngay biir sax ëmb sax am doom sax ñu d'accord yow doo biir astafurla ba nga lekk ay kew nga lekk ay kew comme jëli di macc ay Dakar di jafte ak yooyu sax dina mën neexoo mais dara mais c'est bizarre waaye ah mais mais xale ni nga macha allah oh, d'accord léegi tamit génn ci am nga jëkkër gis nga rang muy kii toxkat yàmbaale jël laa nekkoon nag dama ndaw sànne am faxa takk ma xale bu pare bi ngay laajte loolu ndax am na jëkkër peut-être boobu yaa rang muy toxkat yàmbaaga rang mooy sa xel new fi. ah tuqar la kooku. <laughs> yow laa wax yaa yàq dër dër jëgër de. <laughs> non dafa leer am mbàkk li may. waaw loolu d'accord léegi est-ce que police yi nekkuñ euh, sa yenn sotti yoo def ñu jàppee ne waa ji dafa réew wala waa ji ay waxam tegg newul moo tax ñu jàpp la non waajooyu benn nit la rek bu ma gis waaw waaw mu enal ma rek waa waaw léegi d'accord mais moo xam ne affaire de mu mhm. gis nga rasta mhm. rasta dafa grave si doomu aadama mhm. pour en cas yeneen rastamaan yi ba gis na rasta boo demee nit ki bu demee bu nekk si yow. lu bëri da nga koy mais mais d'accord xam nga tey émission bi dañuy continuer tey yow yaay spécial invité bi. Mm. mais euh, dafa am ay invité surprise yoo xamante ne dama ko amal premier invité surprise bi euh, bokk na ci Ouzin Keita yow rang am moom problème moom. ñooñu ay nit lañu rek ñun da leen di dimbale rek. merci da leen di dimbale. parce que dama bëgg sénégalais xam. waaw ne que 10 am na yërmande parce que am na beneen vie non kenn du kenn tey. kenn du kenn tey man maa toog tey dañuy waxtaan nee mais bu nu tooñ nanu nekk nit daf yëfu nit wax wax góor quoi ñoom li ñuy gém na ko gém ñu bàyyi ma li may di ko jàllale di ko pour nit ma jàllale ko ko jàllale yow dégg ma expliqué la daaj ma jus ma naan en tànda daaj leen ko jus jox ko jox ko bi. laal ko critère bi non mën nañoo jëlal boppam. jëlal fruité yaa jëlal fruité. jëlal yële yële da am énergie. mais yow sa émission bi ma xool rang muy naan buy. <laughs> fruité yaa. fruit la de. waaw dugalal. nga ne ko rang muy naan mais yeneen télé yi tamit ko wax loolu doon lekk bi <laughs> mi ngi ñëw. tapis vert moo la defal reer tey. non rang muy wëlbati ko weew lan la. wëlbati pipette bi du fii. nañ ko def nañ ko defal jàmm lampe bu fekkee euh, Ousin pare na na Ousin ñëw rang Ouzin di toog ci plateau bi vuruj muy Ouzin waaw. bëree. ñëw. yow ne bomba a right hand of the Kablan Sall simulation at 10,000 meter from Lahore rang. mais dix mille avant Ouzin di ñëw. ñu jaar si gaal avant Ouzin di ñëw nga ba ma mais dafa ñëw takk ñampe man ñampe bi laa bëgg a xam pour lan bu tax. non saa xam nga njàmbe ba lii mais si douze la nekkoon si douze. njàmpe ñu ko xamoon si douche quoi pour sangu mais maa génn njàmpale douche bi génn ko si mbedd mii hmm. pour ñu raxas xol yi est que dégg nga baax ma leen njàmpe da nga doon dugg douche nga sangu bàyyi fa njàmpale mais man dama ko génn douche bi takk ko sama ndëgg doxal mais est-ce que njàmpe mooy raxas xol non a message la waaw foo déggee. est-ce que message bi war naa mën a raxas mais foo gisee njàmpe lu tax jëloo saabu teg sa bopp bi non xam nga loolu da nga ni ko tilim foo gisee ah, njàmpe xol bu ñuy raxas kay dafa tilim xam nga xol xam nga man dama lay jàllale ay message man waxuma pour nga critiquer wala ngay waaw man critiquer wu ma damay waxtaan ci jàllale message bi ngay jàllale mu wax la boo mar fii tamit doo ma jox buy tamit bëgg ma moom de <laughs> wax leer na quoi xaw xiif de tapi ni hmm, reer bi mi ngi ñëw tapi vert fifty mi ngi indi reer bi rang muy continuer hmm. mais dimi yaa ñu moom doo continuer mais saa nga lekkaale tamit <laughs> waaw d'accord dina laa la woo de wax mais bii dina xam na nga fi après hmm. da ngay invité yeneen télé yi. Hmm? góorgóorlu bu ñu invité artiste ngir yàlla ñu. defal ko lii ñaari ndox sax mais dara. yëpp nit doo ko jox mu naan tey nag moom franchement ay star am ci plateau bi. Euh, euh, <laughs> ginnaaw oh, kii sañ se na kii Christian Dior laal yow. kii doo comprendre. yow kii sañ se na de. oh kii sañ euh, nga sës na le. ayca voilà. rang muy sës. rang muy sës. rang distanciation bi. ay ca feebar bi quoi. mais yow kii sañ sa na de. Ah, merci beaucoup. xam nga li ma sonn moom ginnaaw. Euh, asalaamaaleykum asalaamaaleykum. dama lay bàyyi nga nuyoog askan bi. sa na de. Euh, bisu asalaamaaleykum yàlla mujj si bi sant sama ñaari waajur maa ngi sant waa àdduna bi di sant waa Sénégal di sant euh, ñu ñi ma bëgg te yàlla tax. Mhm. ñi nga xam ne ni xuloon man. Mhm. ñi nga xam ne xeex ndax Ouzin Keita ñi nga xam ne dañ bëgg Ouzin Keita ñi nga xam ne dañuy àndal Ouzin Keita bàyyi seen lépp di àndal Ouzin Keita bëgg te yàlla tax di àndal soppe Ouzin Keita yi di ñaanal sama yaay sama papa sama yaay jiital suuf yann euh, yann suuf ay seen kaw si bakk Seydina xam sang-sange di wax tam ah ki ma solal muy Awa Balde euh, sama jigéen sama xarit sama lépp wax dëgg yàlla macha allah di nuyu ñëpp di di la nuyu di nuyu émission bi di nuyu soppe di nuyu fansé di wax na tay la tay suba la nettal gi gannaaw suba nag li ñuy waxaat la merci beaucoup Ouzin euh, euh, kontaan nañ bu baax ci dal bi nga xamante mm-hmm. ne euh, dalal nañ la ko ci plateau confrontation mm-hmm. ah muy muy su ma jumulee c'est la première fois ñuy doon plateau confrontation mm-hmm. amoon na bu ñu bu ñu jotoon def sax moo ko fàttalikoo ko waaw boobu àggul woon waaw boobu àggul woon ay at ci ginnaaw ndeysaan mais contentement la ñuy am ci dalal bi ñu la dalal. Mm, maa parce que man fierté la wax dëgg yàlla dalal la ci plateau confrontation. <laughs> dëgg la bisu ci anam bu nice bi. Mm. sañse bu bëgg dee wax dëgg yàlla. dëgg la noonu la. Euh, tey nag damaa gis ni ko wane nga beneen facette comme ni ma la ko waxee woon. Mm. <coughs> tey foog naa foofu nga génn. dëgg la waaw tey moom vurujul varajul. rang muy sañse tey. Euh, ndox euh, doomu bu fi naaw bu fi naaw bul jàpp ci benn doomu aadama tey naaw ma përéew ma bërëngu ma ndax doomu aadama ni da ngay màgg da ngay nekk matière Mhm. man Ouzin Keita damaa man Ouzin Keita oh. damaa ngéntuwaat sama bopp xam maay kan xam li ma bëgg. damaa war am damaa damaa war yu baax yi. wax ma de damaa war am cité ñu ma xam ne cité a am mhm. dama kaa war a amee télé. Mhm. pourquoi man Ouzin Keita chaque jour benn Ouzin Keita Ouzin Keita ñu koy xaar si ay bërëngu si ay përee si ay cëppeelu maa ko dépassé damaa nekk si leneen. di wax guddan tànka di almaanaan guddan tànka kon guten tag mm. d'accord euh, kontaan nañ ci message bi parce que tey euh, euh, bu ma leen dajalee tey ci plateau bi dama bëgg ñu gis ci ñoom Big Taf beneen image gis ci ñoom beneen facette parce que mm. ñoom ñii nit bu liggéeyee leen di ba vendredi defe naa YouTube bi fi mu egg si ñi ngi ci xaw ma ñaata mille de musuma lii suma ma juumulee ñoom daba ba ku ñu fi mës a invité yéen yéen leen raw ci vues yu ñuy setaan tey mm. waaw donc tey sénégalais yi ça veut dire ni bëgg nañ leen mm-hmm. bëgg nañ leen te respecté nañ leen ndax seen ay jot la ñu bàyyi ñoom ñëpp di leen seetaan ba heure bi tey bëgg nañ gis beneen image Ouzin kayta beneen image dix mille problème ak beneen image suñu gan beneen bii ñëw du dëgg euh, euh, euh, Ouzin maa ngi lay dalal encore. ci plateau bi bisu maa ngi lay fay di kontaan si yow di la di jox sa wàccuwaay. tey nag gis nga plateau bi ni mu yànjee di mille problème moom suñu invité donneur la. dëgg di dix mille problème ndeysaan. dix mille moom xamante leen. Ah. xamante nan xamante ngeen. màggal mm, Touba bi paas ñoo bokk fu ñu daan. Ah, ah yéen a bokk fa daan. biñ koy arrêté fa lañ leen mm. na man nag euh, déggoon naa ko waa gëmmu ko woon xam nga xam nga Sénégal nañ bëri ay dama yaakaar rumeur la euh, gëmmu ko woon. te wax dëgg wax dëgg yàlla man dama gëmmu ko dama yaakaaroon benn bës bi jàll wala ñi ñoo kéré ay sos. moo tax dëgg yàlla gëmu ko woon. mais yéen ñaar mosoo leen am benn benn problème comme yeneen yi yéen ñaar mosoo leen jàppante. non benn yoon waaw ah, benn yoon benn ah, yoon benn yoon ngeen amoon problème. mais nit la nit la comme nit ñi. dama koy waxaat parce que dañ toog Touba ni mu ñëw ma ne ko man de bëgg naa ndax ni nga ñëw Touba nii. ndax ji Serigne Touba moo la fi indi man te moo fi indi kon mooy loolu quoi. waxtaan nañu fa sax dafay photo n'est-ce pas. waaw waxtaan ah yow lii nice na waaye damaa bëgg bonne volonté yi. numéro bi nañ ma ko affiché gars yi nañu woote defalal ma ñii teraanga parce que loolu laa bëgg tey ci émission confrontation ñu am teraanga yaa ngi dégg ba voie bu bees bi nga xamante ne ñoom moom la ñu jël rang muy doon ay teraanga tey confrontation lii laa bëgg de loolu laa woote de sama bëgg ñu bu dool fan sa Ouzin Keita tey waaw soppi di mi problème dama bëgg waa Sénégal waa àdduna bi ngeen dugg nit amul lu du ko bëgg ay mbokkam ay xaytam di waxtam woote leen tey bu waay wootee dinaa la wéyal dinaa waxtaan a yow waaw en parlant de woy boobu noonu euh, Ouzin Keita hmm. ba woy hmm. ma bàyyi wooy mooy nen Mansour parce que mu dégg nga ne mën nga bëgg nga bëgg a tabax cité Ousseyn Bari mais yaakaar nga ko ci waay mm. ba ma euh, ba dawlu dara Ousseyn Kayta ñëpp benn mankaan nga ko jàppe woon mm-hmm. Ousseyn Kayta ñaata ñaata ñaata Ousseyn Kayta dem studio ñu dàq ko dam ah dem naa studio man bëgg génn son studio bi dàq ma ndax lan imrée ma benn benn animateur bu siiw moom la jëkk yóbbu sama seede mm-hmm. mu sànni ko imrée ma Hmm. mam mer maa ngi àndal. Euh, kooku kan la kan la. du ma wax turam ndax du ma doomu aadama. ah accusation yow yaa ne de bu siiw. loolu nga ko pare <coughs> rang muy leer. ma ba hmm. ba keroog ba nga nekkee di galère ñoom ñoo doon ngand ngand. na hmm. ko loolu. loolu loolu ko mos a def. waaw boobu mu ngi liggéey def na lu ñaaw def euh, boobu temps Alaaj Baay dafa juum foofu waaye euh, sama xarit bi lu baax bu euh, ma temps boobu mu ngi liggéey Sen TV <laughs> Zik FM waaw moom lañ liggéeyee boobu dafa sonnoon nit ñee ko waroon waaw mu ñëw jox ko seede bi mu teg ko dégg ma naan ah, mu teg ko ne dafa mu sànni ko <laughs> gëm ko woon non est-ce que nekk doon foo ak yow comme mu xaar ba ma xew mm. mu bëgg ñëw dafa jaare si ku baax muy bu baax bu bu DJ Bora DJ Bouba. si rajo ne ko Ouzin Keita ma ko bëgg a invité wante Ouzin Keita de dëgg bu mu ka bu ma ko invité ba du ma indi problème. Mm-hmm. Bouba ne ko du garaaw naa waxtaanam Bouba waxtaanam moom waxtaanam man baab ma baab ma baab ma après si la ma njëgandul woo pour ma jéem a ñëw émission bi émission boobu sax nan maa fay pour ma ñëw. ah bon waaw dama mujjee fay pour ma ñëw def yeewu yeewu leen. nar a kaa wax mm-hmm. nar kaa wax bi ma kaa wax moom na ko moom nee na Ouzin Keita kat man dëgg yàlla yaakaar ma woon noonu. loolu nag Ouzin day am parfois. parce que xam nga à chaque fois du ñëpp mais pap pap moom ku ko xam-xam ko ko xol bu rafet. te nit ku ak ku participer ci carrière yu jàmbur yi man loolu man mii sax mës na maa dal. te tey bu ma la waxee ci ki ma ki ma dal euh, waxuma man la raw de waaye raw na ma ba rawaale sama artiste ak keneen keneen ku mu doon su ma ne la MHD la woon doo ko sax gëm te MHD ku ne xam na ne artiste planétaire <coughs> du dëgg loolu bersemba ba muy yéeg te dama ko wàcce du dëgg mais day day day day am Euh, da dalay dal parfois nga nga nga tiire ci leçon xam ne que wax dëgg yàlla loolu ay ay erreur la rek. waaw waaw bis bis doomu aadama. Hmm. doomu aadama. bis yàlla suñu euh, la. peut-être ci moment wala mu doon soo on passe à autre chose xam nga nag Alaaji Baye ci bi nit bu ko xool si nu mel. bisu xool ko si yërmaane xool ko si sa xol bu rafet bisu. Hmm. bisu mu dama xeeb doomu aadama. bisu bisu man damay fekk nit ñoo xam ne ñoo xam ne nañ xaw a wéradi bi dama ñëw kafa moom reetaan na moom nga dëgg ndax nit ñi ñu wéradi noonu bisu yàlla suñu borom mun na dogal ñi ñu wéradi noonu yàlla suñu mun na dogal ñu nekk ay wàlliwu dëgg la moo tax koo gis bu xeeb bisu kenn du xeeb doomu aadama bisu yàlla suñu borom mayu dafa aale ni kenn xamul foo mujjee doomu aadama bisu du xeeb doomu aadama loolu lépp euh, li passé la passé man baal naa ko man jàpp ma ko dara ndax man yor ma xol ma jàpp rek kenn xolu euh, xolu xolu ki ñaan na àdduna benn solo àdduna yëpp taraanga la bisu ay ca àdduna yëpp teraanga la ba tax na am na beneen gan buy dugg si mhm. na dugg si ñu may ñu benn élément ñu dugal daal di dugal reer yi tapis vert moom moo ko fi génne euh, euh, gan bi euh, day ñëw ba pare waaw gan bi na ñëw gan bi na ñëw ba pare balaa ñuy dugal élément bi ay ca beneen gan asalaamaaleykum waaleykum salaam <laughs> ci loolu nekk sawa an nga def grand eh, rang muy diine toogal yow na nga def toogal kii duma ko nuyu parce que neexuma kii duma ko nuyu parce que safuma waaw toogal après léegi dinañ waxtaanee ñeneen bu leen nuyu mais yéen mën naa leen nuyu na ngeen def bàyyi am jàmm ah, d'accord après dina la saf léegi bu émission bi commencé déedéet man bisu man ay safante indi moo fii man ay safante da nga maa ñëw pour inviter ma n'est-ce pas ay safante eh, man da yaay kat da ngay génn plateau non non ma génn aw ma souci aw ma benn problème ma génn de faire genre toogal ok ba benn da ngeen may bàyyi ma def li ma neex ak li ma saf laay def soo paree dem ñibbi ok d'accord police arrête de faire genre non arrête de faire genre ok d'accord eh. waa toogal attaque attaque samay den. ci plateau plateau dix problème la pour lan la. pour plateau dix mille de. ñu ko neex lay def ak seytaane. Euh, rang muy muy muy muy. Euh, am na am na am na ay cadeau yu bari yoo xamante ne gars yi defal lañ leen ko David Mbow. Euh, maa ngi kontaan bu baax kooku mooy borom NVA. gars yi <laughs> ay waay ndeysaan ndeysaan ndekete gars yi dix mille problème la ñu bëgg. mais gisoo nen nen kii ak kii waaw Ousseyn laalal fruiteria bi jëlal pipette li la neex. <laughs> yow nga ne ni nenu lan la yow pour lan la dina ni pour. Mhm. ak laa bin ak ñaan yi ma ci xaw ay lan moo tax def samay nen nii. <laughs> dañuy bàyyi omelette ko moo <laughs> yow yow yow pour nga omelette yow da ngaa ko ci la gën a jekk yow c' da ngaa jeex. li ngeen di sàmm li tey dina am sens. bisu bisu uh, bisu uh, bisu àddina boo fi nekkee. Mhm. nit koo gis da nga jox ko comme cër. dëgg la doomu aadama fii boo yore tukkee yaa ko doomu aadama boo togee télé. àdduna na lay déglu mag da lay déglu pas kilifa da lay déglu. yii police tey Ouzin yemale na la. doomu aadama ah. doomu aadama màgg nekk matir. Mhm. man Ouzin Keita aw ma yaay aw ma papa. waa gëm naa sama bopp damaa fekk ndey pauvre bàyyi pauvre ma gëm sama bopp bu bëgg leen jàppale. man dox ma si dara manqué. Mhm. sama àll yaakaar. Mhm. gëm sama bopp du ma sàcc du ma du fen du ma teg d'accord <laughs> tey tey tey Pawlish ah, ah. euh, euh, maa ngi lay nuyu di rafetlu bu baax sa teewaay ci plateau bi parce que comédie bi nii dinga si bi waxoon nga ko neex na neex na et tout mais euh, tey dama bëgg comme ni ma wax rek tey dama woote ci ñu gis beneen facette ci Pawlish mbay beneen facette ci 10 000 problèmes beneen facette ci Ouzin Keita ñu xam ne que ñii réellement amuñu problème du dëgg 10 000 di seen kilifa njëkk a ñëw tey ci plateau bi rafetlu bu baax yi nga xamante ne moom mooy invité surprise am Euh, ñu lay bàyyi nga nuyoog téléspectateurs yi nuyoog waa Sénégal ci ci ci ci émission confrontation. waaw maa ngi nuyu Sénégalais yëpp xam naa ni man Sénégalais yi dañ maa bëgg man leer na ma tey Sénégalais yi. Euh, euh, doguma la Ngone Ngone Diouf waaw Ngone moom mooy borom Londres ngoone jox na 10 000 problème 250 000 ah ayca dina ko yónnee. deux cent cinquante mille encore nii nii léegi nii ci ci ci dix mille problème ayca gars yi continuer leen dugg parce que moo Gates waaw waaw dafa mel ni ñoom ñoo nekk nii de. am na ku nekk ci ligne bi. nañu jël ki ci ligne bi. waaw en attendant ñëw parce que gars yi ñi ngi def ay teranga te loolu laa bëgg ndax jubóo bi teranga yi commencé nañ ko ci nuuru laa ju ah <laughs> Samba kenn di ay. waaw on se dañu seetaan si gars yi ñëpp seetaan si. <laughs> du dëgg salaamaaleykum ah, euh, tapis vert. salaamaaleykum. ayca ñu ngi lay siyaare soxna si maa ngi am jàmm. waaw maa ngi jàmm waaw. tur bi naka laa ak foo ñuy woowee. maa ngi woote Sacré Cœur 3 Khadija Dara. ñu ngi lay déglu waaw non dama bëggoon participer pour euh, nuyu ñëpp. Mm-hmm. di nuyu sénégalais yëpp di leen sant di leen gërëm. Mm-hmm. émission bi chaque fois dama koy seetaan mais c'est la première fois ma woote tey. ndeysaan merci beaucoup. waaw parce que euh, Ouzin Keita ak euh, dix mille problèmes franchement kon man tamit Medina laa juddoo fa laa màggee mm. kon waa Medina tamit dama leen nuyu Pawlish tamit maa ngi koy nuyu. Mm. mais tam bu ma wootee Ouzin tamit moo tax ma wootee parce que sama doom la. ndeysaan. sama doom la te ku baax la ku kii la ku des fois nag erreur mënul ñàkk si àdduna waaye comme li mu wax rek. waa nee na comme dafa ngénte waat boppam kii waat boppam loolu dañ ko si gën a jàppale. dëgg la. waaw ndax nit ku nekk dina am démb. waaye boo demee ba ne da nga màgg rek ñëpp dañ la war a jàppale si loolu. waaw kon maa ngi leen di nuyu tamit seen émission bi neex na ma trop Ouzin Keita tamit maa ngi koy gën a ñaanal yàlla tamit fu li muy yootu yàlla na ko jot. jërëjëf merci beaucoup. amin jërëjëf. merci beaucoup kontaan nañ bu baax euh, ci ci ci loolu. Euh, Karajo da nga ñuy ma damay bàyyi noo police mu daal di nuyoo. ba pare ah police nuyoo normal ak téléspectateurs yi. mais euh, balaa muy nuyoo damay nuyu waa team YouTube. Mm-hmm. ah gaa yaa ngi ci suuf. Mm-hmm. Ibrahima Boubacar Diouf. Euh, Yang Wiss Taylor Abo Dieng Chérif Diop Bacha fay sa euh, xaw ma naka c'est Fall Fallou Diop Babacar Ahmad Isaac Landing Arma Ndiaye ak euh, ak Dabaye ñoom ñu ngi am di Moustapha ah mu baax mi Malo Pikine Tanor Luno borom LP coiffure nee na may na leen ay bon de coiffure pour ñoom ñii ah ah kooku mooy borom bétti waayet ñoom ñëpp ñu. Euh, d'accord fële ca waayet. Mm. shop ñoom ñu ngi leen di gërëm bu baax. Mm. ayca. Euh, alors team team Facebook bi dañuy ci nuyu maam Bousso Wade Chinu Ndiaye Ndiaye. Euh, naaru Serigne Saliou et puis Alima Seck Fatoucha Diop ah donc ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax a baax mënuñu lim lépp bien vrai que on est à quatre euh, xam ne onze trève amu heure boobu nga xam ne xale yi rek ñoo koy seetaan ay ñoom xëcaa sax dañu déplacé wu ñëw seetaan euh, ñu leen di nuyu di leen char bu baax a baax aca Paulus ñu bàyyi la nga nuyoo ayca balaa Paulus di di di nuyoo ah. aussi téléphone bi plafonné wul mën ngeen yónnee Orange Money mu daal di ñëw parce que gars yi ñi ngi wax ñi ngi en Bijou ça va mm. kii Fatma international la. mooy mm. mooy mooy iPhone Apple pour Ouzin Keita may na Ouzin Keita benn iPhone ah 10 000 problème ak Paulus Mbaye euh, mu may leen euh, deux 200 000 ay ayca gaa yaa ngi nii di di di waaw waaw gaa yaa ngi daan de euh, waaw un concert à 10 mille problème ayca mm-hmm. waa Last Events may nañ la benn concert ah boo xam ne ñoom ñoo lay installé sono beeg lépp foo ko bëgg rek ayca Baara moom moo génn foofu kooku moom mooy sama doomu nday sama xarit Baara borom Last Events. Aïcha dim Aïcha. Ah, waaw Aïcha yow la ñuy kii bàyyi nga nuyu. dama doon wax seen kanam man dama nuyoo de. Aïcha demal yow la ñuy déglu maa ngi nuyu samay xarit la di nuyu samay ñëpp ah, di nuyu ah, di nuyu El Hadj sama xarit xam ne dafay ko doxatu bu rafet may ma. Mhm. borom Tëngéej borom Palme moom sama xarit la. di nuyu mhm. tamit sama xarit. Mhm. surtout surtout Alboury Ndiaye muy Mansour yàlla na ko suñu borom defal jàmm. nuyuwaale sa fan club yi nekk euh, fële. Paris. ñoom faatu sax. Eh, pax yi maa ngi nuyu waa Fatou ñoo bis ngi ñëw. tey ñoom Fatou borom Eden. tey tey bisu tey tey damaa gën a mignon rafet indi sama voiture sol lu rafet te damay solu rafet ba pare correct sama foli réew ni gën a yokku. Mhm. parce que nag maa boole ñoo xam ne man déjà li rêve la man a ñii xam nga li match la yéen yéen da ko foogee li lu daw li match la man ak ñii. parce que kii neexuma déjà kii bëgguma ko match la man ak ñoom. déedéet man ma ma ma tey wax man rag tey tey tey gars yi man man soo raagee ma raag ak yow barki raagee ma raag ànd ak yow raagee ma raag ànd ak yow wala xamoo raagee dama nekk soo raagee ma raag ànd ak ma raag ànd ak yow wala xamoo so intéressé wu leen ma. waaw d' accord soo ma man lu ma neex lay def man la Pawlish. xam nga naa la yow ba woon sax ma nokk naa la yow yaa fa ma nokk xaw ma sax ma nokk naa la yow. man lu ma neex lay def. man lu ma neex lay def lu ma neex lay def. xoolal man li ma neex lay def. man li ma neex lay def. non bu ma ca toll man li ma neex lay def. man man li ma neex lay def. man li ma neex laay def dama nuyoo man li ma neex laay wax. waaw dama damay wax ba pare da ngeen may jël damay nuyoo waaw damay nuyoo damay nuyoo ba pare damay nuyoo damay nuyoo damay nuyoo da ngeen bàyyi mu nuyoo damay nuyoo ba pare damay nuyoo damay bàyyi mu nuyoo ba pare maa ngi nuyu surtout algorithme maa ngi koy nuyu bu baax di nuyu sama xarit di waa Paaxe maa ngi nuyu ñëpp man damay nuyoo de kenn du ma tee nuyoo parce que man man il est galant man lu ma neex laay def déjà man damay nuyoo da ngeen bàyyi mu nuyoo xel man maa wax ak yow bàyyi leen mu nuyoo waaw léegi nuyoo mais toogal nga nuyoo di di di nuyu samay xarit. bisou ma bëgg a wax ñu ma tamit day ruube du ko bàyyi. ñu suul ñëpp su waxee damay génn. Pawlish su waxee damay génn da dama lay nuyu wala man damay nuyu. man damay nuyoo waaw ko mu nuyoo kay. man dama nuyoo xaw ma loo ko ngay tax ma bëgg nga tàkk ni ngeen doo xar sa di nuyu samay xarit ñëpp nga tàkk ni nga mel ne ko nekk loo sol nga mel ne bukke ni di nuyu ñëpp di nuyu di nuyu ñëpp léegi nag tey fii du ngay sol dangaan. mais parce que damaa jantal damay nekk ba suut. wuy ma yow wax ma yow yow génn nga ci mbali bi yow génn nga ci mbali bi man du ma dix mille problème maa la gën a réew maa la dàq xeex maa la gën a gaaw lu ma toog laa jëppee sa kaw. ma doon ma tey ma doon ma reyndoo eh, xar xar oto yooyu kenn xamul loo sonni kenn xamul loo sonni li nga soo ñaaw na li nga soo ñaaw na ngeen doog bëy kenn xamul loo nga tàkk nga mel ne balañ sa sa tisu balañ bi tey ku woote si sa tisu balañ bi nga xam yow koo bëgg yow xewi la dafa nekk naturellement si man yow donc xewi nga ma may la oto nga ni may ma la oto ay ñàkk fayda yow koy may da loo may naan ma sàcc la euh fifty na indi rek lampe da nga loo may yow tapis vert rek parce que tey diine la woote diine yow diine diine dama bëgg ngeen dindi ma sama talon ba ñu xam ne maa ndax karaté dama karaté ba

asalaamaaleykum. na def lu ko neex. mbaax la da ngaa manqué vitamine. allo bisu. waaw bisu euh, s'il te plaît dama bëgg dama pipi tuuti ñëwaat. j'arrive dans cinq minutes. demal cinq minutes yaa yaay saw si biir day daw. maa ngi saw. ma Pape bi. reer bi dugg si. li nga ñàkk kalaat tam manqué. bisu xam nga da nga. xaar Abdoulaye Diop Abdoulaye Diop xaar Abdoulaye xaas. sama yëf la. Kara micro wéy ma micro daf na eh Fassa eh taxaw leen waa kuma kuma waa kuma padd waaye su ma ko toppee du baax est-ce que micro bi mi ngi cool léegi demee léegi gars yi defaral la ko en attendant la ñu defaral la sa micro excusez-moi ma jël mouchoir wantalambela watila wantalambela wantalambela tànk daa war set Sénégal góor jigéen xam nga feebar bi rek doo dem doo dëkk tu vois Sénégal doo bouger mètre ngay takk masque ba sonn tu vois sama ñaar xeetam ah kii moom vraiment sama ñaar xeetal daw ñëw quoi téere sa loxo nga mel nii toog rek. Pawlish Mbaye loo a gis. bilaay toog. loo gëj a gis. kuubur fo. loo gëj gis. ku rek. loo gëj gis. Pawlish Mbaye loo gis. dina raxu seen gis. di sangu. loo gis. ay kironda. loo gëj gis. di dem. loo gis. di daw. Pawlish gis. ñu la woowoon. yow kaay toog mais auzu billahi mina sheytaan yow ñii fu ñu jëm ayca euh, mbokku téléspectateurs yi jërëjëf ci élément boobu karaajo may ñu euh, plateau bi sama invité yi war leen PC yi ñoom ñëpp jug nañ dem non de Dieu ku ci nekk yaa ngi wax ak sa staff <laughs> waa lii ba jàmm xam nga a balaa ngaa bëre faaw nga dem xool sa sa sa dernière bouteille da ngaa jëli woon sa dernière puusal puusal puusal Eh, bisu bëgg dee dëgg. waaw waaw kii bisu bëgg dee dëgg loo bu grave. bisu bëgg dee dëgg. sama daal dama ko simi. parce que bisu eh, dafa ah. eh, Bruno. bisu bëgg dee dëgg bisu daalam la xaw ma dafa bëgg ate àtte xaw ma. non xam naa donc ñii man garde corps dama ne leen nañ taxawee hmm. ne. pour au cas où ci biti. plateau bi xam naa ne yebuñu téléspectateur yebuñu as Sénégal bay def yi nga xam xamante ne ñoom. non dix du ko euh, def du dix du def loolu. Dipin est-ce que doo ñu doo doo doo message parce que appel bi fii day a metti du dëgg. Euh, loolu ah. eh, euh, doomu doomu Adama. Mhm. da ngay doomu Adama. Mm. nag kilifa yi nañ lay seetaan. say yaay ak say papa. Mm. ak say rak ak say ki ne lay ne dafa ñàkk personnalité. ñàkk conseil. Pawlish Mbaye <coughs> lu ko neex mu def. bisu Pawlish Mbaye def na ma loo xam ne bisu euh, damay xaar ba mu toog ma wax ko. lu ma gën a métti sama àdduna ne ne damaa may oto man Pawlish Mbaye fu may may oto. Oh, gars yi kontaan nañ ci yow nee na. Euh, gërëm nga sëree rek gars yi kontaan nañ euh, la may oto. musta am ñi ma ànd ak ni maas ngi ni sama manager a bàyyi ma fenn. ah bon Pawlish Mbaye damaa jox caabi oto bi. waaw taaje boobu lañ jot sama a bi sama moo tax dem këram moom nga dem këram ngeen baalante ak ma dem mag euh, nuyonte bàyyante ak. par exemple jox naa caabi di jooy naa caabi oto ñu caméra yi fay mun ma sutura ma te yàlla tax. <laughs> mu wax la loolu. waaw du ma du ma fenn ci loolu. biir si ni premier ma jox oto bu ma joxoon oto kon dinaa toog sant ko ndax ku la defal lu baax. Mhm. da koy wax man xaw ma ni dafa ma taraanga man toog naa ni dox ma daal du ma def loolu. Mhm. d' accord acca dafa mel ni 88 628 14 13 salaamaaleykum. salaamaaleykum. salaamaaleykum. waaw asalaamaaleykum. sëñ bi ñu ngi siyaare. ngi doon siyaare. mbaa yaa jàmm. waaw ñu bien tur bi naka la ak foo ñu woowee. maa ngi lay woowee Conakry. doo yokk baat bi tuuti s'il vous plaît. ma ne maa ngi lay woowee Conakry. waa Conakry. waa Conakry ñu ngi jàmm. très bien. koo soxla woon dix mille Ousin wala Pawlish. waaw dix mille dix mille laa soxla woon. mi ngi lay dégg ngi lay dégg. waa 10 000 naka waar nag. sant yàlla maa ngi lay ziar bu wér. waa lépp jàmm. oui sant kay naka moom. waaye sant ñu ngi nii rek. naka njaboot bi. ngi sant bu baax a baax. ñu ngi ziar bu baax. waaye tey moom kontaan naa quoi parce que tey moom affaire naa yegg hmm. hmm. hmm. maa ngi déglu. waaw ngi lay déglu. man man affaire naa yegg trop quoi kontaan naa quoi. jërëjëf jërëjëf. jërëjëf vraiment mais nag nga ànd dal rek xam rek.

waaw moo ne ànd ak dal rek de ah. dëgg la noonu la yàlla baax na jërëjëf. tey moom tey dëgg la sant maam Serap ok jërëjëf jërëjëf jërëjëf jërëjëf. merci beaucoup. day faatu seen mbër mi mi ngi ñëw xam naa euh, du ñàkk. xam nga moom kenn mënu ko canaliser jug na dem daal jug na dem. ayca <laughs> euh, euh, kii kan la Elzo Elzo mi kan la. nee na bi je une voiture à dix mille problèmes une voiture. waaw euh, une voiture pour dix mille problèmes ah léegi nag euh, caabi ji tey nga koo indi. léegi waaw bu noonu caabi ji léegi mu nekk. pour balaa émission bi di jeex. Hmm. ah. Euh, Ablaye Niang nee na ba Ouzin nga may ko sa yére boo pare. naka may naka may. ayca dix mille dix mille dix mille Ngone Ngone Diouf jox na la deux cent cinquante mille ah nu mu tuddati am nga naka deux cent mille ci kan ak concert ak benn oto ah du dëgg. bien Aïcha 15000 et 6000 sur euh, Aïcha on est 15000 sur euh, sur. Euh, sur YouTube, YouTube et 6000 sur Facebook, Facebook. Mm -hmm. merci beaucoup Adèle ci ci ci sondage bi. Mhm. merci beaucoup dañuy ñëwaat ci naka lañ koy waxatee encore ak concert bi nga xamante ne moom la la waa Las Events jox. ah du dëgg Ousin tamit maa ngi ñëw ci nga xamante ne Babacar Diaspora di di waa bu mu nee dix mille bu mu nee kii. moom bu mu nee dugg ci téléphone bi tamit baax na. Mhm. boobu parce que gars yi ñu ngi lay kii. Euh, moo gee ku baax. ay ayca waaw ku baax wax dëgg yàlla. ku def lu baax. Euh, euh, tey mais mais dix mille. dix mille gis nañ nga nga nga wax ci moo géet mu positif ba ci yàgg nga négatif deux cent nga jaay sa ngor lu demee noonu. non non non non non non non parce que xam nga. ah rang vaar laa lay tegal de rang vaar non vaar mi ngi fi moom da nga ko njëkk a clash man maa ko clashoon. waaw lu tax après nga changé ko. parce que Mor daf moo téléphone. Mhm. ni ma ñu def benn en direct Instagram nga tànn cinq personnes mu jox leen. man li ma mooy man loo am rek laa lay wax. xam nga loolu est-ce que. léegi nag ma taxilu man ay deux semaines am na ñu war a woo sax naa man attaquel kii attaquel parce que li ma waxoon defu ko man tamit après man bi ma demee nag ndax man maa tànnoon. ba comprendre nit ñi ñoo lay jéem a. jaxase waaw waaw man maa tànnoon man samay. ba ñàkk bi ma nee ma jëlee cinq personnes dama tànn ay France laa jël. ñoo xam ne maa ngi ñoo nekk muy cinq personnes. Mm-hmm. Mor Gueye jox leen xaalis ma woo ko benn jour. waaw affaire daal YouTube moo tax xam nga looy wax da kay def pour pour toog quoi nit ñi bu ñu xool wax na di rek hmm. ñëw na tey wax lu positif rek ñu bëgg indi lay parce que loolu loolu loolu dafa am stratégie la quoi pour nit ki delloo boppam hmm. man mun naa la laaj dara joxoo ma ko ma tàkk sa kaw ma mun naa nit ki mën na bëgg dara ma tàkk sa kaw mais boo demee ba repiler am naa am naa droit ma seedal loo xam ne war da ko def d'accord Mourgues dañ toog ay jamono mu am fa amee xam ñaata deux te cinquante mille hmm. yaa ngi dégg de. Mhm. Mhm. lii man ak ñi lii ak man ñi jëloon ñi jëloon numéro téléphone yi ñoom xam na li may wax cent franc bu ma si lekk. non moom moom déluma rek déluma déluma rek du cent man ma si lekk mais man jël naa ko maa ko bëggoon woo sax parce que numéro après dama amoon benn numéro gaynam laa moon mhm. bi ma xëy suba bi ma joxee loolu noonu benn site seeti ma quoi site deux cent vingt un. waaw bu ma seetee mu laaj ma. te teewul man ni mu demee nii noonu la demee ah. dama génn prison man amul tamit mu ñëw ñi ma nekkal ñun ma oh sa waay de muy defal ni te yàgg fa création nii. tax mu bëggee ko noonu te li ma defal leer jox na ma deux cent li ma waxoon la defat maanaam dama ko création. si li mu deflu. Mm-hmm. mais après loolu daf ko def. lim wax lim lim digoon ak yow daf ko def. da ko def. Mm-hmm. ma jox ñooñu seen xaalis. kon du yow la jox nga lekk yow. joxuma dara li ma waxoon noonu 250 millions mu mu séddale noonu wala 5 noonu. noonu la demee. Mm-hmm. ma jox leen seen wàll parce que man xam naa lii après fan la jëmee parce que ba ma gisee site boobu noonu 221 ñëpp xam nañu ne site xool Morgan la. waaw <laughs> surtout Babacar. waaw xam nga Babacar la mais en tout cas ah. ñoom dañuy job. Mm-hmm. tu mais nit tamit bu defee dara lu baax wax ko. ba tey su ma nekkoon défaillant damay continuer di xeex même combat. mais yow mais mais bu ñuy wax bu ñuy wax nan wax nan wax si ñi transhumé ay Souleymane Ndéla Ndiaye teel a nekk a am ay milliards transhumé ñoom ni muy géem nan ko géem fii ku ne maa ngi digg ay mots nag ci internet bi ah. Hmm. ay genre wes la xaw ma wis wes fii wa fii la jàpp doomu jàmm di nga di nga saaga ndey di nga clash naan kii caga la mënoo nekk Europe. Euh, parce que boo gisee euh, Morgues moom lu mu bon bon bon bon moo tane fi ay sénégalais yu mm-hmm. man sama koñ bi ma duggoo bi bi ma man ñaata milliards dafa nekk ndax mu sonn may kenn cent francs. man wax na dëgg yàlla moo tax quoi. non moom moom moom moom ci social lay dox. alal. Mm. mais Sénégal nag boo ko defalul mu tam la dëmm. man maa ko classé ci cinq yi mu jëm mu def ko mën mën loolu laa ko bu ko yàlla neexoon bu bu ko yàlla neexoon keneen lay wax nga xam ne yow li ngay wax bu ko yàlla neexoon bu ko dema ko tubiteel wala ñoom maan wala kaldu wala netetu bu ko yàlla neexoon diine bi tey diine bu ko yàlla neexoon bu ko yàlla neexoon def la ko raket dibil bu ko yàlla neexoon bu ko yàlla neexoon def la omo. dibil te yaa woo. dibil bu ko yàlla neexoon bu ko yàlla neexoon. daf la otu doom oh, wala ma daal wala sookili wala fa bu usee bu ko eh, neexoon eh. usee bu ko neexoon bu ko yàlla ah, neexoon mu def la mbaam wala ñoŋ maan wala netetu wala kew wala poora wala sunguf usee yaa ngi tàkk ba mel ne usee di neree Ouzin yaay ñaaw. lii day tàkk loolu moom loolu moom. Ouzin yaay ñaaw Ouzin yaay seede Ouzin dafa ñaaw. 10 seede Ouzin dafa ñaaw 10 seede nga ni Ouzin il est vilain <laughs> il est moche. diboon nañu Ouzin. 10 gën a ñaaw. parce que il est ma def li tey soo gisee ma def li soo gisee ma def li parce que temps yi éviter benn dof. waaw dof am oto dof bu ñaaw. voiture dofu mbaam. am guerre def lu ma di saf maa ngi nii di dof baa ngi nii. ni da nga ñaan yàlla xam looy ñaan yàlla bi de voiture yow amoo amoo looy ñaan yàlla. monsieur bu ko yàlla neexoon bu ko yàlla neexoon. wala Pawlish toogal dem la keew. Pawlish Ousseyn fii dëkk bi man dama ko moom. parce que nit ñi dañu maa bëgg. parce que nit ñi voilà. Seydina Sénégal may na la aussi benn ceinture en prix mais kii 10 000 est-ce que dina takk yooyu sax. ay ñaam lay takk 10 000 mais dina ko tekki parce que 10 000 doxul dina ko tekki. rang mais moo la leen mooy sa nen mais bisu hmm. la sérieusement sénégalais yi bisu man dama commencé rappel léegi de ah eh bisu dama bëgg ko bisu voilà mais kii la eh, eh bisu ma kii la solo gu ma eh, xam ko ma aw ba dama ne Pawlish Ouzin li mu sol uh-huh. Awa Balde moo woo nee na Pawlish foo nekk ma ne ko maa ngi noonu man kaay ma jox la li nga sol lépp ci kaw ba suuf. moo ko def tamit kaay bi daal ay ay ay ay ay ma kër kenn. da ngaa nekk kay bëgg ma man damaa toog damaa toog àdduna bëgg ma. mais parce que da nga intéressé wu ma. waa àdduna bëgg ma da ngaa bëgg parce que il est ma intéressé wu ma. man sama àdduna ma intéressé wu ma. Ah! eh eh eh ma intéressé wu ma. maîtrise ma man damaa saf man damaa saf àdduna man damaa saf àdduna àdduna bëgguma eh ni ma solo yow ñi sañ sañ ngeen do xottu bi teel waaw Pawlish toogal léegi sa ta wana nga mel ni nga mel ni ko yaa ngi daanu mais 10000 xam leen ni man la bëgg 10000 dañu waxtaan ta xulay taala yow ko bëgg ma ne kii ci mignon wala ci galant wala ci chef wala ci jeune wala taay bay gàttu ma njoolu ma c'est que ni ma mel moo moo jafe ci xale il est mignon walla eh, il est attirant ba pare soyez man dama humble <laughs> ku lekkew ni parce que il est daal te nga aussi ah, am nga marché bu dëkk maa ko moom eh, barki alxuraan nit ñi ma la Pawlish Mbaye euh, euh, ah xamante ne moom la gars yi def mm-hmm. euh, Seydina bu Sénégal ah, jox na la benn ceinture cuir même bu takk euh, saytu ki ñàmpa lay <laughs> mais na jàpp benn oto. c'est bien ah, bëgg nag nga parce que bëgguma rek gars yi tamit yi ngeen di wax. nii bu fekkee Elzo mi ngi euh, moom moom moom féetewul ci kenn. Euh, Malo Pikine moom xam naa ne dina ñëw bientôt du yàgg Malo Pikine léegi mu ñëw. Aïcha ñoom ñëpp dinañ ñëw. Ngone ah depuis Londres jox na 10 000 problème Euh, ak fan euh, Ousin Kayta am na benn euh, kii am na naka lañ koy waxatee. iPhone iPhone. Euh, dama bëgg gars yi nag li ngeen di wax ak li ngeen di joxe nii ngeen def ko du dëgg madame Kayre moom euh, borom koko texte moom fans club Ousin la du dëgg foofu la far moom Ousin la bëgg ci xolam waaye waa Kayten tamit ñoom nee nañ Pawlish Mbaye leen di daaneel comme ngoone moom 10 000 problème ak ku ci nekk sa fan parce que yéen euh, tey est-ce que waaw d'accord parce que léegi Pawlish Pawlish ñi may waaw kii kii lu war a wax waaw dafa benn maire kii la wax xaaral dafa benn maire plateau bi dafa waaw dafa nànk Ousmane euh, may ma ñëw nañ ko organiser rek benn par benn fii du site fii place fii du site de fii place la fii non mais yow nag yow nag fii du site yow non non parce que man Iba Pak élève yi ñëw nu ma jox la war a waxee non non léegi léegi waaw may demal nga doo nga doo xaru tàpp nii demal ah, Elzo wuy Elzo foofu sa taaru nga Elzo nee na Elzo bu dee da nga koy may oto euh, euh, soxlawul nga koy wax boo ko jox baax na du dëgg euh, parce que moom mii wax dëgg yàlla euh, euh, jar na ko li nga ko war a jox jox ko ko rek du dëgg jarul kii ah Pawlish xaaral ma ñëw ma expliqué la. allez vas-y. bul yàq émision bi parce que tey reer bu mel nii waa tapis vert ñoo ko fi joxe Amadou Gueye fifty du dëgg. waa nu la jus fifty ku baax boobu Angleterre fifty ku kenn fruiteria indi leen fi dessert. <laughs> du dëgg ah, au royal tey émission plateau bi dafa ala dawme sénégalais yi pour defal leen lu baax tey. dëgg la lu dëgg émission bi dama bëgg tey mu am njariñ parce que Pawlish mbay bu dul dara am na Pawlish mbay loo xamante ne euh, euh, site internet yeeg gars yeeg sénégalais yi am na benn façon bu ñuy communiquer ci Pawlish Mbaye ko façon boobu kese la ñuy gis alors que Pawlish Mbaye nit la boo xamante ne am na lu mu bëgg. Mm-hmm. am na fu mu bëgg egg. am na fu mu nekkoon. Mm-hmm. am na fu mu jógee am na fu mu excité. et puis yor na beneen image bu bokkut ak image boobu su ma neexee xeew su ma neexee mignon su ma neexee moche su ma neexee. tey dama bëgg mignon mais léegi kaay ma xamal leen. unité correcte bi sañse bi nga sañse correcte la. parce que xam nga problème bi li li itali naan et tout say football yu yoonoo solo chez moi damaa trop intelligent damaa intelligent Sénégalais yi dañ maa jàppee dof te xamul dof doom oto dof doom kër. dof du dof yàlla du ko may teraanga dof du génn parce que su ma génnee su ma ne kii may Pawlish ma def comédie doo doon ni kii may Pawlish mhm. parce que dama am ay rakk ñu yaakaar ci man am yaay ñu yaakaar ci man kon waruma échec li ma Sénégalais yi bëggee nii laay continuer tey su ma defee timit damay xewi suba te bëggumaa xewi te man su ma xewee damay gaañu parce que góor laa. samay fol yi day génn. waaw waaw kan ma xam soo waxee rek ba xam ne léegi nga fay man nen bi laa leen. xam nga xam nga dama koy dok. gis nga. ah wuy ma dafa ñëw sama kër. waaw dafa ñëw sama ngi ñëw foofu may ma nga teg sa tànk xam ne maa ngi ñëw ci yow. bisu loo bëgg dinaa la ko laaj ñaar mooy ma ah. xaar ma ñëw émission bi jeexagul ndànk rek ma ñëw. du nga ñëw fi nga doon expliquer nga indi bu correct bi waaw ah. bu correct laa indi normal Pawlish dañu indi correct ma wuy ma Pawlish général Pawlish léegi dañu bëgg après nga indi bu bi xam nga bële folie beeg yooyu yëpp. parce que mais dama danga correcté xew yi man loolu nga. non doo xew yi xew yi après. di nga ci su ma su a mënee su ma correcté du ma xew yi. Mm. police <laughs> police ndànk rek. du ah. nañ la 150 000. dëgg pour Pawlish Mbaye. Eh waay euh, Babs Diaspora moo ma ko yónnee léegi. Euh, dama bëgg nga toog tegle sa tànk. mu nga gën a sës ci photo bi du dëgg ah. euh, nga arrêté parce que plateau confrontation la. confrontation on évite on évite pas n'importe qui. Mm-hmm. boo bëggee def sa bopp n'importe kii tey wan ko Sénégalais yi amul problème. Mm. du dëgg mais man tey bi ma lay woo ci plateau bi di la woo dîner d'affaires comme ni ma ko waxee. Mm-hmm. dama bëgg tey ñu waxtaanee affaire. mais. ma mu ñëw tey euh, dafa am tey euh, Pawlish Mbaye image boo xamante ne yaa ngi koy véhiculer ça va ah. marche bien parce que tey image boobu diri na la ba tey nga teg confrontation àdduna doon neex ba ma invité Pawlish Mbaye ci plateau parce que xam naa plateau bu ndaw plateau Macky a

yéen ñett ñëpp ku nekk. kooku daa baax un mois seen reer tapis vert la. mais ki xamul lu mu war a reere de. Ousseyn nga baax waaw léegi <laughs> bàyyi bàyyi jàmm rek léegi lu ma neex ma neex waaw football suñu borom mooy vidé doomu aadama yàlla ma vidé fii te yàlla fi ma vidé fii ma suñu borom moo vidé parce que man ñi ñiy football sama lekk <coughs> parce que dama dama il joue <coughs> bien il joue bien parce que ñi ñi lekk ñi football ñi football sama xaalis. français mënoo ko fi ba dab li fi. parce que li fi. Ndéla Madior. non non non non li fi waaw c'est que soit li nga solo trop ci ketchup. non ab dinañ ñëw loolu léegi yow ñëw ci football ba pare. parce que ketchup damay wax ci moom lu ndaw fullaam ak faydaam ak diiñam. soo ko soo soo gisee ma yor fitu gaynde damay xëccëb day waxtaan ak moom chaque jour bu may xelal deel def lii deel def lii te li ma xëccëb li ma wax yëpp maa ngi gis yal na ko suñu ko mu ne yal na ko yàlla defal football bi parce que dafa diñ d'accord football bi est-ce que jotoon def ay jéego nekk ci yenn club yi waat fan naa Italie dem naa Espagne dal hôtel bu tudd Xayaat un mois may tëdd ci hôtel di sangu piscine di nager piscine sangu piscine suñu borom fii demee waxi dof am naa ci voiture di nuyu sama xarit bi ma gën a bëgg ci àdduna bi Albouri sama xarit la moo may deux voitures mhm. deux voies élage may ma oto oto bu rafet élage borom Montpellier borom Tëngéej bisu su ma neexee damay correct parce que nit ñi dañ maa bëgg ay kilifa rek ma bëgg ci alxuraanu karim ma bëgg borom moo def ma vidéo ci waxi dof kon bisu su ma correcté damay xeewi non non dama la laaj Euh, nga ne ma parce que Pawlish da nga mënoon football doon tag ASC yi Pikine waaw ah. dëgg ah. euh, ñu gis Pawlish euh, mu jékki-jékki bàyyi football ah. léegi loolu laa bëggoon xam la pourquoi ci tënk rek mu gàtt waaw parce que yàlla xam na moom yàlla moo xool def <coughs> Tyson ñoo bokkoon koñ moo daa xoon ci àdduna yàlla dakaa nekk mbër Ousseyn mii doon bay suñu borom ko vidé mu nekk comédie dix xam naa seen dëkk yàlla ko def mu nekk di rab suñu borom vidé suñu borom suñu noonu mooy doon bay de su suñu borom moo vidé doomu aadama ci li mu ne yàlla ma vidé ci li ma ne mënu ma ci dara te maa ci gis suñu borom maa ngi ci sant yàlla baax a baax bisu sama néeg dafa tuuti néeg bu ndaw laa yor su am foo jël appartement déedéet ci néeg boobu laa parce que dafa ma yaakaar trop barke alxuraan ku ma jàppee dafa yaa dof parce que damay sangul ba set. Mhm. di xëy lu neex di dugg sama voiture dooxee jiri rouge di ko dawal dof yow est-ce que dina def loolu. déedéet eh, kon ma la neex. lu ma def rek man la a parce que nit loolu la ñu bëgg sénégalais et puis liggéey la sax liggéey la ma way damaa dotam sama neexul xam nga su ma indi ay way damay xewi suba parce que mënumaa way sa wax setul man bisu dotam naa sa wax neexul mënumaa way avec ça ma bëgg comédie way kon fan jëm wax dof la ma nit ñi bëgg ci a sax ni ko yaay lii may lii di sàgg na ko na parce que maa ngi la moo dara nga mën a meer mais maa ngi la nan ma saaga ba ma génn ci mbali bi te maa ngi commencé génn ci mbali bi ndànk fa ndànk parce que waruma échec parce que su ma saan taw damay tiit sama néeg moo rawoon douze sas fu ne la di toog fu ne la ndox bi toog léegi su may tëdd ci voiture kilim di nager du genre affaire yooyu léegi may commencé dégg français parce que daaw ma jàng fa dégg ma français man soo waxoon mos damay reetaan damay pare mos lu neex la nga def mos mooy ñaaw il est vilain bu ma saan wax damay la léegi ku ah, ah dama la arrêté faire genre voilà su ma leen su ma leen arrêté faire genre dangay la arrêté faire genre nga wax ma la eh, arrêté nga toog nga xam ne Pawlish léegi avancé na. d'accord mais léegi yow li ñu bëgg xam mooy. Elzo mi jox euh, kii kii oto bi. Mm-hmm. Euh, ajouté na si 200000 pour Pawlish Mbaye nee na. dégg nga li wax ah. kon tegle say tànk bu gaaw bu gën a du dëgg ci civilisation bi la la gars yi bëggee. Eh, d'accord ayca ma ñëw ci Ouzin Keita parce que Ouzin. Euh, gis nañ nga nekk ci sa ci sa Ouzin mën nga gën a sës ah? gën a toog gën a teg tegle sa tànk parce que voilà parce que tey man Ouzin ni nga habillé yow fa franchement Awa Balde euh, euh, billaahi wallaahi taalaahi yow yow doo dugg safara yow a Balde yow ah. ni nga seddalee sama xol bi tey yàlla na la Serigne Touba fay. Ah. loolu moom dinaa la ko wax parce que <coughs> ñii ils sont trop mignons. Eh tey Ouzin dama dégg sa benn interview xam nga nag dépassé nañ fu ñuy waxee ay Ouzin xam nga ay carrière fi mu jaar ak fi mu commencé ak fi mu demee noonu parce que tey star nga wax dëgg yàlla fexe nga ba marqué sa empreinte Sénégal ci ci mu ci mu néew mu bari fexe nga ba sénégalais xam la indi nga image boo xamante ne sa sa sa sa sa sa personnage la sa personnalité la ah euh, Ouzin Keita fu mu génn soxlawul kenn di xam kon mooy Ouzin du dëgg donc ma dégg la si sa benn interview ngay wax ni que am nga doom. loolu ka kan ka juutoon si ginnaaw après ma ma bëgg wax li ma ko wax loolu leen si wax. non non non question laa lay laaj. mais mais da nga ciy tontu après question réponse da nga ciy tontu ñu laaj. s'il vous plaît waaw tontu ñëpp am jaar jaar àdduna fi ñëpp am jaar jaar àdduna. non non non kenn waxul wax jaar jaar. bu bon loolu euh, mais loolu dañu bëgg ndax parce que gars yi ñoo koy laajte. est-ce que dëgg la lu am <laughs> ko mais tey xam nga tey da nga nekk star man bii ñun bu ñu demee ba siiw daanaka suñu vie privée dañ koy bokk ak suñu ay fans. dañ ciy am paa de responsabilité. mais Ouzin Keita am na doom loolu du way bu ñaaw doom ku ko bëgg fi mu ne nii da koy tiitaroo. Mm, dëgg la doom ay am na doom. man eh, eh, saa yi Cheikh Tidiane mooy sama baket du dëgg dëgg la tey jii yow eh, am nga tout tànk waaw dëgg la wala du dëgg. loolu euh, bis après nañ si wax <laughs> loolu dina dinañ si wax après xam nga. ok amul problème boo ci bëggulee wax on passe loolu. waaw. Euh, est-ce que du rak muy jàdd koñ. <laughs> dama bëgg sérieux nii ma rek euh, doomu aadama. bisu mën a feeñal dama bëgg déggu ma. xool jàpp ci rek ma sama àdduna. mu ngi métti sama àdduna bisu. Mm-hmm. man du ma tirisé. dëgg la man neexoon ak comme maa a dem kaw Pawlish Mbaye def ko li ma kay def. non foofu dinañ fa ñëw. maa ngi bisu waxi doom lañ wax de waxi doom du ko ay kër Pawlish. bisu waaw bisu. waxi en euh, bisu doomu aadama. ak un man man euh, ku baax taxaw taxaw naa fa. déedéet waxi yëpp lañ wax de bisu. bisu tekki naa fu nekk foofu génn nañ foofu euh, façon seen bu la seenu dëmm dugg naa fa. mais bisu xanaa wax waxi ëmb yow. li ma wax sa yoon nekk. ah kon arrêté fekk ko joxe. bisu bisu boo invité doomu aadama kii na na da nga bu ko réglé ma réglé ko. waaw léegi Pawlish réglé ba ko dinaa ko réglé sama plateau fii ku fi toog kenn du réglé ah, kenn mën naa a ko defaat dëgg la doom yàlla koy joxe sax waaw doom yaa am ñoo ne am ñoo xam ne dund nañ am ñoo xam ne ne am doom am am ñoo xam ne ne mhm. bañ ko am ñoo xam ne ne ne na ko yàq ko <laughs> man ma ko def dëgg la ndax bam naax ndax doom mooy dëpp ndax doom boo gisee soxob day sedd waaw aruf Ndiaye ne ku ñëpp xam foo jëm doomu sa àgg waaw mais loolu yow da nga ko waxoon ci benn interview waaw loolu dëgg la tey sénégalais yëpp di la seetaan xam nga. interview yi ak plateau direct ak émission de confrontation du benn bëgguma fu ma jaar sama doom jaar fa. Mm-hmm. bëgguma ñi ma ñi ñu xamee sama doom ñi ñu xamee. parce que boo gisee ñu laaj ko bëgg a protéger ci vie star bi ngay dund daal. mais ñu li ñu laaj am na wala amul parce que dañuy gis ni parfois. non am na élément boobu sax am na. voilà donc bu bu waxee déedéet ak rajo xam nga day def vaar mais mais bii nga baal ma ci wax ci. wóorul nga baal ma ci wax ci ëmb day siiw yow laajuma la ëmb day siiw gaañu day siiw doom day siiw dëj day siiw parce que parce que li tax gars yi di ci ñëwaat à chaque fois xam nga amoon na fi mariage mariage bi ñu doon wax ne Ousin takk na jabar ñi naan takk na ñi naan takkul donc dafay yoon bu ñëwee ci yow tamit nga leeral xam nu mu demee exactement mm. loolu dëgg la euh, doomu aadama euh, am naa doom mm-hmm. dëgg la sant yàlla baax euh, am na ñoo xam ne amul doom mm-hmm. am na ñoo xam ne nan la doomu aadama mm-hmm. dëgg mooy njëkk tamit bi na bind na bind moom mooy kan parce que am na lu mu may Ousin Keita ah du dëgg pour càq-càq la nee na may na ko benn moto mais nanga nga bind yow la kan comme ça ñu mën a xam daal topp te yii ngeen wax ni dangeen ngeen ko maye ngir yàlla nga nañ ko def rek du dëgg te yàlla tax bisu du doomu aadama bisu du triché bisu man sama yaay la sama yaay la bëggoon sama àdduna bisu ma bëggoon sama yaay bisu démb damaa toog euh, benn meer woo ma euh, kii euh, ki Adja Gres Gres ma munuma kayta Keita na dafa neex ma dama laa bëgg sama dama bëgg te yàlla tax munuma munuma Ouzin kayta dalaa teel a ñàkk yaay dëgg la man ko dëgg mun ma mun ma bés ni ko tey def na la comme sama doom maa la bëgg sama bopp mun ma am na at yu bëri nan maa bëgg te yàlla tax wante yow maa la bëgg xam nga tam nga bëgg nit nit ki bëgg la bisu bëggan mhm. dëgg la bisu man damaa dal si xam-xam bisu métti woon na eh, trop dafa métti woon sama aar mhm. bisu euh, dugg naa sama huit ba ma siiw ba tey mhm. huit da kay du benn fan du ñaar fan am ñoo xam deux ans trois ans ba tey bisu bis bis li ma génne son boobu ñett son la ñett ñett kii bi laa génne ba tey bis ma damay toog sama kër da benn vidéo vidéo yi tas Ouzin Keita lu mu wax lu mu def yàlla suñu boobu may may xorom mhm. maa fi njëkk a génne comédie musicale <laughs> mu law dëgg la dëgg térisi ma ko mhm. kon sama bopp yow da nga xàll yoon bi sax ci côté comédie musicale waaw parce que man tey jii moom mi ba nga ñu ñu xamee ginnaaw yàlla man la eh ba nga ñu ñu xamee ginnaaw ko nekk bisu ko nekk mu jaxa sama àdduna na may na ma oto arrête sama kër ay xeer arrête ba toj vitre jàmm bu jël 1 million 800 bisu arrête fay léegi bu dara na xel waaw war kay ma xamal naan ah, <coughs> olof Ndiaye ne ku la ku la aaj gën. may oto wala may loto. ku la ku la may naa ko Fatick Rouge. mi ngi taxaw ma jox ko caa non ménage ñoo yem parce que ñoo ah, kii. ma man euh, kii bu ñu. waaw mais man dama la laaj ay questions. ci sa problème ak kii parce que. ah man choqué ah bisu euh, bisu yàlla li ma ay fen la. incha bu li la. ko yana fekk sama a xiyam ko ñaan yàlla fa fay gu ñaan rawal rawal xam nga ba dafa waat pama day tëgg tëdd këram day tëdd këram di waat ci yeneen bi di waat ci loo xam ne bis doomu aadama yàlla kenn ko fooy il fait genre eh, kenn fooy yeneen bi ay ay kàcc loolu baaxul arrêté fee konoxi ay mag lañ lay déglu arrêté fee cër arrêté fee konoxi bis arrêté fee yow dof nga. walla dof nga arrête dof léegi nañu ñëwaat ci ci ci Ouzin euh, bi nga xamante ne woon nañ ko. Mhm. te juste tournage rek la woon. est-ce que tey jii loolu du am lu mu kale ci Ouzin Keita euh, du tournage. ah hmm. non du tournage. mariage dëggantaan la woon. <laughs> waaw euh, yàlla suñu borom ma ne ma si wax. ok bam naa. laaj ko si wax. ndax bam naa yàlla suñu borom. mooy mais Ouzin Ouzin c'est très bizarre. Ah. parce que xam nga nit bu takkee jabar da koy tiitaroo xam nga nga am soxna wala nga am borom kër boo ko tiitaroowul xaw ma ngay tiitaroo du dëgg hmm, donc Ouzin am na soxna bugg ko wax ay duma ko wax ak yooyu dama ko fi indiwul ak mariage taxumaa jóg non mais Ouzin nag da nga ñëw ci plateau wax naa si bay ma wax wax naa si nga dañuy waxtaan ak yow d'une manière plus large ci lépp si wax pay waxaat wax naa ko ñaati yoon émission an sa jabar an sa nangam sama jabar laajuñu la an sa jabar dañ ne la dafa am polémique bu am du dëgg. loolu fi kaar ni may caare kaar caare kaar ni may caare kaar eh caare kaar ni may caare kaar ni may caare kaar ay kati caarakaar ni ba caarakaar e eh, xësa e eh, caarakaar këcëb ni ba caare asi caam ko soon voye e eh, waay <laughs> bisu ko soon uh, voye togal usin ko soon loolu loo wax voye loo nga sa yaay dégg ko dégg a yegg moom muy wax yow nga ñëw dagg ko parce que sa temps d'antenne bu ñëwee dafa nang ko dafa amoon fu am importance foo nekkoon ma takka jabar jàkk laa takk. dëgg la man mayuma yàlla. di mhm. tëju ma ak kenn. looy mooyee. Euh, euh, Pawlish doo ñu jàppale. il est choquant. mënoo ma kenn pamel kenn na la pamel kon man lay mbaraan da ngaa ñaaw. am na xaalis ñaaw nga sa gémmi forox na. am na xaalis pamel ñaaw nga moo sa bakkataan xëy bëggëj. bëggëj man damaa service. yaa xëy bëggëj yaa xëy suul. ma damaa service boobu. yaa xëy suul ma damaa service. yaa suul damaa suul àddina ma damaa sama bakkataan xëy yow nag ñaaw nga sa karam sa karam tàpp na ak ja yow yaa ngi xar ba ma dama xam nga xar waaye jigéen ñi ko xool taxawal ma taxaw man dama taxawal ma taxaw taxawal ma taxaw man dama maa la gën a mignon eh, gën laa gala gën laa c'est pas gën laa attirant de la bonne physique. yow dof nga dof bon attention bon jeu. bon lèvre bon barbe eh, bon nez bon jeu. <laughs> gëm naa ko nag kii dama nga toog yow. police arrêté faire genre. police arrêté faire genre. wala arrêté faire mais léegi doo leen may 10 000 sax moom moom. non 10 000 moom tey du wax parce que 10 000 tey dafa choquant. tey 10 000 tey dafa choquant dafa choqué ak choquant. tey 10 000 dafa choquant. waa léegi waa police kaay nga toog. il faut dans la vie il faut être intelligent. voilà. <laughs> voilà ok chéri. bisu bisu kii euh, dafa ñëw sama kër. moom di fu man dëmb sama kaw. ah dégg nga ko mi ngi dépassé naan xoola. foo jëlee parce que yaa ko dépassé boo noppee rek. foo jëlee salon bi foo jëlee nangam. Ah. dugg sama néeg man ni vampire. Eh. ma dugg néegam man ni ku dugg paaka aan. ah. Hmm. moom ay néegam. léegi mën naa wax ay ay mbokkam lay. ay mbokkam xam naa la fa ne sax kon noppi kon noppi kon bisu bisu man Ouzin Keita ab ma saal. ab ah. ma kër ma defee émission. Hmm. sama kër laa koy defee. Hmm. ndax ku nekk sa kër nga am. moo ngi naan benn néeg la am danga ñaan yàlla nekk si leneen

kees. sëñ Sane Ablaye may na ma may na ma kees si le Pixoo. Eh. Eh, kees bi cinq cinq cent mètres carrés. Eh. mooy kër Dakar ñetti kër Dakar. kër gu ma sonn yàlla man Ouzin kooku de waroon na ci may Alaaji Mbay ndax ketchup mu baax mi fexe na ba ñoom ñu am terrain ndeysaan ku ci pare rek mën naa ko mën mën mën naa joxe numéro après ñu. dama bëgg dimbalinte boobu am ci diggante ketchup ñoom tane gi mu tane alaaji mbay te di ko dimbali te yàlla tax voilà loolu mu am ci biir këccam dafa généreux waaw loolu xam nga généreux boobu foofu nekk ci états waa xaar rek ma expliqué la xam nga tey ji Abdoulaye ki ñàkkorop ki ki di xaru kii xolam tàng mu ne ko lu tax mu may Ouzin Keita dëgg-dëgg bi may ko ñàkkorop man maay teere man waale may dem ñett teere jas dëgg la ma am buur jënd fa sama man man boo wax teere moom man lépp laa kon suuf ma am lu may wax lu may waroon wax Pawlish suuf la nga waroon am bàyyi ko man doo waxi am ba ba tey eh, Pam Mbaye doomu aadama. waaw saa rek nga man damay waxtaan bu ma neexoon suba jàmm saam. te Ousseyn ma jël oto deux millions oto boobu un million sa am ko. ah waaw sama xam naa ñaan yàlla wax ci ma sànq avant mu ñëw damay ñaan yàlla am cité. Eh. man daam nekk sama ginnaaw. Mhm. ndax bam naa ndax. objectif la ba xam ne boo ko fixé woo war nga ko mën a am. sama famille maa yaakaar damaa eh, mais Ousseyn naka ngeen di def bu ñu leen invité ay ay interview yi nga xamante ne yéen a ngi koy def tout le temps ci réseaux sociaux yi naka ngeen koy def xam-xam ngeen koy defee da ngeen koy def gratuitement nii rek ngeen ñëw interview ñu defal defal ñoo xam ne xam man dam sama xol tijji eh. maa tax ñi xam ko loolu tax maa ko tëjaat man ma maa man man jig waaw moom jiguma <laughs> wala jiguma tigu jiguma ah moom ah, na la taaral de xam naa diggante kat Ousseyn s'il te plaît dootuma Ousseyn Paul Ousseyn la kon yàlla ma kon li ma yar fay fay gu kim maa ko ki saa ma tàppaasee ma tontu ko nit ñi gën kaa xam gën kaa may man ma ko tàppaasee. mais yéen est-ce que nekkul yéen ñaar da ngeen a far bëgg a may ma ñëw a ñëw ci dix minutes damay wax damay bisu kër jàmbur kenn daggu la sa temps bisu waxal ba sa li may wax dañ dama nekk bisu jax sama àdduna dëgg bisu ko xam bisu kër kër dafa métti kër Dakar bisu kii euh, daaxa te location la ak caution sax génn. Mhm. ma dem euh, studio mu dugg sama kër di sone di pétu ba kër gi boobu kër gi woo ma ne ma Ouzin Keita démb da nga am ay gan ma ne ko non non sama benn gardien dama gis naa Pawlish Mbaye di dugg fekk avant boobu dafa njëkk a ñëw indi ay nan teg ko ci sama buntu appartement. walla mais xam lu waral loolu. ma ma ma ma yeggali ma ma yeggali. ba Alaaji Fall Mbak ba ma tontoon naa do ba ka day. waaw xaaral xaaral rek xaaral rek. non non non non non ba ma tontoon. ba ma tontoon. ba ma tontoon. ba ma tabaxaa ba ma génn. waaw mu perturbé sama kër. di fëgg porte yi. yee ñëpp bonte gi ñu woo ma. xam lu waral loolu. may eh, ma eh, ma ba pare eh, ma ñëw nga ñëw bu ma dog bu paree mu ñëw bu ma dog. mayu bu ma dog. mu mu ñëw mu ñëw di pété ba kër jàmbul. Mhm. ba ba mu kër gi woo ma. après ma wax ah. woo ma trop noppil ba ma jox la question. waaw jël moom yow laa bëgg ñëw ci moom noppil. jërëjëf si ma am ah, nga may ma ay nan. Mhm. ma dugg si appartement bi ma def filmé sama sama doom ji prince taxaw taxaw si balcon bi ah daan ne oh, Ouzin Keita xam naa euh, Pawlish Mbaye man ko noonu man na ko bu leen bàkkaalu ma taxaw seen ko oto muy yóndu mu jëbee nan bi ñaan si sànni ko sama sànni ko si balcon bi ma woo ko téléphone mu mu ma ne nga doomu làkkan nga loo gis man la ma ma ne kayu police ñii ni ma àddina mu solo ma bàyyi mu sedd eh. dëgg la ah, ma bay lépp ma xaar ba mu xam na génn naa Matisa moom euh, sama côté koñ ma xaar ma génn naa mu ñu fëgg sama kër di sone di perturbé ànd ay nit ñu woo ma ñaay yoon dama Ouzin Keita li ngay def nangam nangam yaa ngi déranger man leen maa ngi jégalu man fekkoo ma ko mu ñëwaat taxaw si balcon bi di sànni ay xeer ba toj vitre jàmbul ba nga ko na ma Ouzin Keita dama bëgg nga abal ma dama def ma da bis bis lu may bëgg yëpp mu ma dëkk si benn kër fenn maa jot da damay fay kër. mu ma dugg si kër du ma déranger kenn. ndax ku nekk sa nga am. ma nekkee sama kër nga naan kii Ouzin Keita dëgg la damay def tranquille bërëngoo sama kër dansoo ma kenn ndax dèjà man li may li may yow bëccëg bëriwul moom gudd laay génn dem sama ni sama bopp ñëw toog mhm. dam moom dafa ñeme medd xam ki lu xam ki xam lu ko mét ay nitam ñi mu daa àndal ñëpp ñëpp la bàyyi bas Ahmed Sodo mi moo àndal mhm. Ahmed mi kii pose ki ki ki ma defal oh, oh. et puis ki man kii ba sama sama ko ba ndox yéen a mën a ànd moo tax yéen eh, kii eh, benn yaay maa ngi ndeysaan yàlla suuf ayosi kawam. Ndeye Ndiaye bàcc sama yaay la. sama xarit waaw waaw ma fayal ko ma daa ma tax balaa ko bëgg ma te yàlla tax kii fu mu toog si àdduna ay nit ay nit ma ay nit ay nitam nañ maa bëgg. fu mu toogee ne ma dafa ay ñu yéen xam nga yéen tey. mu ne ko bisu loolu du yoon doom a bisu. waa du yoon nangu na du yoon d'accord maa ngi ñëwaat boo dem ñu ne du luwe artiste. waaw émission bi jeexagul fekk agent boo dem agent boo dem ñu ñu ne doo luwe fekk du artiste. mais kii am na lu mu ki nangam. loolu bis dafa man iñaan la ndax bis duma wut sama appartement sagal sama bopp surtout sama bopp ndax damay def samay nit ñu baax damay sees damay def émission télé ku ñëw sama kër nawloo ma bugguma dem àbb kenn kër moom day àbb kër mhm. man àbb ma kër wut naa sama yëf bopp daf ma la jax sama at mi ñu woon ma oto ñu woon ma oto ñëpp kenn may ma ndax moom il faut que porte ko plainte yow tooga rek bi ki xam nga xam laa nooy def. Bijou yow boole nga ko Sénégalais tey da ngeen di la bu ma bàyyiwul. waaw dina la ma bàyyi dina la ma bàyyi di ngeen di sigi ndigaale wala sigi sa wàll. waaw d'accord waaw léegi léegi loolu yëpp ñu yegg foofu noonu. arrêté faire genre arrêté. arrêté fekk na xi. loolu xam nga laa koy jàppee. waaw may leen xam laa koy jàppee iñaan laa koy jàppee iñaan. mais Bijou xam nga loolu iñaan laa koy jàppee Bijou. kii dama dëkk ak man ma dëkk. may ma ma ñëw damay ñëw ci non lii lii du ma raw lii du ma raw lii du ma raw lii du ma raw lii du ma raw kii la fi raw doo xam ne ma raw kii la fi raw maa koy joxe dafa dëkk ak man non non bul wax may gént ay àjjana ah, yow ba eh, ma dëkkee man man dama doon gént ay àjjana ay mango ay furu yow ku bëlle ma micro dëkkee sama ji ba ma dëkkee sama ginnaaw ay jàll lay gént ak ay ah, ma yaa ngi may bëgg a déranger yaa ngi may bëgg a kaay ma booba tey damaa na tekk du xaal ba mu bàyyiwul barke Seydina Muhammad ko yana fekk sama yoma xiyam dinaa la nagam sa maa la ëppee jinne maa la dàq xeex maa la gën a gaaw maa la gën a dëggal waaw Pawlish euh, Pawlish Ouzin Ouzin may ñu ñëw ci 10 minutes après ñu ngi ñëwaat ci yéen d'accord eh, dof nga doon manquant bi nga doon <laughs> sa gémmi gu tooy docteur Fortier eh! ah. <laughs> eh, Ouzin Ouzin sama sponsor yi ngay dóore ci bouteille ndox yow rek leel yaa ngi dégg Ousseyn arrêté nag dañ man su ma la waree jox kàddu respecté man mi lay jox kàddu tax ma euh, euh, xaara balaa boobu di ñëw euh, damay ñëw ci 10 000 problème parce que élément yi tamit kiiwul ñoom li ñuy wax moom moo ëpp importance du dëgg parce que élément yooyu yëpp sataan nañ ko 10 000 dafa am loo xamante ne dafa am du dëgg nga nga nga nga amoon problème ak ki nga xamante ne moom mooy Pawlish Mbaye mu jege si la rek nga dóor compte teel Mm, loolu dañ nag parce que gars yi ne nañ dañ na sama téléphone bu fekkee ne libaas kii na am na tuuti ñu daal di ma koy jox parce que gars yi ñu ngi leen di continuer di leen teral dama bëgg kii jox Ouzin Keita scooter bi mu mën ko wax ay waaw c'est bien pour ñu leeral ni ñu quoi waaw dafa parce que dafa problème amul seen diggante ñu bare nag ñu bare ñu bare ñu ngi wër yaakaar ni police ak bidiméer ay gerkat lan wala ay lii dëgg la loolu benn slogan la woon boo xam ne ni maa ngi moom ñoo ko defoon. bës la maanaam. pour nit ñi xam quoi. nit ñi nit ñi pour ñu comprendre quoi. yaakaar naa affaire bi dooy affaire rek ñun ñëw na fii adduna bi pour ay guerre na ay vandam ak yàpp ñun duñu ay guerre kat ay nit dañu am na nañu xel. am lu ñu bëgg. mën nu créer ay bës sans génne si ay xuur mais comme ñu ko jot a def. mun nga am mën nga mën nga am bës sans dem jël appartement di def ay taas neen di jouer ay prono. <laughs> yàlla gars ñu koy géem. dëgg la mën nga am bës taxaw fee def tuuti neen génne sa xottu yaa di ko filmer am yenn yow jar na leen ko. gis nañ fi ay ñaaxoo ak ñoom am yoon seen ay xuuram. ndax ba eh, tayu ko. kan day no day waxtaanee quoi. ko def loolu. non jàll na jàll na lu continuer loolu jàll yàgg na kaa def. loolu non eh bul tooñ. jukkoon bi waxtaanee bul tooñ kon léegi loolu. d'accord waaye di police baa mu yegg. waaw léegi loolu. waaw saa yu gém nañu loolu. tu vois parce que gém nañu loolu quoi. Mm-hmm. jeex na jeex na quoi. Mm-hmm. moom nag moo topp si temps bi. daf ko xëy daf ko job si xëy ko gontu waaw fenn laa koy mere quoi waaw te na baalu àqu quoi nit mun am problème nekk si kaso bi nga taxaw di ko ñaanal lu bon. Ah, foofu dafa def rang muy police loolu xam nga loolu moo ko wax. Mm-hmm. rang muy moo mais loolu. bu doon eh, non eggul ci xolam taxaw rek waaw bu doon da doon neexal rek. waaw bu doon wax góor la sax. nekk si compte bi te vu yooyu bu encaissé xaalis mu fay ma quoi. tax ma ni man ñu bëri may fay seen appartement. mais mais même ma son bàyyi loolu damaa kii jàpp nga jàpp damaa neexoon nag. nice damaa solo loon en fait bëgg ñu ko rek pour ma aise. jàpp nga lépp du dara ay jàpp ñun ragal na ñun ay góoroon quoi. Ah, yàlla def na ñun du naay jàgg tu vois. Mhm. ta ragalunu dara. Mhm. xëy na yaa ngi joué c'est bien yaa ngi comédie nekk benn darkaña c'est bien. ñu soxla foko cher la darkaña foko cher foko la. indi ay nen te lii moo ko omelette. Mhm. kon nga jox ko gars yi ñu tam dëkk bi ñu coobunu dëkk de dafa màcc. dara am fii tey bu ni ngi di wut lu lekk nga jël nen yi di ko indi fii di ko toj si engrais tege nañu ay nen ak c' est pas important quoi. c' est pas important mais man ñaanalu ma yàlla doomu aadama doomu aadama du nekk si jafe bon même su ma bëggee sax ay leneen sax du ma ko ñëw pour kaañoo ko wala pour defe ko loolu ko géew ma loolu na Sénégal yi xam ne loolu benn jeu la woon <coughs> bu ñu defoon ma pare si moom nag moo si na nag quoi daf ko job lu si xëy ko gont. am na benn dafa am benn message bu ñëw léegi. ban message euh, Bassirou Ka de la part de Ketchup euh, borom terrain yi nee nañ fa ñëw maar mardi man yow ak Kheucha. Euh, Bassirou Ka ñoom ñoom gars yi. d' accord ah, ah d' accord jaaxal na ma terrain waaw ñoom bu ñu leen joxee terrain dina euh, baax ayca nañu setaan élément bi ba tey rek du ko yàq de. nañu setaan nañu setaan nañu setaan <laughs> élément bi. xaaral euh, euh, may ma ma ñëw. comme ni ma leen ko waxee mbokk téléspectateurs yi ñuy def ah. Mhm. yéen ngi toujours seen émission confrontation ñu dalal ki nga xamante ne mooy rang muy dimi problème vuruj muy Ouzin Keita arrête de faire Jean Pawlish du dëgg ñoom la ñu invité tey ci émission confrontation léegi léegi diine bi. c'est offert par euh, ex Cap d'Azia mhm. actuel tapis vert ah noonu lañ koy waxee euh, waa Nourou la Jou ak waa Fruteria Samba Kend fële ca ca ca Nord Foire ah, xam naa làmp dafa dafa dafa kii élément bi karaajo nee na jaratu ko du dëgg ay ayca nañu ah ayca nañu nañu dugal élément bi ñu tegaat foog naa ay bagages Karajo may ñu élément bi ñu xool ko ñu ñëwaat léegi parce que élément bi dafa bokk ak li nga xamante ne moom la dimi problème di wax. ay koy daggate. yaa koy daggate. Abdoulaye xaas. Abdoulaye Diop xaas. xaas. yaa koy <laughs> <laughs> sama yëf la. xasa micro ma micro daf na eh xasa eh taxaw leen eh! ma xaaral ay Aïcha euh, euh, merci beaucoup Karajo ci élément boobu ah wax dëgg yàlla gis nañ yi nga xamante ne la def 10 dafa am foo foo nekkoon bu fekkee ndox yi euh, lampe mën nañ indiwaat ay ndox ñu indiwaat ay ndox parce que fii dara du fi jeex comme ni ko 10 waxee plateau day jax waaw mais jax bi yëpp ñu ngi koy gërëmee tapis vert Amadou Gueye 50 Aïcha 10 000 dafa amoon fu ñu nekkoon waaw ci fi fi fi ñu nekkoon mooy déjà euh, sa diggante ak Pawlish li nga xam ne expliqué ko déjà que affaire yi yéen yéen yéen yéen a def mise en scène bi en fait. après voilà hmm. exact quoi maa moom ñoo def loolu. Hmm. jeex na. Hmm. mais daf moom dafa dem ba si biir. di dégénéré jël bi def ko job si xëy ko gon te or que man géemu loolu. mais kon ni ko defee rek. pour leeral Sénégal yi quoi c'est bien ça li muy def quoi moom la quoi. tu vois. li muy def xoolal moom la quoi. <laughs> maa tooy. ba bërëngu daa metti bërëngu dafa métti <laughs> dafa métti moos. woy Samba seen butéelu jus la jël leen ndokk ba bokk leen ko kenn nuuru laa. waaw. bu ngeen demee ci ëdëkaay di ngeen ko am. waaw sëñ yow yoroo oto te fi nga si ngay jël wóorul. non euh, bisaab la mën nga ko teg sa wet. bisaab la de. jëlal bisaab bi teg ko sa wet yaa ko moom. defal lu la neex ayca mais c'est bien ça ñun ay sénégalais lañ quoi ñu ngi fii pour guerre ñëw na fi pour lan pour euh, dem fi ñëw pour gars yi ree ni ngi tamit soulagé extérieur xam nga. maanaam li problème bi ñu amoon mu jóge suñu mu dañ quoi. Mhm. mais teewul tamit ñu jàllale message bu ñu topp comédie de Touré ba doo véhiculer message. mais est-ce que yow xam nga ne gars yi léegi dañ la jaawale comédien parce que nee nañ dafa too rap dafa too dara ngay comédie léegi par rapport ak ñu gis ni ay Pawlish ay Ouzin yooyu. non gis nga ku nekk sa sa xalaat quoi. Mhm. ku nekk. Euh, mi ngi xalaatee fii nit ñi boo leen toppee nit ñi nii nit ñi nii. Mm-hmm. xam nga laa dégg xam naa déggagul man. du mm-hmm. demi problème te biir na ëmb na. mais lu ne dégg naa mm-hmm. lu ne parce ñoom seen jéem loolu la. ñii dañuy xëy dem wuti lu ñu am lu leen yàlla may. ñii xëy wuti lu leen yàlla jox. waaw sa système la boo xam ne ci ngay gagné sa vie. yeesaa ku ne am nga nooy géemee. mais ana trafiquant de drogue yi. yamba bi fan la jaar yi. Ah, ana policier yi. di la vérité nanu bàyyi bàyyi puune yi ñu firi. ñan ñooy puune ba ñii dañoo sacrifice ba puune pour tekki ñuy sacrifice ay liir ay liir. ñan dama non mooy système bi rek ñuy sacrifice ay xale. Mhm. waaw man ma sacrifice ma sama rasta. non rasta yow tayoo ko de ñoo ko dag. yi ñoo ko dag man su ma neexoon su ma neexoon. ñoom loolu lu jël noonu. ma fay ndax yàgg na ni fay policiers yi ñu libéral leen. mais gémme woon noonu mais gémme ma ko parce que dama war a dem découvrir lu mu métti métti dama ko war a gérer quoi. ñaata jours nga def foofu 15 jours moom la am 100 mètres. te du grain bu ñu la fekkee nga nga koy tux man loolu moom métti accusation. kon yow jëlee nañ la euh, euh, Mbacke jëlee nañ la prison wu Diourbel. Mbacke la non non dama jëlee Mbacke yóbbu ma Diourbel parce que sama yaay mag la man problème sax yeewu ma lu mu la doon. mais hmm. li may euh, bañ sama àdduna mooy nga taxaw di wax loo xam ne à la presse. loo xam ne sama mère du ko neex. dëgg la sama yaay parce que moom xam na doomam. liy véhiculé dul que nit ñi moom day doon sax gars yi naan ko waaye kii kii moo yaay dix mille problème kii moo yaay dix mille problème. léegi nag loolu après ñen ngi di ñen ngi di ko te li gën a bon mooy nga tagg sa doom di xas nday doomu jàmbur. mën na sa yaay moo gën nday yaayu kii wala sa baay a gën nday sunu baay maa ngi dégg wala yaanu gën. waaw ñu rafetal ko rek. waaw xam nga dëkk bi. Mm. xam lu koy doxal. mooy amul gënalante amul man sama papa muy liggéey police mooy xoolal moom mooy xeetu central bu ma jàppee dama lay gaañ moo fi am ah, jaay doon ni kii ba tey da nga gis tey benn Ouzin Keita wala benn police nga nga nga xool noo ko dimbale yërëm ko. ci constat bi muy def moom li muy géem nga xool ci su ma nee wax man tey du ma toog ak Ouzin du ma toog ak police que rapport la mais nit la du ma malaaka. Mm-hmm. moom nit la lu mu konkon nit la. kii itam lu mu konkon nit la. pourtant moom lu mu konkon nit la. non damay may mu a quoi. ah non a Pawlish may ko rek a d'accord léegi tontu ko loolu léegi d'accord a d'accord waaw d'accord. Pawlish continue ay jégalu nag baax waaye. waaw kooku kenn dafa nanu férékile nanu. turu kooku lu mu kooku moom lu mu kooku moom nit la. waaw d'accord léegi d'accord nañ loolu continue. waaw fi ma daan la ñëw rek. waaw mu la koy delloo rek noonu la demee lu mu konkon rek. nangu gën a xool nit la. mais da nga koy nangu. moom wax na yëfu mu ngi def lu ko neex mu ngi paawnal mu ngi mm-hmm. taal si pet mu ngi xaañ. mu ngi xéwalu mu ngi mm-hmm. barkeelu. mu ngi kon yow rek comme tu veux. waaw mm-hmm. bi mu ne la dëkk bi ñëppay toox boon. loolu baa si xel la. lu tax. mais dafa leer du dëgg man du ma ko def mais du ñëpp rek leen rek nag yow. gaa yi ngay deganal bon bi nii gis nga gaa yi boo duggee seen appartement yi. Mhm. liñ fay géem liñ fay géem liñ fay géem moo raw sax jeu porno. aye ah, barke appartement yaa ngi toj ñenn ñi bokk. dëgg mu mm. wax la mm. te ay borom alal wala yenn plaignants yi ñooy financé genre ci semu soirée yooyu noonu mais ana booy doon jeu porno si te xaw ma lan ak lan. ay booy yu ndaw mais ñooñu suison nañ leen. di paw nañ leen mais ba léegi nag loolu tey léegi waa la gën a ay. parce que soxla mu c'est le bi la. léegi dix mille est-ce que gisoo beneen beneen façon boo xam ne mën nga koo euh, dénoncer nit ñi dégg la. ku nekk ku nekk ak ni ngay véhiculer ku nekk ak ni ngay véhiculer sa message man ñu ma gën a yaru dañuy wax duñ leen dégg. ñu ma gën a jàng ñu ngi wax duñ leen dégg. Mm-hmm. ñu ma ëpp connaissance ëpp ma mënin ñu ngi ñu ngi wax kenn du leen déglu mais man sama mooy vingeel yi laa yi paaw na le. <laughs> di man boo naree gàdd rek Nimja muy gaaw. Nimza. noonu koy defee. rek muy gaaw Nimza waaw nag góore quoi moo tax tamit xam nga mooy loolu boo rek ah Ousseyn mooy xaritam. waaw c'est normal. Ousseyn mooy xaritam. ñoom ñëpp ay mbokk la ñu ñëpp ay gaañ ñëpp ay gaañ la ñu. ñu ñëpp ay géem la ñu. mais rewaande bu metti baaxul si yenn affaire yi quoi. dëgg la day mujj ëpp day mujj. waaw parce que tamit xam nga artiste warul warul warul tërëse quoi. dafa war nekk benn xam ne dafa a génn si naa toog di wax interview di wax fii dëgg la hmm. te lu ma mais dimin bi ngay koy ak ni nga koy defee seen sa say ak ñi la jege ak sa sa famille naka lañ koy naka lañ koy dundee ak yow non ñu ngi koy dund nice game comme fans yi ñu ngi koy dundee ñu ngi koy dund nice comme yeneen gars yi ñu may ree ñu ngi koy dund comme yeneen fàqamaane ñu ngi koy dundee parce que message buy nit ki booy véhiculer message message dafa am fu mu jëm ay nit a koy dégg ndax sami allahu liman hamd ba du maanaam rek mooy dégg dof dégg maanaam dof sax te mala bu doon dégg yow doo ko yow si mbedd mi nit la yàlla teral léegi nit ki yow li ngay jàllale message bi ngay jàllale am na si genre xëy yoo ne waaw man am na si am naa genre xool gi fan si yoo xam ne ni ñoom mën nañu mën a déglu mhm. ma tey mën naa toog yeneen gaay yi mu leen gaayen man da jaar man da ji dem géej jaar si gaal yi alalu àdduna man jaralu ma ko mais après dafa am bu tax ma wax jaralu ma ko ak ñii li leen tax a yóbbu mais doo dégg kii jaar si gars yi rek nga koy ñaanal na ni état ki li war a def ñu fexe fu fépp fu Sénégalais nekk ñu am fa représentant ñu récupérer leen. am na ñoo xam ne boo ñu ngi Europe. mais yan yan nga dox yan jéego nga dox pour boo yi nga xam ne ñu ngi def ci gaal gi nga jëm leen a sensibiliser jéem a waxtaan ak ñoom ba yan jéego nga dox. non man mënuma lu dul wax. waanaam véhiculer message. mais est-ce que gisoon ni wax ji dafa xaw a métti mënoo ko jaarale. mais tey jii parce que man parce que man. Hmm. yow sa sa carrière artistique gisuma tey jii xam ay gaal yi ay gaal yi mais pourtant boo demee boo demee Saint-Louis. Euh, fi ñuy xoolal Bëlba. Bëlba waaw. maa ngi nuyu xool waa Saint-Louis yëpp quoi. waaw Bëlba mooy diggante dex gi ak géej gi. foofu li muy rey si li muy rey par doomu li muy rey si nit. li muy rey bokk si doomu aadama. yoonu Barça ak Barça yow Saint-Louis dem Saint-Louis voilà dëkk. na foofu am na dimi problème bu ko moom. dimi problème boobu huit ans ci ginnaaw invité woon naa leen. kooku da dem ba feebar entre hôpital bi ñëw xam nga na ko yàlla yëkkati gaal fu mu nekk quoi. waaw. boo fa demee chaque année li muy rey si ay doomu aadama li muy rey te chaque année ñoom ni ñëw fa état ñu vérifier foofu ñu xool mais day rey rek nit ñaa ngi dee ah, mais du gaali kase ba pare. te poudre bi ñu sotti fu temps yi fii. mais loolu mooy la est-ce que loolu am na am nañ ci certitude parce que tamit wóoragul. waxuñu dara non bato la gis na mool yi. Hmm. waaw mool yi dem géej ñoom xam na ne li may wax. bu ñu tëmbee lañ koy am. léegi est-ce que loolu amagum nañ certitude loo xamante ne. enquête ñu ngi koy tëral. mais gars yi enquête mi ngi nekk en cours mais bu leen véhiculer message boo. xamante ne non loolu mënul nekk lu dul bato xam nga balaa. yàlla dafa wax si alxuraan mu ni xoolal ki nadribuha linnaasi la'allahum yatafakkaruun dinaa bëgg ñu bëri parce que dama fàtte hmm. gin nga jamono bi ñu toll nii ak affaire yu bon yi ñuy seen ak góor jigéen ak yooyu buñ gis sax bu buñ xam sax lu leen dal. ba ñuy sonn seen bopp rek. mais diine. diine mooy diine lislaam ndax inna diina inda allah lislaam li ñuy def yëpp pour ñàkkal fayda musulman yi jullit yi pour jéem a toroxal lislaam pour jéem a xeex lislaam yàlla li mu wax dafa leer si alquraanul karim li def lépp ay caaxaan la ay ngand ngand lus fii ay solu fii ay lekk fii ay naan fi yëpp amul sens da ngay dee bàyyi ka fi ndax xalaqal mawta wal xayaat hmm. yàlla dafa wax si alquraan ni shahida allahu annahu laa ilaha illa huwal wa ulul ilmi qaiman bil qist la man ni nga ko que façon bi est-ce que façon bi dëggantaan ak ni ko amee nii parce yow waxagoo fi yow yow juumagoo ci ci ci ci ci li ngay wax ci say ci say yaa ngi dégg mm-hmm. ak xadis yi ngay wax ak aay yi ngay wax mm-hmm. nañu waxante dëgg euh, euh, dix mille est-ce que tey jii amoo beneen façon bu gën a teggi ne noo war a véhiculer ndul ni ngay véhiculer mais sans départ man su may wax alxuraan doo lu ñaaw dëgg la même su may wax alxuraan bu naa toog ay deux minutes trois doo dégg ma wax lu ñaaw mbaa <laughs> ma teg moom waaw <laughs> di nga ko wax après mbaa ma teg ay moom waaw mënu ma jóge si Ah, mënuma a si. rang 3 minutes nga koy may rek allah akbar rek. ngay wax lu ñaaw. Mhm. foo mu teg ay moo ay bakk ay moo moo moo moo ba mu daw maa ngi li ma dugal ma dugal nag leneen. mais am nga xorom pool bay fal. waaw d'accord léegi li moom fi biir waxee. fa di ñaanal tamit di daaneel si kii rek euh, euh, si Assane Diouf may ñaan le président na ko libéré quoi ko bàyyi mu dem. non foofu danañ fa ñëw parce ak message yi leen war a. véhiculer faaw ma ko a libéré quoi. waaw a ah, a nii nii tamit moo tax xam nga man fan laa njëkkee daanu man fan laa njëkkee jombi sama Sénégal bi ma gisee Souleymane Ndéla Ndiaye wu transhumé laa xam ni nag jaam dëgg nag mooy garage xam nga li gën bon mooy baadoola bu xola wa kii wa kii mën na ko ku kii feneen fe parce que day wut day gém mais yow mënoo yor ay milliards mais xoolal baay depuis su nguur mais Macky Sall instant bi mu ngi changé waat kii moom bi nii. gouvernement bi gouvernement bi de man de wax dëgg yàlla waaw Makhtar Ba moo si intéressé ak si Ahmed Tidiane Ba. si yàlla xam naa Makhtar Ba day. mais ñeneen gars yi non c'est que boo baaxee. ñi nanguwul sax nangul nañ ko. noo man xoolal man musuma toog moom. billaay suma ko musu xoolal mais ma nit ki boo dem ma nit ki man su ma déggee ne waxtaan neexal nga police sax man. na wala may Ouzin Keita waaw man dama ay mel na bokk ma nga ko may quoi. mais may nga kii mayoo ma rek kii dafa bon kii dafa nii non. fii ku fi joob ñu wax ko dafa baax moo tax ñu wax ko je te la vérité waaw mooy Cheikh Ba rek noonu la gémé mit naa moom xoolal fii nga bokk moom xoolal fii la bokk. di bëgg aatu bu baax a baax quoi sama baay Fall la tamit. pare ñu ngi ñëw ci yow. Euh, euh, euh, dañuy ñëw ci ci ci Pawlish. Mhm. bu fekkee Pawlish pare nga. Mhm. parce que dañ koy topp ci tour ngir yàlla bu nit di wax rek. bu ko dagg ñu bañ a dagg ñu bañ daggante kenn comme ñoom dagguñu la. Mhm. Pawlish dafa am Ouzin Keita loo xamante ne danga ko def te tegoo ko ci yoon. du dëgg mu naqarlu ko. muy loo xamante ne daf ko metti parce que tamit am na loo xamante ne dootul mujj doon kaf day mujj ëpp loxo dem bi ngay dem di sànni këram ay nen wala ngay toj ay vitre jàmbur yoo xam ne nee nga lii kër gi binduñu ci Ouzin Keita du kër Ouzin Keita lu mu luwe la lu muy fay chaque fin du mois la caution lay joxe buy dugg si te buy génn gaa yaa ngi leen di may oto xaalis bu bari kay sama téléphone bi nañ ma ko jox waaye du dëgg euh, li nga xamante ne yaa ngi leen koy yaa ngi leen koy euh, kii yaa ngi leen koy euh, yaa ngi koy def mm-hmm. du dëgg amoo fenn foo ko teg <coughs> Pawlish Mbaye yow laa xam ah, damaa nga bàyyi ba pare rek ma tontu la d'accord parce que moom mi dafay joxe caution di fay location chaque fin du mois ñëwul seen kër di ko def li ngeen di def comédie bi est que gisoo ni que day commencer ëpp. waaw bisu xam nga man ah, nit kese laa. dëgg la te damaa dëkk ah, Yoff 10 ans xam nga nit moom bu ñëwee gan bu ñëwee ceew bisu ba bàyyi wax sa téléphone ba pare. non allez-y yow waxal waxal pour téléspectateur yi nga waxal. parce damaa ñor. non yow yi nga waxal pour Bichon voilà. di raxas sama to. te mhm. Mouhamed Niang waxtaan ak Mouhamed ne ko Mouhamed. woo Aziz Thiam ne ko Aziz Thiam damaa ba ngeen témoin lii may wax Aziz Thiam a ngi taxaw Mouhamed Niang a ngi taxaw Eumeu Dèye a ngi taxaw ma woo Borovita Samba Kane wax Samba Kane te boobu ci la ci Samba Kane laa jënd juillet ma ne ko Samba Kane ma ne ko maa ngi dëkk Yoff 10 euh, ans musuma gént dama doon man su ma doon gént ay àjjana laa doon gént ay ay raisin ay fruits ay ananas ay ginaar Ouzin dafa dëkk sama ginnaaw kër billaa wallahi Ouzin bu dëkkee sama ginnaaw kër ba tey ay golo laay gént ay gaynde ay jaan ay muus ay yaawur ay ay ay ay paañ ma xam ne kii man ma ne kii nag boo ko génnul koñ bi man dina dinaa jommi wala am dina ma dal moo tax jël ay moo tax dem nga dem di sànni xeer dix ans li nga def tooñ la non non du tooñ parce que man li ma def xam naa tooñ la yow dafa luwe nga dem di sànni xeer a yooyu waaw xam lu waral ma def loolu ba hmm. dama Pawlish Tayru ni ma dama laa bëgg parce que dama bëgg la da baax. Mhm. moom itamit teeru yàlla na ko suñu borom defal jàmm. parce que kenn xamul tijaan la kenn xamul laayeen la kenn xamul murid la. Mhm. ñëpp la yemale ñëpp lay dimbali teeru maa ngi koy nuyu. léegi ma ñëw ma ni man mii dëkk naa yoof 10 an mosuma problème kii dëkk 5 jours ma commencé gént loolu ma xam ne kii la xam nga nit moom nit du boppam ma xam ne kii te kii man li muy naawee ma ma xalaat xam nga man damay pensaare ma xalaat ni kii dëkk na fi dëkk na fi semaine mu commencé gént loolu ay jaan ay ay ay Burkina Faso man mosuma gént Burkina Faso. di gént ay kore mais ñii lan la ñuy tàcc bijou wala damaa mignon. continuer ay ay yaawur ay ndox omo man nit bu tëggee ndox omo muy fuur rek jëmale yéen na laa rey. ma kii nag su ma ko feneeraloon dina ma rey ma jël ay xeer ay nen sànni ko ci këram te xanaa bu génnul woon demoon na xalaatoon nga moo mën a dal moom génn euh, ah, ah, non je me bàyyi leen ko ah kon je foofu kon mu toog ah, kon je me bàyyi leen baab ok loolu rek moo tax nga ma jël étage pour naa génn dëkk pour ma ñëwaat fa non ok d'accord naa génn na hmm. ma tiitaat xam nga man damay tiit ba woo këccëb di ko këccëb kaa nga dimbali këccëb ne Pawlish Ouzin xamul lu caraxam il faut nga wutal ko ñombar parce moo wax lii de ne ma ko ñombar mu ne waaw yaa ngi sosal këccëb ko wax ne ma Pawlish Ouzin ñombar nga ko a di génne génne yof man léegi man incha allah sama intention man xam fan laa bëgg a yóbbu bari mu tuxu bari ñi mais yéen que soxor la wala non mais du kii ko soxoree en fait parce que nit Pen Atlanta may na leen ku nekk benn trois tenues la mooy trois tenues chéri. ay yére déggal li ngeen dem ci shop bi. mais man sama yére may naa parce que dafa ma ñàkk ok merci non non waxuma yow nga may ma. de. Ousseyn bu ñu maa ngi ñëw ci yow. ah man aw ma aw ma xolu kii ñaan en parce que il est mignon voilà il est galant parce que il est généreux il mais oto bi mu wax da nga ko may. maa ko may mu jaay ko xam ah, ah, ah, ma damay génn. mu solo oh, dafa mm-hmm. dugg ci taxi bu ñaaw. nee na ma lay defal surprise xam nga moom dafa muus ma la bëggoon a nax mu mu jël mu jël taxi ñëw ba sama bunt kër téye caméra yi ñi ma dëkk naa problème Ouzin ngi ñëw ma ne Ouzin Ouzin na lay def fii maa ngi sol jàllaabe jàllaabe bu mu ñëw ma ma sol yére bu ñaaw xam nga moom da bëgg sol ay kàll yooyu ay baxa tàkkal ma la sol non da bëgg ay tàkkal ma ñëw sama ko toog sa mu toog sama xam nga photo yi blanc laa yor mu toog photo bi yëpp tàkk ma ne ko Ouzin mënu ma koo wax parce que damaa seet si mu waxtaan ko waaye waayal ma affaire yooyu ma ne ko léegi man may nañ ma Mansour bu na may na ma oto may na ma deux voitures Lamine may ma euh, kii euh, nu sax euh, sama xarit bi wuy sama ndey. Euh, foog ñu tënk seen problème parce que dañuy ibbi téléphone bi gars yi dañ bëgg dugg. waaw may ma oto sama benn xarit man Ousseyn mi xam naa ne amul oto xam nga dimbali ko may ko oto ma may ko oto deux jours mu laaj ma ana kayitu oto yi ana kii bi ana assurance bi nit du mu la may oto nga koy laaj assurance te Ousseyn war a mën a jënd assurance ma xam ne kii ab dof la. ma xam ne kii yel loolu may ma nu mu lay may oto nga benn assurance naam naam assurance fu ñu koy jëndee ko demal aéroport parce que nit ko ma ne ko assurance dix mille lay Ouzin xamul ma xam ne kii su ko oto bii su ma ko jëlul dina ko Ouzin ma ko may dama am moom assurance la laaj. assurance bi nga laaj casier judiciaire pour déposer. waaw mais assurance man la wutil casier judiciaire. ba non mais mais mais Bijou la choqué wala. balaa ñuy dem ci kii dafa am leneen lu ma bëgg nga ñëw ci. allez vas-y. Euh, sama xarit bi Fifi ba Fifi bu diaspora kooku sama xarit la moom la moom moom moom la dóoroon. waaw la moo taxoon nga dóor ko. parce que li ma wax moom ma xaw a touché dépassé ma dóor ko il est faxaama wala ku ma ko waxaat dama la koy dóor. est-ce que gis nga ni waroon nga ko mën a expliquer ci beneen. non non je je parce que maa ngi nekkoon samay rumeur amoon amoon benn intention ma frappé ko. bah oui ah. mais est-ce que est-ce que frappe bi yoonoon la. yoonoon ah. bu la yóbbuwoon ci yoon. je vais bàyyi doo xaar man maa def na bu la ci yoon la wax. man yoon du ma teg parce que yoon daal maa bëgg. ah foog euh, defal lu yoon dul tere dégg du ma du ma tux yàmba du ma euh, du ma sàcc du ma jël alalu jàmbur man damaa correct damaa licite mën ngaa waxal lépp du ma góor jigéen man damaa licite man suñu may lool damaa licite man damaa correct. mun sama fol yi may def def lu bon barke alxuraan xaw ma ci tudd may na leen kenn ku ci nekk benn clip aussi. clip non réalisation clip. non garaaw man ma tudd man ma tudd. mooy seen vidéo ngeen di dox non non tuddeetuma man mënu maa way. essayé comprendre baax barke woo nañ ma tournée Italie man tournée Italie tournée Italie woo nañ ma tournée ki ma woo mi ngi nii toog Ousseyn ngi nii toog du ma bàyyi a fen barki alxuraanu karim lii may naan yaa dama day sa laaxira nee naa Pawlish dama laa bëgg a jël nga nga tourné Italie Espagne euh, Suisse Allemagne Paris ma ne ko ma ne ko ma woo waaj ne ko mënumaa way message ko numéro Ousseyn mu woo Ousseyn mi ngi nii toog mu woo Ousseyn mi ngi nii toog. bisu man ma ne ko mënumaa way bisu ma maa ngi ñëw waaj xaar ma eggali xaar ma eggali ma ñëw ci yow. mu ne loolu boo ko weesoo dama man ma ne ko mënumaa way jëlal Ousseyn barki àll ba xam nga man damaa nattale bisu. soo bu jëlul Ouzin sa tournée du neex parce maa ko dew ko man mënu maa waay dama ne ko ma. parce soo fay xaay sa xaay dañu ko yàq. nit ñi dinañ fay kon di ba. ki jooy si ah, may ñëw visa ngay jooy ba may jooy yàgg na de boobu Bercy bi la boobu may visa léegi moom Paris États-Unis Makka Dubaï Burkina Faso Zambie Libye Mali Koraket Zina te Ouzin li mu sol wóoru tey dafa jiital jiin xam nga affaire yu benn damaa métti bisu. ankay ah, bisu. waaw bisu plateau la bisu plateau la dafa jiital jiin te mun naa xaru fii léegi xam nga yéen man li moo tax man man xeex xeex bisu man xeexu man. dama police police xam nga tey tey euh, euh, am na ñu. il fait chaud arrête il fait chaud xaar attends parce que maa ngi tàkk te waruma tàkk. police dafa am xam nga. bala a solo dëgg da ngay ñëwee papi bàyyi leen li ngeen def karaajo bàyyi li ngeen def yemal fi ñu la yem loolu ah, karaajo. bala a solo dëgg da ngay ñëwee euh, euh, euh, la papi. papi papi ah, arrêté wuy ma. police police xam ah, ñu bari ñoo xamante ne gëmuñu woon ni que da nga demoon immigration. parce que yow demoon nga Italie fa nga nekkoon. lan moo tax nga ñibbisi. na nga kaa reféré li tax ma ñibbisi ah li li tax ma ñëpp si. bis na nga kaa refoulé. li tax waa xoolal jiin bi eh waay kii kii zoom li neex. ma ma ma neexee ji de jiin. waaw ma maa ko moom. mais eh, man man damay génn de kii waxee damay génn. non maa ko moom parce que bay wax dama bay wax buy wax du la dagg may naata. bay wax du naata la ah, may naata. du ma ko dagg jii arrêté fee sax. du du ko la jiin ma soog a wax bu wax bu dugal jiin bi du ma wax. du ma xam du ma may naata. day wax danga koy dagg. dégg nga du ma may naata Pambe waa ji daa woon na la dama bëgg yow Ouzin Keita nga woo ma ne ma Ouzin Keita nu ñuy def ba ma am visa. mbéri ayca nañu message nañu message. ndax nan ma ci man. ndax waa woote nañu woote ci seen. waa Europe nan ma. <laughs> waa Europe nan ma waxatee da nga man damay génn je suis rentré dans la maison. parce que fii nii waaw boo amul ah, damay tontu <laughs> waaw da nga kaa yàq. bisu bisu <laughs> kii dama doon ànd moom. tontan bisu bisu doon tamit di passé. ah tontan. bisu saa mu sanam fenn waaye bu amul dara. Mbàkke Alaaji Fàllu Mbàkke ma loon jiital. Mhm. dem nañ si Cawlaay may ñu njëgu xaal ñu dem fu ne maam moom bari waay tabaski duyoo ngeen nag équipe ngeen te sénégalais dañ leen a bëgg waa dakaa yàq bisu xam-xamu yàq ko hmm. bis doomu aadama nit am na kenn ko foowee mais est-ce que nekkul yàq bi moom la nit ñi gën a bëgg sax yéen ñaan ngeen boole man non kii bu dëgg neexee yàlla moom ma sama jaam ak moom jeex na ci àddina ma ma ma di ko ba mun maa jóg bàyyi sànni xeer yeeg yooyu noonu day dox ma maintenant waa léegi moom dafa ñëw sànq ne dafa la jox oto maay man maay wax ah, du noppi ma wax tamit kii bu waxaatee man ak ak bu jigoonul jiinam bi man damay génn ci rentré voilà bàyyi tooñ oto bi oto bi nga ne ma ñu ànd il faut maa ngi moom nag. kon noppi. léegi man maay wax parce que. ma yaa doon wax sànq bàyyi ko mu yegg. non ah, man eh, eh, eh, ma ma ñëw ma ko mu ma ma ah, ah? ma man Ouzin Keita ma neex a jiite ko moom dafa rafet de. nit mënu koo yàq. yàlla ci leneen bàyyil ma waxi jiin bi. sama kanam non ñëw ci oto bi la ñàkkoon ba ma toog ba tey ñàkku ma. damay entraîné da am classe am personnalité. waaw léegi tontul ci li nga xamante ne moom la parce que moom nee na dafa dafa da nga ci koñ ba mu commencé def ay affaire eh, looloo tax mu tapas la man man avant ma dëkk Yoff mm-hmm. Ouest Foire laa dëkkoon mm-hmm. ba ma dëkk Ouest Foire mu ñëw fa dama Ouzin Keita ginnaaw ay jàmm man problème bi ginnaaw yàlla bu ko ñuy xam maa ngi teg si code li mu def fépp màkk def loo dëgg la màkk may fit bi màkk may doole bi mm-hmm. waaw est-ce que yoroo sa kuy ba mu màgg ma ma ñëw ba yàgg naa ah. ba ma dëkk defi Pamay dëkk na fi euh, am lu mu fay apat am lu mu fay nekk tey ma wax la lu gën a yëgul. man mii wax ko. tu penses Pamay fay naa la Pamay Pamay fay naa la ñaari yoon sa sa kër Pablis Mbaye. <laughs> tu penses souvent ndax ndax dafa fenaloon waale waale ba ko yëg ngeen loolu wala yëgul leen ko. tu dafa duloon eh, <laughs> lu lu waxul lu dëgg en fait. waaw ñëpp ba ko ma teg ko ci kot ma ne ko man Ouzin Keita dafa li dafa laa ah yaa ko doon conseil bakki sëy bakki sëy na am dof moom muy conseil nit ki wérul noonu nan la may conseil kat lu gis ki na ko jàppaloo ca la xanaa mu daanu kii du kat ah, nga may conseil man daw ma Europe daaw nga rocceeku ba weex ni man da daw ma Europe daaw man daw ma Europe daaw yow mënoo rocceeku ndax sa yéen ma dëcc yow yaram bëtt nga yaram mbaam xuux maa yow bokkuñu man doomu laakkat laa lu ma laa sama yaram dam ba ma ma diwa kër sa damay dam ndax ma man bambar laa léegi saf eh, damaa saf waaw wuy ma wuy ma sànq dafa wax joo xam da nga da ngay bàyyi ba muy toog hmm. c'est-à-dire oto bi nga xam da nga ne jox na la ko ba pare nanguwaat caabi ne la suturaal ma yow yaa wax loolu waaw la demee waaw ma ba lim fn ko hmm. yàlla fay fay gu ñaaw hmm. bakki Seydina Muhammad bakki laay laax illa ma dem këram maas na ma kàndam kër Pawlish Mbaye ma dem këram euh, bante ma ak ba may dem maa ngi sol gestionnaire euh, gestionnaire laa sol garam bu gestionnaire ma dem Pawlish Mbaye na ma man du joxe loxo bi kay wax nag ne dafa am dafa am ne dafa am ñetti oto oto bu oto bu bula da oto bu bi Wally Seck moo ko mayoon oto bu rouge bi dafa tegoon jël pam benn oto la am Sénégal du ofe ñaan Pawlish Mbaye la am oto bu bi moom la peinture doore dama bëgg ngeen déggu ma. affaire bi du ñaan. man soxoruma ñaanuma. Pawlish Mbaye dafa muus dafa yaakaar ma gën a muus ñëpp. Ah. ndax tey jii euh, dafa yaakaar ma gën a muus ñëpp. arrêté fee muus euh, ma ni ku baax ci dëgg-dëgg bi mooy sama yaay maanaam fay saal. Eh. ñaata ñu ko ay millions jox ma. benn moo siiw benn du siwu Olof Ndiaye nee na ku ñëpp xam du ma sa àgg. ndax ba mu yow ñëwee ñëpp ma ne ay vampire ndaa ni taxaw vélo ni taxaw. ñu ko lay dugal feneen émission bi nga toog teg la tànk. moo gën maam moom bokkul Papa Mbaye damaa jox caabi oto bi. Mhm. ma ma jox caabi oto bi ma xaar bi nañu ko ubbi parce que ñëw nañ ci deuxième partie. bu dëgg instant yi téléspectateur yi nag wax ak yéen parce que man fi mu ba caméra yi taal nga waaye ma xaar ba caméra yi ma xaar ba caméra yi ma Ouzin Keita jox ma nga wax ma nit ku baax du mën a sos du waat ci yénent bi bu la yénent bi jàppee Abel mën nañu ubbi téléphone bu la yénent bi jàpp wala yàlla jàpp Pawlish Mbaye nit ku baax da ngay wax dëgg Pawlish bàyyi fen Pawlish Mbaye dégg nga ko mi ngi dépassé arrêtez de dépasser da ngay wax dëgg Pawlish Mbaye ku baax day sos yaa ko dëkk dépassé yaa ko wax naa foo dëkk tey nga dégg yënga yënga si ànd problème ma maayoon na jàkkaarloo kër dégg naa da ngeen bokk gel moo tax ngeen am problème yënga si ànd maayoon na jàkkaarloo kër Pawlish yëngoo loolu eh, eh, soo ma rafet sa bopp sa kër gis naa sànq soo ma rafet ban soomar nga sa bopp. tey laa yow gis fa kaso bu rëy ma xam ne. ma kaso bu tuuti ma xam ne kii. maa yow nga jàkkaarloo appartement. tey nga dégg maa ngi jàkkaarloo kër. da nga doon toog di tibet be. maa ngi jàkkaarloo kër yow. jëlee ki ci ligne bi jëlee ki ci ligne bi. allo jëlee ki ci ligne bi s'il te plaît. jëlee ki ci ligne bi. wala sa jiin bi rek. allo. allo. bete xar. allo ana koy woote. allo sa biton bi laa bëgg a dindi ma ko. Eh, bay jàmbur bay jàmbur boo ma jegee de ñëwal ani baakaay boo ma jegee de de gis nga. allo salaamaaleykum. xool jiim bi ah, waaye dugal leen jiim bi ngir yàlla. allo allo allo. mais yéen ñaa dégg naa da ngeen bokk gel moo tax mënu leen jóg. kii ni ma ka du gis nga jàppaloo caro ki ki muy doxa Euh, kii de dugal sa jéen bi kii bi dugalu jéen damay damay génn bi dugalu jéenam bi man damay génn de Pawlish bàyyil kenn damay génn bu eh, dugalu jéen damay eh, il faut dara fii il faut eh, que dugalu jéen dugalu jéen bu dugalu damay génn na dugalu jéen na damay énervé nee na bul yàq suñu émission ah. Sénégal ñëpp a ngi toog ah mais mais mais euh, yow maa gën a jàpp kan may na leen kenn ku ci nekk benn tenue continuer. baax na ko kon mais jiina bi la dugal parce que c'était énervant. allo. allo. Betakar. allo waaw salaamaaleykum. maaleykum salaam. maa ngi jaar baax bi man la Adama Bosse Negri. yow la. man la Adama Bosse Negri ñetti ñooñu nga invité ñëpp xam nañ sama tur. ah kooku Adama sama waa ji kenn du ma bom Allemagne. sama waa ji yàgg maa tara yàgg maa sigil sama xarit bi. dëgg yow da baax da maa bëgg. yow dama laa seet Europe nga talal ma. wax dëgg yàlla macha allah Adama ku baax ku baax Adama. sama waa ji borom Louga kenn du yow. waa doo ñu may ñu nuyu Adama ñun tamit ñu la Adama Aïcha ñu ngi lay kontaan bu baax sa woote. waaw bisu baa yaa ngi jàmm. ñu ngi sant bu baax Adama. waaw man damay woote parce que Ouzin Keita moom sama nit la. lu mu am problème bu mu am man lay woo sama nit la sama xarit la. ndeysaan dëgg la. waaw nekk nit ku baax wax dëgg yàlla. Mhm. bërki démb ba ko ba ko Pawlish Mbaye defee jëf ju ñaaw jooju damaa woo Pawlish ndax damaa mer ba saaga ko ñoom ñëpp ma xam. dëgg la. waaw dix mille tamit noonu moom tamit day déconné waaye daal ngoone li ma lay wax daal mooy man Pawlish Mbaye fu moo yokk ma woon. wayaay li ma wax ñoom. bisu kii dafa baat doole day saaga waa tey baat doole la. waaw non Pawlish bu ma dee wax noppi. bu ma ñëw sama sama tur bu ko wax. man dama wax ak très bien man du ma wax ak ndayu góor jigéen. bisu day saaga bisu. man du ma wax ak góor jigéen Baye Fall. bisu day saaga waat day saaga émission bi lay yàq day saaga baatu la bilaa walaay. barke alxuraan. la la xëy saa xoolal la xëy saa xoolal xëy bisu kii góor jigéen barke alxuraan kari billaay sa émission day yàqu. góor jigéen bu mag la góor jigéen bu mag la voilà bisu. waaw mais téléspectateur bu woote ngeen ji. mais góor jigéen ngeen ko xam moo tax lan koo xam moo tax lan koo xam. mais góor jigéen xoolal barke Rasulullah góor jigéen bu mag la barke alxuraan la. non non non góor jigéen la non mais góor jigéen la. non góor jigéen la kii góor jigéen la. mooy ma kii kii góor jigéen la. d'accord waakaay waakaay waakaay. waaw góor ku baax nañ ko gérer ci bitim. kan la ku baax kii kan la. Adama ah Adama eh, ah eh, lamp sama invité bi na ñëwaat. Euh, kii ah man gis xaw ma kan la de. bu mag la. du ah, mag a ah, ay taatam sew na sew na góor bëgg naa la dégg nga jubóo nañu waaye. dégg barki sëñ Tuubaa ba bëgg naa la bis tey bii laa walaay. kii góor jigéen bu mag. ah bon kii si Instagram bi lay nekk. góor jigéen kii kan la lu tax nga may wax nga tamit xam nga téléspectateur ba gisee mi ngi may confirmer. bis bii dama lay wax benn affaire de ba gën a rajo sociaux yi may ñaan état may ñaan xoolal nit ñi ñu am fulla quoi ñu moytu affaire de direct affaire de Instagram. affaire de live xaar xam nga ñun xamuñu. ñun xamuñu kii nag il s'appelle Adamo. kuy kooku mooy waa ji. waaw xam nga man nag boo ma ko waxee day xaw a métti parce que daaw far daaw far lii mooy liggéeyam góor jigéen daaw faru tubaab. fara bu faru itel la ne. yow wax yow booy suuf dara mën na wax ay wax ay wax ay jàpp ci léegi. géej mënu loolu. ñun xamuñu ñun xamuñu ko waaw xamuñu ko xamuñu ko seen télé la. non non non non dix mille. Ah, eh, man eh, man du ma technicien du ma dof. Mm. kii moo boo déggee ay moom. temps temps eh. euh, euh, xamuñu kan la. non ñun mënuñu coupé ko mais ñun mënuñu ko mais ñi xamuñu ko. ñoo xamuñu ko bul wax loolu yow tamit man aw ma Facebook. bul bàkkaate ko dimi ñun xamuñu ko mënuñu couper kuñ xamul léeg-léeg rek yooyu yëpp xamuñu ko dégg nga ñun dañ fi nekkal ñëpp di woote ku woote ñu ñaata a woote d'accord dégg nga ma def lii d'accord ñaata baay ñaata doomu jàmbur ñëw rek ñaata yaay boo ñëw woote mm-hmm. ñaata nit a woote may seen alal mm-hmm. mu ngi rafet mais kii mënu nekk ci Europe ñoo bëgguñu bu bëggee bës na ko dem géemi feneen mais du si ñii bu bëggee ay vie bu yokk wala ay tur duñ ko may sax turu muy dugal du dugg kii gënuñu bare wax gënuñu reew li ko may sànna mooy li mu nekkul Sénégal mu na wax lu ko neex lu ko neex na ko géem mais ñun kenn duñu sàkkatoo Baye Fall ok d'accord dégg na ni muy góore bu jàggee rek dangay ngay non amul yoot amul nii day góor góoroo ñu dox. léegi ba tey ñu continuer ci 88 628 14 13. ku ci ku ci ku bëgg a woote rek am am am looy def wala am looy joxe euh, pour invité yi toog de grâce ah ñu ñu ñu ñu ñaan ñaan leen ko rek bu bu ay gedd ak yooyu dem yëpp yëpp nañ ñu ci jàppale en fait ah xam xam kii woote ñun xamuñu ko. non man donc mënuñu couper koo xam ne tamit ah xamuñu ko. waaw mais man nag mënuma taxaw naan damay discuter ak ñëpp ku ñëpp xam ne kii Kanaara la may discuter moom. d'accord sama baay sama yaay sama yaay sama baay sama maamaati maam bi mu la jur sax su ma leen kanaara damay dem bàyyi foofu moo dama kii góor jëm fekk sama yaay ma jur damay dem ba ko waaw mais moom moom Ouzin la doon wax kii ay buntu la doon dugg xam nga yow kii da wut porte ay porte la wut pour ay couple pour yow léegi yow ñun ay rappeurs ñoo ko ëpp ci ligne bi allo puub kenn du ko jaay bàyyi leen jaay puub. allo. Um, maaleykum salaam. Oh, ça va. na ngeen na ngeen def. jaajëf sa sant yàlla. alhamdulilah. yaa man bisu laa bëgg a nuyu. allez vas-y. ñu ngi lay déglu bu baax kilifa gi. yow bisu um, Gambian la maa ngi dëkk Norvège. ah Norvège ñu ngi lay nuyu di nuyu waa Norvège yëpp. yeah. yaa ñu never fay waay dañ dee dama dee follow seen programme bi all the time yeah. thank you. thank you so much. ba pare uh, for that being the case tamit dama dee follow. um, Hussein ak Polish and everybody at Demil and everybody. Yeah, respect my brother. The, the only thing, guys, guys, laa know, you understand it and you dig and tag you, you know? Yeah, what's your name? Yeah, but for that being, but for that being the case, I'm really enjoying the show. Just that I'm gonna understanding the digan to be more like a problem. We more than little, we not catch up. We go wallet fe. Well, guy, buñ mel way, buñ buñ bay scene bi lolu professional. It's not professional at all. ok parce ah, ñu ngi nuyu ñooñu ñëpp euh, euh, di ñu seetaan waa Norway Sweden euh, France ñëpp ñu ngi leen di nuyu gars yi continuer di dugg si 88 628 14 13 ngeen déggante ak ñoom Vienna bu gars yi parce que tey dañ maa tere jël téléphone du dëgg. na gars yi jël woote ci numéro bi 628 14 13 du dëgg international bi 33 841 23 34. ngeen wax ak seen star yi nga xamante ne tey am nañ opportunité teg leen ci plateau ñoom ñett. Mhm. ah loolu musul am ñu toog euh, jàkkaarloo ak ñoom waxtaan ak ñoom. Ah, gis ci ñoom beneen facette bi nga xamante ne. bokkul mais ñoom jàpp naa ne facette amul ci ñoom facette bi mooy facette bu baax bi. Ah, du dëgg jàppoon naa ne mun naa gis beneen facette ci ñoom mais euh, gisuma ko. kuy xalam di ca jaayu. yaa xam barke ba yaay borom. barke ba yaay borom te rab de. dawal euh, biso. waaw ah, ki day waxaat. biso xam nga sax. saa su ko neexee émission bi ku neex wax biso <laughs> man ñaay malaaka moo ma tiim man duma bàkkaaru Adama moom bee dugg. allo allo. maa ngi wax de allo. allo. allo asalaamaaleykum. tu m'entends. maaleykum eh, salaam eh, siyaar naa eh, leen. ah Dérésia kilifa gi naka mu. waaw ça va Samba Touré la Bakel. ah Bakel naka waa waaw siyaar naa leen dix waaw siyaar naa la de. jaajëf Fall jaajëf. xoolal noonu la rek bàyyi ñaar tur moom bul musa waxam moom. jamais. waaw ñooy moom ba ay défin moom bu leen di déglu quoi. jërëjëf jërëjëf. waaw ñoo far mais Pawlish. waaw. Ah. xoolal guddi guddi Pawlish bëccëg bëccëg rek Pawlish. merci. waaw Pawlish ma yow laa àndale. merci xaaral ma dugg bëggee naa la. waaw mais xoolal ndaw nga ndaw nga koo xam ne caabataat la rek bul di wax ak moom baaxul. dëgg la dëgg la dëgg la dëgg la waaw man man Ouzin lu may wax. damay xool lu may wax focus ci loolu. ko xam ne nekk fi tamit loo ci wax. mais ba oui euh, euh, mi ñuy woo. Euh, waa Tamba yéen ñëpp ñu ngi leen di gërëm ak gars yi nekk ci Facebook bi ah mi ngi daw comme pas possible. Aliou ñu ngi ci 34 000 ah. xam nga ñoo xew li mosoo ko am saa tuuti ñu ngi leen di ñu ngi leen di gërëm bu baax. Aliou Ndiaye ah Pape Loum Khadim Sène Ndeye xaw ma naka Omar Conté Aram Diaw Alsane gars yi ni ñuy demee moo gaaw donc loolu tax du ma mën a lire ñëpp maa ngi leen di euh, Mamadou Dembélé waaw. allo. allo. oui chérie. ça va. ok léegi ça va tranquille gros mooy daal laay bañ bëggatuma ñu saaga du dëgg. parce que kilifa yaa ngi ñuy seetaan. Euh, yéen ñëpp maa ngi leen di nuyu ku ci nekk. Mm-hmm. Euh, di leen wax ne émission bi moom kontaan nañ ci torop biis lu mm-hmm. ngoone. sama mm-hmm. nuroo bi. waaw ñu ngi leen di nuyu yéen ñëpp. waaw di leen wax ne émission bi moom bég nañ ci lool alhamdulilah sant yàlla comme ni ngeen koy defee à chaque fois nii rek bijou mhm. waaw di leen wax ne nag euh, Pawlish boobu ba tey lii maa ngi la ko bëgg wax. mais Pawlish yaa ngi mel ne Sompat. maa xam nga lii ne lébu nga tax xamoo Sompat. déedéet parce que xam nga damaa dend ku turoog yëre de moo tax may damay jàpp ne Sompat ak yëre de ñu mën a ànd. Pawlish boo coupé na ko laaj. yaa ngi mel ne ah, Sompar ok chéri Bijou kii coupé leen ko Sompar mooy jën gu màgget. coupé leen kii Sompar mooy jën gu màgget. Bijou. dafa muy sompat ci police bi d'accord ñu jàll ci beneen téléspectateur. oui oui 628 14 d'accord léegi émission bi bu ngeen. bu ngeen ah, koy dagg de. Eh, ah, émission bi bu ngeen ko saa xam nga gars yi yéen la ñuy teral man teraluñu ma de du dëgg. Ah, émission bi du saaga amaatee non non saaga ñun moom du saaga moom. d'accord ok ñu continuer euh, Bongo ñu ngi koy gërëm bu baax di ko nuyu. Euh, ma Mass Koki nee na 10 euh, 000 nga wax ci li nga xamante ne moom mooy immigration immigration clandestine maas xam nga foo nekkoon waxoon wax na ci ba pare kon wax na ci depuis ci sànq. mais a na ci benn pare. Hmm. maa ngi ciy pare benn xam naa benn xoolal ki vidéo boo rek génne mais sur YouTube. Hmm. waaw maa ngi ciy bi maa def sax biir géej laa dem lu gaal def ko di wax sa affaire de pouvoir camp de Saint bi quoi euh, maanaam euh, wala si nekk yalla baax na daal ñu si daw ñu si daw quoi di la bëgg a bàyyi respect mm-hmm. ah orang muy Mass Kandji Mass Kokki Mass Kokki ku baax la mm, ku sympa la ku ëmb la moom njaag maa ngi maa ngi préféré di nuyu Ndiak mooy sa ménager xam nga ma mooy ménager. waaw kay il paraît. mooy sa ménager di nuyu nag sama xarit koo xam ne damaa bëgg. <coughs> mooy góor gi si jee. Mm. nga xam ne ko yàlla neexoon def ko El Hadj Turo wala Arrête Ba wala wala wala yàlla kaa def mu nekk bal bu rafet ba pare jantal njool maa ngi nuyu sa ménageur njaag maa ngi nuyu di nuyu kooki ku baax la maa ngi koy nuyu di nuyu fifty fifty ku baax la allo oui chéri moo leen defal reer bi allo allo oui allo arrête de faire genre Pawlish eh, arrête de faire genre c'est gentil eh, arrête de faire genre tey guddi boo ci tolloo sama jamono laa xam waaye sama la sama sama sama ala. oui voilà très bien allez vas-y. allo allo. dégg nga lii allo. allo allo yi na ngeen def. lam dafa am ay invité surprise. yu ma yëgul man mii sax. waaye am jàmm. maa ngi sant suñu borom baax sant yàlla baax. plateau bi nag ku dafa tàkk nii bu leen ku jóg ku yàlla kooku. génn leen si yow ku jóg rek ñëw. ah bàyyi leen li ngeen def émission jàmbur la émission dimi problème la de. ku wax loolu. Eh, eh, Bijou. waaw Bijou damay leb tur bi mais daa am lu ma la bëgg a wax lu lu am importance.

nga jiboole leen. d' accord loolu laaj jublu. loolu rek la ñu bëgg nag. dañoo bëgg Pawlish ak Ouzin ñun nuyoonte kottante lañante xol yi xeetu ah, quoi mais vraiment dama bëgg ñu jiboo rek sénégalais yëpp xam ko parce que liggéeyuñ dara ci réew mi li tax mu ñuy fi d' ki kan la. <laughs> way yaay yooyu ki kan la way Fallou. ak Fall kaay toog euh, ñu ngi lay nuyu bu baax ah Fall dafa mel ni da nga mos defar surprise de. waaw euh, waaw dëgg la kay. ku la invité wala da nga toog setaan nii rek ñëw. ah lamp nag yaa ngi ruubee sama émission. non lamp lu ko neex na def lamp bi. tey ngaa beneen photo nga dendale ko nii mu gën a rafet. du dëgg ah nañu wàcc beneen photo yi ñu toog nii. parce que oh. distanciation yi. dañu teg beneen nii mu dend ak ñoom. oui oui ah, na na dend ak nii mooy gën a rafet du dëgg nañ ko indi ñu teg ko nii bu baax mu toog. Euh, euh, non émission bi nee na. non allo allo allo salaamaaleykum. Ah, bien ñu ngi lay siyaare. waaw maa ngi delloo ziar. tur bi naka la foo ñu woowee. tur bi Samba Posi 2 la. Samba Posi 2. waaw. jaajëf Samba ah. Posi 2. Mbour laay woote Mbour. ana waa Mbour. waa Mbour ñaa ngi fi rek. dafa amoon loo bëgg a wax a gars waaw c'est que seen émission bi. loolu seen émission bi neex na trop moom. d'accord jërëjëf merci beaucoup. di <coughs> ñu problème tamit li ngay def moom gis naa ko bu baax li ngay def moom nice na. Mhm. jaajëf waaw Pawlish Mbaye tam yéen yéen ñëpp moom li ngeen def moom dafa nice. billaahi. Mm. merci jaajëf jaajëf bro. waaw yéen a gën a xam quoi. Mm. mais merci de. jërëjëf jaajëf te semaine semaine dafa bari woon stress. te man bu ma stressé day feeñ émission vendredi mooy yoon voilà voilà waaw lii dañuy dindi stress wax dëgg yàlla dix mille nee ma lii nga def ni yàlla moo la ciy fay waaye wax na dëgg waaye moom bégal bi muy bégal sénégalais yàllaa koy fay <laughs> ah waa Kaprod euh, ñu ngi leen di gërëm bu baax ah échou échou Esther gis nga Fallou dafa ñëw tey ci émission bi Fallou ñu ngi lay bàyyi nga nuyoog sénégalais yi Fallou nuyoo sama xarit asalaamaaleykum salaam maaleykum ay waay mais taxut a dara waay naan naan naan naan suuf si Fall voilà yaa ngi gudd Fall. bii la. naan Fall mais yow loo koy Fall butéelam yow loo koy tooy yéen ñaa yéen ñaa yéen duróo. mu daaj ko ko Fall. Fall jërëjëf eh bu ko daaj jox ko butéelam. yow mu duróo mu ko sa butéel sa boole. def ma ni yaa yaa bokk loolu naam. yaa benn ngeen. ña nga dugal moom titi ko tooñ. Eh. xoolal kanam gee kanam gi waaw ah, wuyu ko mu nuyoo day nuyoo noppi. Eh, ngeen doo xaar day nuyoo. Fall nuyoo Fall xanaa émission bi jeex doo mu nuyoo de. tëggal li. asalaamaaleykum. maaleykum salaam. oui oui ça va tey. ay ok Ahmed. mais li baax looy xaar pour jënd. ay Fall lay nuyu. mi ngi nuyu Sénégalais yi nee na. waaw. oui. maa ngi ko def na jël temps ku la yàlla looy ñëw def bi. allo. na xolom. ala waxal rek nee xolom. loolu la Fallou nag. nee na moom la Fallou nag. waaw waaw. mbaam xuux. Eh, moo yow yaay mbaam xuux. Fatou wax Fallou. waaw parce que ma wax am problème. waaw Fall nuyoon. xoolal jëm kay. di donc maa ngi nuyu. est-ce que yàlla dina ma ko baal. nee na loxo fi fii day metti. doo ah loolu suba duñ liggéey. méttiwul de. nee na méttiwul. waaw. eh wa Fallou gi apporté Fallou itam waa agitation. Ah, maa maa si bi apporté ah, benn naa. waaw ah, Fallou bi yëndu fii am na lu muy yëndu fii de Fallou. eh bàyyi sama yëndu Fallou lu muy yëndu fii de. <laughs> bàyyi sama yëndu Fallou la yëndu fii. Baye Modou kan tooñ nga ma sama sant bi waroon naa ko sant si beneen plateau. Fall nee bi am na lu ci ne amul problème del liyaar. maa la Fallou la nee na moo la Fallou. waaw. Oh, oh, oh. Fall yaa ngi nuyu man. nee na moom. yow rek. yow yow rek. waaw. dëgg la. kii. de lu ko nuyooti. nee na du ko nuyooti nee na man du ma nuyooti. waaw du la neexee. yow kii. du doon nee na nuyu magam bi mbokk ndey ak baay Ousseyn. kii yaa ngi bokk ndey ak baay yaa ngi bokk ndey ak baay yaa xam. man. waaw. naan gërëm kii. ko. eh waay. tey ko may Nguuda Ndiaye la nuyu nag. kan mais mi ngi nuyu Nguuda Ndiaye. waaw ak kan. ñu ne invité doon nuyu biisu. Eh, Nguuda yaa ngi koy invité ma ko dafa ma defal surprise bi. oui. bisu nag. nee na nga may ko biscuit. non bis bi nag ah nag waaw. bisu la ñuy mel bisu. nee na nee na mi ngi nuyu bisu. ñu nuyu bisu waaw. ak lan lan moo waral sa teewaay fii tey lan moo waral sa teewaay lan moo tax nga ñëw. man. Hmm. Fallou. Hmm. man. Hmm. artiste man la Fallou nag. xam nañ ñoo la fàllu. waaw sonn na ci yow. da ngaa xew àdduna bëgg la. waaw fàllu ñoo la fàllu rek. waaw maa xew yow yow lekk. ah dégg nga. ah. su yow bi ah. fu ma xoolee tey naka ma yow la. parce que parce que Fallou dafa jama. nee na ma yéen ñaar ay man dof yem nañ ma aywa yow nag dof ay dof yi loolu ma bàyyi ngi yàlla. waaw aywa lu dof dof yem ma. Eh, man du ma dof dof ngi noonu waxal beneen dof bi. allez vas-y. si yéen seen ñaari ay bokk ndey baay kayta la sant bu sant kayta eh, ah eh, ah eh. allez vas-y Abdou Mansour lii du ma la ko baal ah, bi soxal na ah mun day foofu doole wuy ma eh. euh, d'accord gis nga eh. euh, euh, Fallou man maa ngi lay Fallou maa ngi kontaan bu baax ah, ci émission bi du dëgg waaw parce que tey wax dëgg yàlla bokkoo woon ci invité yi d'accord xam naa ni émission bi tàng na rek nga ñëw loolu rafetlu naa ko bu baax wax dëgg yàlla mm-hmm. ndax su ma jumulee maa ak yow est-ce que ñu ngi door a gisante mm-hmm. wala euh, gisante nañ yu bari yoon xam naa du ma ci bàyyi xel. Mm. mais kontaan naa bu baax sa teewaay ci émission bi. alors <laughs> parce que euh, euh, yaakaar naa ne émission bi émission ñëpp la am nga ci part de responsabilité am nga loo ci war a. bu dee spécial en fait. spécial la tey moom nañ ko dañuy yow bokk nga ci ñi nga xamante ne. Mm-hmm. dañuy dindi stress ci Sénégal du dëgg. nga ciy def liggéey bu am solo. waaw quoi qu'on puisse dire ak handicap boo mënti am sénégalais yi am na lu ñu la bëggee donc dañuy jël ki ci ligne bi. ma hmm. ñëwaat léegi ci yow. Hmm. ah euh, Ousmane Camara depuis États-Unis ñoom ñëpp ñu ngi di gërëm bu baax euh, euh, Lifa ah depuis Belgique Toumani Saaku ñu koy gërëm bu baax waa Xelkom 313 aussi Lamine Faye. Ngone Diouf allo Lamine Samba neen dafa war a liggéey mais lii lii. <laughs> ngeen ko def nii du leen ko baax allo allo alo allo. allo oui. waaw. bisu laa soxla woon bisu. muy nit di wax ak yow waxal. maa ngi lay déglu bu baax bisu. Mhm. je me dis que yow yaa ñu yàpp il faut se sur des débats plus pertinents. Mhm. Mhm. allo. bis yabu leen de. non baax baax yow boo jàppee ni que yabal la sa xel a toll foofu. jërëjëf merci beaucoup bu mënee dugg tey spécial dindi stress. looy woote kon looy woote dina ñëw. looy woote nga mel ni toll looy woote. ma ma ma ma yaa woote. et fi wootoo yaa fa paañ. fi ku wootu yaa fa jaay paañ. Euh, je rien tout ko opinion am la ku nekk ak sa opinion. même bu fekkee mën nga dugaat sax wax li nga bëgg a wax. moo Sénégal. Hmm. Sénégal dafa am ay ñoo xam ne nii xam nga gars yi dañu yaakaar ne te maladie mooy ki nga xam ne handicapé la. Hmm. ki nga xam ne dafa feebar. Hmm. maladie mooy ki nga xam ne sa xol dafa bon yow te maîtrise personne. pi puis sa philosophie moo baax ba kii def émission bi nga xam ne bii si yaa ngi yab moom kay moo yab nday nit ñi moom. avant de parler il faut référer nday sur. ok ñu continuer euh, euh, waa stress sax mm. abaa xam nga bu validé dara ci dindi reetaan abaa lu mu validé war naa la sax waaw dañ koy respecter sa euh, continue l'émission abaa fef si tout ñoom ñëpp ñu ngi leen gërëm ah laay la chef mm. DJ Padros ñoom ñëpp ah, Padros waaw Jantal Mara Khadija ak ah, ah, Kalzo si mi ma oto léegi muy Lamine mhm. kii El borom Montpellier moo moo dëkk tege nee Pawlish may naa la benn Chevrolet bu rafet bu giri ngeen ñaanu ma yàlla suturaal ma ci yaa ah. euh, Khadija wax nga dëgg la télé aussi c'est du divertissement te lundi ba vendredi xam naa ne dëgg yàlla confrontation li ñuy liggéey ci ci ci ci temps bi a am nañ fulla Euh, euh, dañuy jàll ci Abdou Sall bi nee na ñëpp ah? kontaan nañ yàlla ñu yàlla fay yàlla na ah, Sénégal dafa neex lii la ñu mooy dindi stress te ñii yàlla da leen di fay li nga xamante ne ñu ngi koy def mm-hmm. waaw lii lu neex lii ñuy def mm-hmm. gars yi lii boo ko daggee yàlla na la jik <laughs> yàlla na la jik rek karaajo loolu rek laa lay wax mm-hmm. Antou Mbaye euh, ñu koy gërëm Papa Ndéri ah vo borom ministère des sports ñoom ñëpp ñu ngi koy gërëm ñu ngi leen di gërëm su ma limee nag damay juum. no ah, tey moom gëm naa ne bu ñu limee du ma mën a lim duñ mën a lim ak ñi nga xamante ne ñoo nekk ci YouTube bi ak ñëpp ñu leen di gërëm. ayca message nga mën a lancer yow boo xamante ne rak rang muy gaaw. waaw day jël temps. rang muy gaaw ñu ko. yow rang muy mm. mm. bëgg a wax laa bëgg nga wax nga bëgg wax na wax ko ñëpp a la ngi Farba Seck dafa feebaroon mais neen tan c'est normal mm. merci Farba Farba Seck muy tëgg sabar waaw tëgg tama moo tëgg sama single yu bëri bàyyi Fall wax tamit ah, Fall waxal Fall waxal gaaw Fall dëgg dugg sa jiim bi <laughs> yow mi soo fukki tubay juróom nag ah man tubay kalson foo li ngay forox xas lal day gaaw wax ma nga wax rang wax rang rang de wax rang muy gaaw yow léegi fii ko rang Fallou da ngay nuyoo nuyu ñëpp <laughs> nuyu say fan say soppe léegi comme yow sa spécialité bi ñu xam <laughs> ni ngay dugg see parce que kii ku ne xam ne arrête de faire genre mhm. moom tubaab la léegi dëgg rang muy dimi problème vuruj muy Ouzin Keita mais yow compter ma ba huit un ba huit rek laa la may ci reer bi plate bi yaa ko yóbbu euh, euh, euh, fifty boole ko ci reeru un mois yi aussi ah Fallou ayca eh. ayca ñëwal. lu ngeen may ñii may leen ko fàllu parce que invité surprise da xalaatuma ko woon. et puis orange euh, ketchup la nga ko war a yónnee ci États-Unis oh, yónneel fàllu tamit. Mm, voilà ayca ñëwal. ak teere yi ketchup sama xarit bi. Cheikh Kagne ñu ngi lay nuyu bu baax. barke Serigne Touba kii bu ne lay wax tey émission fi lay dakk. compté non day compté ba mu compté un deux. trois un. waaw. deux. waaw. trois. quatre. sept. Eh, huit ah quatre sept. douze. waaw ah. treize. quatorze. naka njëkk ma xam mbokk Pawlish mi bàyyi la onze. douze. treize. bisu quatorze. A. B. Z. D. As. dugg fee. dugg fee. Monsieur. Paalu. Paalu. Uh, mbokk yaay euh, ay loobe ngeen euh, euh, noppi li eh, moo tax ngeen mën waxtaan ay mbokk ngeen c'est seen làmb yi seen deux trois quatre sept huit onze douze treize quatorze quinze A B Z D H S. U J. J. K. K. N. M. L. O P. noppi Q. J. K. dugg fee. Y. dugg fee. Eh, rang muy gaaw. d'accord Gora Fall ñu lay nuyu bu baax Gora sama Gora. maa ngi koy nuyu bu baax. Eh, sama xarit. Eh, kan amaama. nee na Fallou may na Fallou Pawlish euh, euh, Mbaye tamit euh, kii Ousin tamit may nañ ko benn scooter ah. Mhm. gars yi man man waaw mais yow kii du wootee jas diaspora. Mhm. waaw diaspora waaw ah, ah moo parce que moo dafa war a def social am. ci ah moo gën sama waa ji kenn du moom. moo gën borom millions yi. moo gën mu ngi jàppale doomu aadama yi moo ngi jàppale ñu nekk si koso si koso yi moo ngi jàppale ñi ñuy jàng di leen jox fiiritir mu ngi jàppal doomu aadama xeebul kenn sama waa ji kenn moom boobu États-Unis ne ko États-Unis di aayoo war nga prix bam kenn du yow fu mi toll moo gis raxa paanu ndox ñi war a foot fóot ñi war a sangu sangu. ah ba tey gars yi mën nañu woote ci. 98 euh, 14 euh, nee na ci comédie musicale bi ngeen def may na leen euh, bit boo xamante ni da ngeen def duo. li ngeen bëgg wax yëpp ngeen def ko. ma diyoo kan ci diyoo. Ouzin Keita non non du ma diyoo. yaa nga diyoo police lan lay wax moom lan lay wax mooy yëfi dafa. bu ko yàlla neexoon bu ko neexoon nga seetlu ko lay wax. Ouzin bu ko yàlla neexoon. dafa diwlin. yow bul sotti kenn. yàlla amoo. wa mi ngi naan de. wala ma daar wala soo génnee sif sifal wala sifal Fallou. ati Fallou mu Fallou ñëwal. mu gën kese. gàncax gàncax man man la Fallou man yóbbu ma mu gën. Fallou da ngaa juum moo gën wala Fallou. xam na raja Fallou Mongo na loo xam ne lii guma ko mais raja moom may leen ay soins corporels. jaanaaf tey mu dafa bon sama boo doon liggéey tey. mais ñëpp nga ñoom ñoom ñoom ñett ñëpp ku ci nekk ñoo ngi koy woo donc waxal Babs mu woote gaaw mu wax ak gars kenn du yow. ayca ah? Babacar Diaspora ñi ngi xaar appel ñi ngi xaar voilà. Euh, euh, euh, léegi kii hmm. nu mu tuddati man Fallou tu as fait ma journée Euh, Bijou yow yéen ñaar ñi waaw. Bijou foo ma. mais euh, dama bëgg kii dama ko bëgg a woy ni ma dama ko bëgg a woon sama talent ni ma. ah Bijou nekkuma VIP. léegi ma ah, xaaral ma wax nekkuma VIP xeer. Ouzin moo nekk ba États-Unis woo Mour Gueye passe ma ko trop sama waa ji. waaw d'accord léegi léegi seen duo bi yéen ñaar. man dama ko bëggoon sama talent. Fefsi nee na daf leen di defal duo. voilà pare d'accord ngeen waaw wala déet. man pare naa bëggoon ko sama talent. léegi wala moo def duo léegi prestation yi ñu ngi ciy ñëw il faut que téléphone bi. ñu pare ci waaw ak rajo ñu ñëw ci prestation yi tëj émission bi parce que lu neex tamit day jeex. waaw bisu dana ma dimbali ngir dem dama sonde lu neex day jeex dana ma dimbali ngir dem rasulilaay ay julli ngeen te ay julli ñun ñëpp ngir dem rasulilaay ku nekk góor la ku fi amul ku fi nekk ay góor la ngir yàlla kii dugal jéenam bi te yàlla tax ñu lay sax xam bi depuis Los Angeles ay DJ daala ñëpp ñu ngi leen di seetaan ndànk rek gars yi gars yi ñu ngi leen di seetaan mais jiini jàmbur bi du ah. sa jiin moomoo ko jëndoo ko sa yoon nekku ci eh, eh, dafa mel ni yow yaa ngi yaa ngi jëfu naat yaa ngi jëful li ma si def ba ba ngay jëful eh, ma xam naa yaa ngi jëful Boubacar Kane Bouba Bouba ñu ngi lay nuyu yaa ngi jëful de Pawlish euh, <laughs> Babandiri Babandiri lu mu neex day jeex nag nga naan ma ay redivision. beneen couture lii du amaat. benn yoon lay doon par dafa am foo xamante ne dañ fa loon ci waxtaan bi. Euh, euh, ñaar ñii jàpp nga ne war nañ def duo waaw wala déet. ma defa kan parce que Fallou neen da ci def cas boobu. cas boobu ah, fef si neen il faut Fallou def si gim tete faa mu nekk référent bi. Ah. waaw loolu moom loolu moom war na mën a nekk quoi. Ah. waaw war na mën a nekk parce que affaire bu business la. mu mhm. ki leen def rek mu apporter la dara gars yi ko def ko quoi mhm. oui man gis a loolu nga leen di conseillé waaw gis naa loolu ñu def ko quoi. mais yow lan mooy sa kii ak Pawlish de ngeen bëgg ngeen am jàmm pour nekk ci jàmm yéen ñaar je pense. non émission bi moo waral lool rek après ku ne da ngay gem li ngay gem la ah, ah, <laughs> ni ma jaar ni da ma jaar. wax wax ci ma waxoon léegi yow Ibou Sow Ardo nee na Ousseyn. waaw yow nga compté comme Fallou. man du ma compté. waaw li <laughs> ñu may compté. xam du ma compté in ma fi. tey ku woote Ibou Sow Ardo dama bëgg nga teral teral ma ñi ku nekk dama bëgg nga génne ma benn sopp nañ trop jox ko gars yi parce que bëgguma tamit message yi ñu koy jàll ñu sonn nañ tamit li ma ko jàng ma woy si woy ma woy waaw du ma compté wayal kii way na sànq fef si nee na nga way li nga xam ne moom la ñuy dugal studio man lu ma way moo bu neexee ma wan karambeera bu neexee ma tànn mais wayal da ngay way ñu dégg ko lu loolu bëgg ma way da lu la neex yow wayal lu la neex yow loolu gis yow loolu ni may caara caara loolu jaamu la nekkere ko fu la neex ni mbay caare Ousseyn abada ci maa ngi ko ñëw man Ousseyn kaay man la man lay demee man lu ma neex lay demee man dama nattale ma man dama saf Sénégal man nu ko neex lay dogee man uuse Koita man dama xew bi waa yéen koo leen bëgg non non fii oh. taasu nag ay acapella waa koo leen bëgg amul taasu kay dama guddi amul taasu xoole ma def non non fii fii xoole fii taasu acapella rek sa jim bi moom énergie Euh, euh, euh, Fallou. defal sa prestation ñun balaa ñu ñëw prestation dimi problème rang muy gaaw. rang muy gaaw. sa prestation gaaw. munoo taas moo tax. boo taasoo daanu. waaw baax na. munoo. borom états-unis de Fallou def ñaanal fut. wéer bi munaas tout le monde nee na may na leen mille. munaas kooku sama xarit munaas tout le monde waaw sama xarit la. na gars yi na munaas tout le monde xam ko sama xarit la ko baax munaas moom Fallou. munaas tout sa acapella Fallou Fallou lan la. daa mun a ko yaa ngi bi. Fallou fële mu bokk ak. rentré émission bi jàpp ak jàpp Vuruj muy police Vuruj muy Ousseyn. arrête de faire genre Fallou neexu leen na. non non non non non non non Guincece Fallume Gasse Guincece Fallume Gasse Guincece Mo Guit ñëw ko ba tey ñu koy woore ana Mo Guit Yàlla Fallu Mo Guit ah, bu la li otula otula otula ku lay dawala ayo ma ku la dawala man ba ba ma ba auto dawala form bay ma yor naa France bisu waxal kii eh. pa fu am taxaw form ah, bisu bisu ci Edmond Flo mi ngi leen di nuyu di je ah, ah, Edmond Flo mi ngi leen di nuyu. Ah, mi ngi leen di bëgg mi ngi leen di bëgg timin. maa ngi leen di kontaan ci ci teewaay bi ci émission bi waa kii ba waa Saar boobu. Fallou euh, euh, euh, merci beaucoup. damay ñëw ci 10 000 10 000 may ñu benn prestation boo xamante ne moom nga ñu war a defal ci li nga immigration clandestine bi parce que Mascoki mi ngi la koy ñaan sànq. Hmm. ayca may ñu ko tuuti. affaire rek kii bi ah. Mhm. ci immigration. Gazelle yaa dama bëgg nga teralal ma sama sama sama gan yi du dëgg tey dama am ay gan bëgg ngeen teral leen teralal ma sama sama gars yi. Ah. waaw waaw ñu jël rek di ñaaxaat jeunesse bi. moomu ñu ko may di ñaax surtout population au ah, Sénégal yi nga xam ne ñooy. saa loolu ñu ko may France jaar ci ah, gaal di dem pour naan xam nga yéen dëkk yi. toujours rek mais xool jeunesse bi nan bàyyi seen xel bu tar na métti na quoi. Mm. mais nan gëm yàlla. ba pare mais yow yow 10 000 man jaaxle naa parce que yow sarab yëpp refrain la. Hmm? même son bu mujj bi refrain rek nga ci laal refrain bi rek. il faut refrain day séer refrain bi rek nga ci laal. non loolu loolu mais man sa texte dama bëgg dégg texte boo rabee rabal. non non non quoi. pourquoi doo def play. fi rab parce que kii daan rab bu fi kii mën na daal. ma koy wane mais du ma def affaire xam nga mooy loolu de Jackie Chan bi karateka bi nga yor nii gën a xam mhm. fi sound quoi. Mhm. waaw parce dafa am message may lancé waat tamit affaire de clandestin yi. Mhm. ngir yàlla toujours ñi jaar si gaal yi. ñii di def immigration di jaar si gaal yi. waaw pour man nag euh, dem kaaw jarul ngay jaar si gaal yi jaru ko quoi. man man ñii gisaguma ñuy wax ci benn kàddu lan ngeen wax seen mbokk jeunes yi nga xamante ne ñu ngi jël bato bi di dem. waaw parce man damaa demoon toog man damaa dem Europe xam xam li xam li Europe xam naa ne amul dara. ñëwal ñu foofu dañuy waxtaan lu logique ah. Mhm. Europe soo soo fa defee quatre ans. Mhm. soo ñibbisi. Mhm. un mois yi da ngay commencé diw pour leer jël ay seet takk ko. Mhm. parce que foofu dafa metti mhm. ma nekk naa Italie. Euh, di di di nuyu sama papa Abdou ak Mori ak Cheikh Abdou maa leen nuyu. borom mhm. ba gën a metti ci lu yàlla bind. ñi ñi jaar ci gaal gi nag man du ma leen forcer pour ñu bañ a dem mais dafa metti parce que man dem naa fa. wërsëg fu ne la lay féete man boo liggéeyul dina métti man daa foog fa la sama wërsëg ne. mais dama suñu borom damaa indiwaat fii ma gis fi sama lépp. suñu borom mooy xoolee mën nga dem Europe vingt ans doo am ñaar dërëm nga nekk fii un an am fi lépp Europe nekkoon rek da ngay dem tekki suñu suñu borom moo yor tekki bu doon tekki maçon yi ñoo gën a ñoo gën a li li ñuy daj boo gën a métti mu ko ci àdduna man maa ngi nii wax waxi dafa laay wax rek waa ci am lépp kon ñoom ñoo war a tekki tekki suñu borom mooy xool li ko neex mu def ñi dem ci géej gi nañ bàyyi xel am nañ yaay am nañ waay am nañ papa ba seen seen yaay bu ñu xamoon ne bu ñu demee ci géej gi dañuy dee seen yaay du leen bàyyi ñu dem te seen yaay leer na ma ne bàyyi ñu leen ñu dem yóbbu sa yaay mën nga toog fi yóbbu sa yaay màkk wala bi nga xamante ne yaayam moo ko paasal nag est-ce que du yàq est-ce que du euh, déception bi ñu am ci peut-être euh, euh, ni dëkk bi di doxee moo tax ñu jël gaal gi parce que gaal gi tamit jël ko rek du seen coobare. aussi waaw mais parce que. ñi kenn du dem pour dee dañuy dem pour tere seen ay waajur convaincre naan Europe yi nii te Europe amul dara fenn Europe fenn rafet fi ni jaay lekk moo rafet fa ngay taxaw ci napp xale nga rey seen bopp fenn rafet fi ni jaay lekk rek moo rafet. Hmm. kese kese fi nga nekkoon yow moo rafetul. non man maa ngi woon Venezia dëkk bu gën a rafet Italie. Hmm. Milan dafa rafet. mais Brescia nga nekkoon fa nga nekkoon. Venezia Venezia Venezia dëkk bu am lépp falaa nekkoon nekk Milan kon xam naa Europe ni mhm. dafa metti suñu borom mooy tekki dafa metti man ba ma ñibbisee wax bu dee wax na ma ko ba ma ñibbisee Europe sama yi dafa xar sama tànki fett ba sonn naa ma ñibbisee toog xaar yàlla ba yàlla suturaal ma nii tekki nekk la moo tax nga ñibbisi metti mais jàpp woon ci dara la waa waa kii bu noppi man damay génn bisu du xaaral bisu na nga kaa non non xaaral ma ñëw waaw mais yow nga tontu su métti damay génn yaa nga dem woy ma moom mi lay dem amoo këyit bu baax ci émission bi bisu di respecté yére bi ni ñaar mooy am man damaa dem pour liggéey mënoo tàkk damaa dem liggéey suñu borom mu metti torop da bisu nag mu metti bisu bu metti ba dama ñibbisi non non góor yàlla bu metti nga daw bu neex nga sa fekkee jàpp tool nga at ko yaa xamul eh, ne xamul metti man dama ba sama adnam daala ne kon daara dëkk may Njaay gol bi jàngu alxuraan waaw Mbay Njaay ko bi see xol benn ni nga jógee daara eh, bay bi nga wax sànq yow ni nga jógee eh, daara ma bay bi nga wax sànq yow ni nga jógee daara ni nga mel Moustapha ma. kii moo ko moom eh, Moustapha Mbaye nangu ma ko de. Ousseyn may ko mu daal mais kii lu mu wax dafa immigration. yàlla na dugal diinam bi ma oh, na dugal diinam bi mi ngi may énervé. dafa metti billahi wallahi dafa metti dafa metti trop parce que France laa njëkk a nekk ba del nga dugal diine ba pare parce que. aywa dof bi j'ai comprendre. ay bi dof bi ngeen di kan la ma nekk France génn France dem Italie du dem Espagne. ñu doon na fa ñu ñëpp. xam nga dafa métti ngay dem di wër baare dafa métti ah. nga wër baare wër baare bi wax bi. <laughs> Ah, <laughs> gis maa la gis maa gis eh bii ba may ànd ak ba waat sekk naa ma bu pare. waaw dëgg la boobu pop taa pare moo ngi Europe di Moodu Moodu. moo dee ma kay Europe. man man bi ñuy dem kii la yàgg ba sa passeport ba réeré ngay toog ci affaire bi waaw moom laal waaw moom laal Europe sa bopp jagoro leen après loolu nga may ko ko ah, fàttali ko njaga waaw waaw njaga waaw pour nga xam ne bokkuñu ba may ba nga dama sama tukki dafa divisé eh man xam laa tukkee xam laa tukkee ma taraxe gaz ba dëgg xam laa tukkee jiru toog nag mu mel ne jiinam bi xam laa tukkee xamaguma dara mënaguma dara dëkk bi dëkk bi dëkk bi du tàkk ma ñëw yëg si seen seen gu mag laa yëg ma yëg si ne yëg bi si yow yoo xam ne mosoo benn seen bu baax yow mosoo seen baax fu may tax a taxawoo fa fu may tax a taxawoo fa nga dem ambassade yàgguñu ma dama saf Sénégal. xam nga seen baa ngi nii lii sa nit la woon. man maa ngi nii. mais ana foo taxaw. xam nga ana foo taxaw ana ana foo taxaw. ana foo taxaw. aw ba leen aw ba leen fii eh, xale baa ngi taxaw naa fa ma wax. barki yàlla bu ngeen noppal ma wax. ma may naa bi jeex. parce que ah? gars yi ñu leen teral ñu dama du xaar lim ma jiin jiin bi ma énervé rek je suis énervé jiin bi rek dof nga. jiin bi na bu leen jiin zoom ma jiin. zoom euh, euh, ngir yàlla doo leen bàyyi papi doo bàyyi jiinu Ouzin bi ngay jël. allez vas-y zoom allez vas-y papi papi papi papi dama bëgg a dégg ma. allez vas-y zoom bu la neexee da nga jël sama carrosson bi maa ko wàccee ndax damaa xam ne deux fi mu fi ma be bee passé may ki ma naata moo tax tay ma ñëw ak ñëwam moo tax tay ma tàkk ba ma ba ma ne ko point deux. allez vas-y zoom le jus. Eh, s'il te pare lépp tey damaa pare xeex ma xeex. ëpp naa dem bu desee léegi nañu ñëw ci immigration clandestine parce que tamit lu am importance la ñuy wax. waaw dëgg la li nga wax ay gasal gaa yëpp loolu la ñuy wax. man bu clandestin bi. maanaam yow mi jeune. di jaar si gaal yi sa xel. ñoom mi jeune la wax de mi jeune di jaar si gaal it pour dem kaw ba moo tey yaa ngi dem Europe te amoo këyit léegi gars yi ne ne émission boo ko tëyee dañ lay bàyyi dimbali li ma ci rek mais boo ne cëpp kaw ba yow en tant que yow yow mi nga xam da nga jaar si gaal yi hmm? war nga xëy suba ñu la exemple sa papa wala gaañu na may ñu rek sa papa gaañu na wala sa yaay gaañu na waaw foo jaar ndax ba mu kii ba doo mën a ñibbi ndeysaan doo mën dem fenn kon yenn jaru ko ko oui tamit yàlla na yàlla jàppale xam nga tu vois nañ ni gëm yàlla gëm suñu bopp métti na de réew mi métti na tardé mais nan ko maîtriser quoi waaw. ayca euh, euh, euh, dafa am foo nekkoon yow kii. Pawlish eh, eh, yow yow ne dañu nekk di jël gaal gi. xam nga xam nga doomu aadama. Ah, ah, sa waat te dëkk bi metti def naa benn son boo xam ne damaa woy si gaal. Mhm. woy si Mourguet soo bëggee dëkk bi tàcc Ah, man man man Ouzin Keita maa dugg si géej gi dugg si gaal gi naaw si géej gi. yow naaw bi waaw manqué waaj. li ngay naaw lan si géej gi. yaa dugg ci géej waaw noo génne maa maa maa dugg maa dugg si géej gi. après noo génne dawal gaal loolu c'est dama kaa wax pour ñuy di xaar. maa ko def wuy doomu aadama ñi ñaa ngi dee affaire bi daf mel ni xarul wax di wax ñi ñu ngeen toog ndax olof Njaay nee na bu méttee nga daw bisu. buy neex doo ko mos a fekk jàpp too baay as golo ko mën mm-hmm. olof njaay nga jàpp too baay nga ñaan yàlla suñu borom maa ngi ñaan président mu jàppale doomu aadama yi mm-hmm. ñi nga xam ne seen loxo jëmut seen ginnaaw ñu bëgg a visa bi jafe si ñoom nga jàppaleen te yàlla tax président sama papa nga lu ma sa ñaan may nga ma ko dang ma bëgg sa jabar bëgg ma madame Faye Sall lekk dara bàyyi ma moom may jox xaalis si suuf moom may jox boo xam ba fa kenn xam damay sant yàlla xam nga damay sant yàlla biso mm. ay àddina ñi ñu baax ne maa bëgg biso diin bi di ko ba ñu ko am xaalis biso toog naan am naa nangam waaw alof Ndiaye ne ko ñëpp foom du ma sa àgg biso <laughs> nànk nànk mooy jàpp gone si ñaay di wax tam ngeen toog te ngeen bàyyi si gaal ngeen dem toog leen arrêté leen arrêté leen bàyyi leen tamit ñi ñaa ngi dee dèjà ñi ngeen mën ay jën dégg naa fi mu tudd dëkk lébu am na koo xam ne léegi avant ñuy ñëw ci picc yi parce que euh, dinañ eh, ñëw ci maladie bi nga xamante dafa ngoog dafa nekk jën bisu kanam nga nekk jën dégg naa kan kanam gi moo nekk jën <laughs> ma kaa dégg na wóor ma wóor la ku koy wax ci eh, ne ma ma kaa ñu wax ko na ma kaa envoyé mais jina bi bi mooy métti bisu jin mooy métti soxla dina tàng ndax jin mooy sa sacrifice li li li ma dégg ma ma defal sama nen moo tax min sama jin jiite jin bi xam naa xam naa tay dégg la métti te tey kaay ma xam ñaar ku la aj ku la aj benn problème damaa pare tey sama ñëw. waaw tu penses. léegi dafa am ñoo xamante ne Fall nag wax ji day yéex moo tax xam nga yow rang boo sa sentiree rek waxal waxal. daggal waxal ñëpp wax boo nooyee ba sa xol sedd rek booy war a wax. waxal siif ñu ñun ñëpp dégg nga nga dab ñu ci waxtaan bi. waxa Fall lan Fall ko xaar. non émission bi non wax rek. nga war a wax ci immigration clandestine. ñi di jël gaal di di dem dañ ciy am loo ci wax. déedéet. moo ma ci wax ah yaa gore. yaa ñëw ci beneen point bi. Eh, eh, coronavirus bi mi ngi jeex dak mi ngi jeex Sénégal. Mhm. mais am beneen feebar boo xamante ne mi ngi commencé di ñëw. ban mu jaaxal gars yi. ah jërëjëf muy mool yi nga xamante ne. laay ban feebar yow. non bii eh, yi. ñu dem dégg naa tubaab bi la. Mm. dégg naa tubaab bu tudd Jean Paul. entre Thiaroye fii la town mhm. te nag bàyyi na si état bi jël responsabilité am ñu xool parce que tamit nga tey état bi ni benn mool ñamatul géej pour dem géej. fu muy jaar sama gàllankoor am na mooy fa nekk boo demee xool mi naan mais booy booy ba léegi sax. dañu doon dem ma sama gars yi du dëgg. moo gën de gars yi demuñu géej aywa ñu baax na. ku ci ku ci la am loo xam ne yow boo laalee benn dal. ana 300 mini ana oto yi ana kër yi. Euh, euh, Ousseyn maa ngi leen kii yeggali s'il vous plaît. waaw li may ñaan le président rek mu jël responsabilité am jël say matuwaayam ñu xool lii nan nan koy saafaraal ñu dimbali nañu quoi parce que mool yi bu demee ba toll si géej gi rek mu am benn nu ñu wax ñu ni benn xool ak produit la boo xam te ni bu ab bato ko fa sotti man gëwma na nag nit ñi wat bone na noonu ba nga xam te ne ñoo bëgg ñu lor Sénégalais quoi parce que tamit il faut ñu sóoraale quoi monde bi dafa nekk ci benn benn buul boo xam te ne benn tour quoi ba pare dafa rax yi ab bagage ñu siy géem daa bëri ñun nag may ñaan ñu wa bu nu sacrifice quoi bu nu sacrifice ngir yàlla quoi waaw ñu am ña leen bàyyi ñu dund seen dund ñu ñàkk mais tamit lii dafa garaaw bu ne ba nga dégg ni géej gi instant bi nii ay moolam fa nekk ak nga ay picc ak mm. ay taabak ay yii mooy gën fii ba sa kanam nii nii te booy yëppar léegi instant bi bu fekk dematuñu géej mm-hmm. gars yi instant ñu bëri ñemetuñu sax jënd jën mais loolu tey jii kenn dina ñooñu lan la ñuy dundee. ah mais gaa tout cas gars yi ñoom ay ñoom ñoo xam jàng ba yor pouvoir yor alal ju bëri yor doole yor moyen nan ko géem quoi. Hmm, ok euh, si seen xam-xam yéen ñeneen ñi. Euh, yow Ouzin lan nga xalaat ci loo nga xam ne mi ngi daal ñooñu parce que ba may ñëw ci problème mu kaso bi ak dix mille. Hmm. Euh, loolu xam-xam laay wax. ñi ñi ñuy dundee ci kaso bi eh, gars yi. damay wax bisu hmm. di wax président mu jàpp si te yàlla tax. wut si ay saafara ndax loxo lu mu def loo mën ko dundee. dëgg la ñun ay sénégalais nan ka euh, tubaab bi duñu duñu yërëf duñ ko nangu tubaab euh, mënut a am dix doom les sénégalais yi am na ñoo xam ne quatorze na am am ñoo xam ne am quatorze doom tubaab mënut a am dix tubaab mënut a am doom pour que tubaab bëgg wàññi suñ wàññi suñ euh, wàññi doomu aadama yi di sànni géej gi lu ne dëgg la loolu président ma su war a saafara waxal tubaab pour ñu wax ñu arrêté ñu di wax euh, di ñaan kilifa diine kilifa aada yi ci bàkk Seydina Mouhamed sang sang yi di tàllal sama loxo di ñaan di ñaan kilifa yi a eh, eh, eh. ñu saafara ko ñaan si feeba bi arrêté ndax daf dëgg yàlla toog nañ euh, toog nañ lu yàgg loo xam ne kenn liggéeyul métti lool ngay wër di ñaan di woy di di saama mbayaan da koo ñaan bu yàggee du la jël bu yàggee du du du du faale tam ñu xool leen daal yàlla su yàlla yàlla def si barke Seydina Muhammad Pawlish ci loolu rapidement waaw ah yàlla lu ah, yàlla suturaal rek ki li ma xam dara parce que suñu borom mooy xool li ko neex mu def mhm. mun na nekk tubaab bi mun na nekk balaa la suñu borom daal ma kenn xamul lan la nan yàlla yàlla may nañ mucc ak sut <coughs> yàlla suturaal ñu loolu laa moon ci lu may wax te géej dafa am géej ah, li nekk ci li nekk ci biir ci ah, moo nekk ci biir géej nit ñi nañ maytu bu baax a baax géej dafa doy war man parce que man man ndox xamul ma ci xam naan man du ma du dem géej parce que ma ko xaw ma ko astafurlaa doon géej bés yaaw nag falaa dëkk yaa noonu yàlla suturaal yéen doo comprendre bu baax ni nga bind te sa ji bi nga dugal ko essayé comprendre problème boobu daal yaa noonu yàlla suturaal daal Fallou daa am allez Fallou kon xëy na taxawaay téléspectateur la fi taxawee. Mhm. Fallou loolu euh, euh, Ousseyn tamit jàpp ci. Ah. Aliou Fallou. Fallou Alifa sama xarit. waaw bi Ousseyn dafa dafa jiitalaa benn simis. zool <laughs> ma loolu. <laughs> yow ñëwal. <laughs> Fallou waxal loo ci am xalaat. zool ma loolu zoom zoom. bàyyil Fallou mu wax. Aliou Fallou zoom mu wax dafay jël élan. zoom. waay. Euh, tey nag. Aliou Fallou zoom. tey nag. Mhm. Fallou. Mhm. man <laughs> yow moom yow xaw ma ventre nga xam ma loolu bisu bisu sa caméraman bi dama dama koy song de. yow waxaat kii moo koy wax lu muy jël te xam nga télé dañuy wax télé loolu la télé da koy jox bu ko faale yow waxaat Fallou waxal li nga wax man dafa daal man dafa man def man waa télé bi daal nan maa maa ngi koo daal. <laughs> Fallou la àdduna boo xefee dégg nga ma bëgg a jël invité. léegi d'accord defal ndànk tegal tëjee sa tool waxtaan ak yow Fallou waxal li nga bëgg a wax. waaw Fallou bul faale police mbay mi di la déstabiliser yow am nga classe ba pare bu ci wax. waxal yow Fallou Fallou waxagoo. <laughs> Fallou est-ce que waruñoo ñaanal ñun ñi. Eh, bàyyi leen jàmbur lu muy waxee ay teget koy dagg. allez Fallou waxal. Fallou nag. Mm-hmm. man. dugg si gaal. déedéet. waaw waaw. man. Mm-hmm. dugg si gaal. Mm-hmm. déedéet. Mm-hmm. man. waaw ambassade France ñu ngi leen di seetaan ñu ngi leen waaw. waaw. Fallou. dem jéej. waaw. dem. dugg si ndox. déedéet. dem jéej. Fallou. mu ne ko man. waaw. mu demoon jéej. déedéet doomu jéej. d'accord mu dugg su ndox. Eh, déedéet waaw lu mu dem. da koy taalif. message déedéet jël leen ko déedéet lépp déedéet. Faalu la ko waxal jëlal beneen rek. Faalu nee na du dugg ci géej du dugg ci ndox. waaye ndox mi dugg déedéet el zoom déedéet. <laughs> d'accord waaw oh, euh. man gaal. Euh. yéeg mu dugg ci gaal. Fallou man man man ko man. Mm-hmm. Fallou. avion laa jël avion laa jël avion. avion waaw nga dem ambassade France. waaw nga booy laak Ndiogu nga dem ñu ñu may la visa nga jël avion. jërëjëf dina ma ne visa ñu dem vacance ñu ma ne visa suñu dem vacance ah. Ndiogu yaa ngi sama xarit naan daja. ah Ndiogu sama ami d'enfance. ñu ma ne visa suñu dem vacance dañu ñëwoon waroon dañu ñëw ci biir. Euh, euh, prisonnier des na beneen dañuy ñëw ci prisonnier. prisonnier def nañ tour de table ku ne wax nga li nga xam ci immigration clandestine noppi leen nga am fula tay tuuti. waaw d'accord euh, euh, euh, damay ñëw ci <laughs> ci caamay ci caa dama bëgg nga arrêté <laughs> damay ñëw ci dëkkuwaayu prisonniers yi ci kaso bi parce que ñoom ñëpp. maa ngi nuyu ñëpp ñu ngi ñuy seetaan. deux minutes ah. mën naa ñëwaat. ma paree surtout ñu nekk ci prison yi. Mhm. du nuyu ñu nekk ci kaso ñëpp ñu caabi féete gannaaw ñëpp maa leen di nuyu. di ñaan yàlla encore je encore Ibou soo mënee oh. message at li nga ma message woon parce que euh, message yi dafa bari mi ngi ci suuf ah. di ñaanal yàlla tamit xo Assane Diouf. moomoo sama livreur bu ñaawul bi. ay ayca Modou. waaw il est temps maa ngi nuyu bu baax sama xarit bi. te condition xool dësën yi waa kii biir dundee. Alioune may na la police deux cent mille ah. Alina ah Alioune ah. sama xarit bi. waa kaso bi ni eh, maa ngi lay dégg. ni koo ko waxul tey du xam. Mm-hmm. parce que jël dafa nekk lu garaaw jël beneen àdduna la. jël ak géej. ak àdduna bi ñoo yam ndax nañ ndax ñetti àdduna yoo xool ñoo am. dafa garaaw. koso dafa garaaw trop trop. <laughs> mais gars yi. <laughs> bu koy defaraat diwin nga génn loolu zoom. yàlla na yàlla xam nga jàppale ñu nekk si jel bi libéré leen. Mhm. parce que jeel ba tar taraay boo xamante ni tey li ko dundul jeel loolu waaw mënu la wax la fa nekk même fa amee sax benn fan la fa nekk dafa garaaw mhm. maanaam condition yi ni ngi ni si biir kaso yi ak mhm. rang-rang bi pakate bi pakataas bi mhm. jagaa bi ngay coof lekk bi ngay lekk toog 15 jours doo dem douze parce que néeg bi fa saturé day bëri nit waaw man bi sama bii paase maa woon Mbacke mais maa woon waa Jéelu Jurbel maa bi nekkoon chambre de maa ngi nuyu waa kii bu baax garde yi nekk foofu si Mbacke bi. waaw Ourossogui gi Agnam Civil ñoom ñëpp ñu ngi bëggee dix problème si kii bi euh, waa maa ngi bëggee waa police Jurbel parce que di bëggee tam ñoom ñoom ba may na la yëre nee na ci li nga wax léegi nii. oui merci di bëggee ñi nga xam te ni. jaay doy ñooy garde yi nga xam te ni tubaab ñoo nekk tamit si jeel yi may xamal askan bi bu kenn mere benn garde problème bi du garde bi problème bi c'est la police parce que garde ramassul mhm. garde jàppewul kenn garde demul fenn ndeysaan quoi ñun ñooy sonal garde pénitentiaire pénitentiaire mais garde dem deful dara mhm. moom si kaso bi la nekk toog fa la yem mais loo ko livré yoon moo naan ko lii mu def lii maa ngi béggee waa Jurbel bu baax te tamit waa Jurbel gis naa ni ma taxawoo mhm. tu parce que problème boo ko amul rek doo xam quoi. xam nga xam nga bëggoon nit maanaam. te condition xool ki détenu yi pour pour euh, que mu garaaw si kaso. mënoo jàpp ni ki nga sàkk heure bi muy dem douze ak heure bi mu dem douze. moo am si kaso yi muy condition détenu yi ndax jagaa bi ngay coob mu nga toog vingt jours doo dem douze. doo maanaam doo dem douze fa sa des noonu la fa demee. Mm. li am si jeer bi jagaa ngay coob pakate lan lay def. mais Samel moom tar na jeelu Jurbel moom mais Mbàkke moom Mbàkke ngir yàlla Mbàkke moom moo gën a bon si kaso yi. Hmm? ba da ngay taxaw nii foofu mais foofu da ngay taxaw te am na fu ñu woowee xool kii fuur ba da ngay taxaw billaahi wallaahi mais si kaw ñaq ngay taxaw. ñax am na gaan boo xam ñax maanaam ñax maanaam. ñax quoi. Hmm. ñax ba sa ba fi nga nekk nga yaakaar ne fii da nga ko soppi ba siwoon ndox. ndax moo nekk benn Jerman. man book ma li ma dund lay wax ah. mhm. ma sama rentrant biir jéelu Mbàkke tap xam lu mu njëkk a def. Mhm. dan ma sang ak ndox ak eau de Javel. na ah. ni sang nit ñi. ndeysaan. yaa ngi dégg ah. loolu na ni sang nit ñi li lay sang noonu man li am jur li am Mbàkke laa lay wax mhm. li am biir Mbàkke laa lay tegal ne parce que ñoo ma gem ma gem foofu fu mu génnee ma gem li ma gem lu mu war a gem. ñoom ñoo def ay bandi ñoom ñoo yàq jeunesse ñoom ñoo tax jeunesse di daw di dem kaaw. parce que amuñu yërmande si population bi. di ko sànq mën la xool yërëmal xool taximan bi yërëmal mécanicien bi yërëmal soudeur bi yow mi homme de tenue yërëmal xool journaliste bi ba yërëmal artiste bi ndax moo nekk sa réew di fi gem pour tekki ba pare ngay am ay problème la dafa garaaw ah. naa dangay dem benn gàlle wala benn bureau bëgg benn papier naan noonu foo nga papier bi papier la attestation li defuñu dara mais am na ko xam ne maa ngi ko bàyyi jéelo jubel mm-hmm. xam sax nga tike fa 1500 moo ko dugal. su ma mënee message aat ma euh, euh, euh, message ma war a véhiculer parce que tamit foofu ñoom ña fa nekk. ku ci mel ni Albert Gomis ah, wax dëgg yàlla. ñu ngi koy bàyyi xel bu baax ah Tange mi ngi koy wax depuis Rebeuss ah par erreur depuis novembre. juste pour avoir aidé. te gars ah, ah, jàpp nañ ki nga xamante ne. teg leen foofu ñu ngi koy plaider pour pour mu am audience dëgg yàlla ñu ngi koy. ñu ngi koy parce que audience yi dafa bare. te audience yi audience business la. d'accord da ngay am moyen mu nekk si état ñu rocc sa dossier. ñu àtte la yóbbu euh, ñibbi. d'accord euh, euh, ku ci mel ni Amadou Gueye Fifty. Ah, borom tapis vert wax dëgg yàlla mooy. ex Cap d'Asie moom nee na chaque confrontation moom mooy indi diine bi. Ah. Ah, léegi confrontation bi nga xamante ne dañuy. diine d'affaire lay doon diine d'affaire lay doon dañuy koy waxtaanee rek. Hmm. parce que ñun jóge nañ ci leen la ñuy rek di hmm. changer hmm. dëgg. waaw am nga 150 millions yow. ci encore ci ci Lille Pro. waaw reer bi nay teel a ñëw ñuy reer à temps. may ñaan Ousseyn Diop depuis mètres. ñu ngi koy ñu ngi koy ñu ngi koy. li pro li pro kontaan naa li ñu ngi koy bàyyi xel bu baax di ko bëggee. ah sama imam Ousseyn ñu ngi lay nuyu bu baax di nuyu waa cent mètres ñëpp. dëbës mooy ko xam naa ko voilà Ousseyn ñu ngi koy bu baax. nee na kenn ku ci nekk ci yéen jox na leen tissu yéen ñi nga xamante ne yéen toog ci plateau bi ah euh, am na am na leneen encore lu ñu leen jox Seka ñu ngi koy nuyu bu baax. Wushiba ak ñoom ñëpp Ousseynou Diop ñu ngi koy nuyu. bu baax mais bisu boo soo tuuti. waaw xaaral ba euh, nekkoon ci prisonniers yéen amu leen benn message bu ngeen mën a lancer parce que tamit prisonniers dañ leen di defal parfois. ay doom ay conseils. bisu bi xam nga loolu war nga jigéen ñi mm. euh, jigéen bu gisee seen baax waaw mooy ñu ah, nekk eh, eh, campénal. waaw dafa mu jigéen ñoo xam ne bisu bisu seen seen si cee ngos wala seen yére na ni defee yaa yaa ma gën a xam seen karam. Mhm. de bisu jigéen yàlla moo ko suturaal jigéen yàlla moo ko sagal bis nañ war a jàppale jigéen ñi góor ñi am problème ndax góor. loolu moom dama koy teg ci sama sama sama sama sama soxnaay kilifa boobu madame Niang ah Eva madame soxna mooy soxnay Dage. bu ministère des sports waaw xam naa Eva Eva madame Niang Eva loolu il faut mu def ci tamit benn benn benn tawféex. léegi yow acca waxal gaa parce que tour de table bi jeex na. lu tëj man la après euh, euh, rek. tam euh, góor ñi tam am na ñoo xam ne. karaajo ndànk rek na def naa nga fekk defuñ dara bisu wala ñu tooñ la tëj la bisu. Fallou tamit Ndiaye Ndoye may na la nee na dégg nga Woshiba. ay ca leen tooñ. bari na su ma paree naa ñu jox numéro ñëpp kenn bañ ma woo du dëgg parce que bëgguma problème. comprendre dafa am ñoo xam ne Bijou ne ni tooñ da defum dara Bijou ñu ak si la Bijou yal na yàlla suñu daal. Hmm. Euh, ñu nekk ko soog ñoo xam defum dara waaye yal na yàlla suñu borom dimbali leen. Bijou. yàlla sutura si daal baax ngir yàlla dimbali xaar ñu ngi ah, ok allez vas-y waaw Bijou ñu nekk si kosoog bi daal yal na yàlla suñu borom fëgg seen bopp di wax tam ki ma defa sama bop jigéen la. waaw moo ngi dëkk kër dof ku baax ah. wax dëgg yàlla <laughs> euh, Ahmed Sador sama xarit bi ma àndal am Mohamed sama sama doom gërëmal Raja style yow tamit nag ah. defal tey ma pédicure tey wante ki ma Adja wuy ma ma Adja bisu te bisu Adja tey moo defal démb dama damaa def tey ñaar yoon dama def démb def tey bëgg tàkk macha tam di di tam euh, dëgg yàlla Euh, ki ki yaa fësal xeer bi nekk a euh, Apesi jigéen gu baax jigéen gu bam jigéen. Euh, Ameth Sador di dëkk Kër Dof bi. dëgg la merci di nuyu tam xaaral ma nuyu samay fans. yaa ma fans nuyu samay fans. émission bi jeex na jël leen seen taal tàggatoo leen taf ma di nuyu samay fans. non non jeexul jeex na kay loo bëgg. di nuyu ah, samay yaay di nuyu sëñ Ablaye Kees borom Kees. <laughs> nee na ma bis ma bëgg dégguma ne Ouzin Keita dama may na ma teena pay ne dama dama may oto am ñoo xam ne tam nañ may dig du ma jox doomu ama nit loo wax dee ko def man a man Ouzin Keita ba waaye digee defoo ko ma toog naa la tiñi ma loolu laa xam d'accord d'accord waaw di wax tam yenn Sénégal yàgg ñi ma ànd tam euh, Mastercard live sama manager Ahmed borom Saint-Louis Mohamed Diop sa Zador sama nit sama xarit xam naa xarit kii la woon kii war ko mu ñëw si man merci d'accord yéen leen ko ne ensemble ah. ma ñëw ah ensemble. dina ko jaarale ci xëccaam ngeen mën leen ko. ayca tëj Saliou Khoulé merci beaucoup. Saliou Khoulé waaw Saliou Khoulé waaw ku aay ku aay aay Saliou Khoulé moo dàqal animé ci lu yàlla bind bu baax a baax. di nuyu sama copain Tunkara di nga wax ni gën naa ko. waa LP coiffure mais LP collection. Mm-hmm. may nañ la euh, costume africain aussi ah. 10 000 problème waa LP. ayca euh, dina suñu paree nee nañ dinaa la dinaa la jox numéro ñi la ah, jox. teraanga ñëpp ah. Dame Sène aussi mi ngi lay gërëm di la nuyu bu baax. moom joom nañu benn son sax xam naa dina génn bentoo d'accord ñu ngi préparé affaire yi di bëggee tous les sénégalais sénégalaises. ayca merci beaucoup di surtout parce que ma doon jàppale. doy na dama sonn dañuy tëj émission bi. waaw di big up à Cheikh Ba Cheikh Ahmed Tidiane di la big up grand frère. di la wax puissance. <laughs> respect à Médina. Ah. dinaa la jox numéro ñëpp ki la may iPhone dinaa la jox numéro. ki la may xaalis ah, dinaa la jox numéro xaw ma ban ah. iPhone la. wax na bind message daal ay message la ñuy bind. xaw ma ku ci nekk dinaa la jox numéro ki nga xamante ne lii la diggee woon ak yow. Mohamed kaay téye ma si bi. téye ko rek yaa ko moom kenn du ko jël. mais Bijou man man loolu maa wax tamit waxaguma. ngi ñëw ci yow. ah maa ngi di nuyu tam maman Sall mais doom mère Diatou di nuy waa Passa sama mag Awali sama mag Fallou Mbaye di nuy waa Inter 3 ma dëkkoon waa Géejawaay di wax tam euh, sama famille yaay di nuyu waa Bakel di nuyu waa Louga waa Sokone waa Saint-Louis di nuyu tam waa Ndar di wax. merci beaucoup di wax ah oui mais soo paree. Abel tëjal ma micro Ousin bu mu waxal yow. ah tey nag. lan mooy maa la gën a bëgg. waaw maa maa tey. tey nag ah. nag waaw. Ah. gën kii. Nguuda Ndiaye. mi ngi gërëm ngi sant mi ngi gërëm Nguuda. xas Nguuda Ndiaye jur ngay wax. moom moom moo jur kii la wax Nguuda Ndiaye émission bi la bokk moo la gën a yabaate. ak yow la wax ne moom moo ko jur la wax Nguuda Ndiaye moo ko jur la wax. Nguuda Ndiaye moo la jur. déedéet déedéet waxul loolu. Nguuda Ndiaye wax Nguuda. ah yéen a yéen a ko tooñ ya nga mel ni nga ma ngay tooñaate. la ko gërëm nag. sa jiin bi zoom. Ah. Eh, jëlal xas. la ko gërëm nag. bi damaa tëj après mu gën a tëj moom. mu jeex ah, waaw gën a bis nag. ma tëj man mu gën a tëj. s'il te ma faalu lekk. man mi wax dëgg yow. kaa bëgg dégg nga. police ak bàyyi mu tëj normal. kaa tëjagul de. gin. gin cee gin cee cee. ah ñu lay tëjoo. ah. ñu ngi ah cee cee biisu kese. waaw boo ko awee du tëjee boo ko awee du tëjee. biisu kese. gin cee mbalume kese. gin cee man man Fallou. yow Fallou nag. Fallou. Hmm. ak ah, sama mag bi Fallou ba xam ne plateau reer bi yaa koy yóbbu yow. waaw. nu yóbbu ñaari verre plateau reer bi man maa la koy jox. man la Fallou ak sama mag bi dama la koy yóbbu. man la Fallou ak sama mag bi dama la koy yóbbu. d'accord yéen ñëpp am ngeen reer foofu. Eh, donc rek fifty jox na ñëpp reer eh, mën ma ñëw toogal toogal ayca waxal dama kontaan ci Fallou ci wax loolu giñ tete bi ayca ñëwal pare na waaw ah, pare na waaw la Ousseyn yow yow police yow yëpp nga ñu de waxal bah oui ah ok arrête de ah. faire genre s'il te plaît ah, ok chérie euh, jox na la benn blouson Gucci pour yow Fallou Keita ayca te Lil Pro bi joxee te yéen mi bariwul de <laughs> <laughs> maa yow da la maa ngi maa bisu maa ngi nuyu nag beneen couturier. mais quand même récon tey euh, réconcilier wu ma ñaar ñi mais réconcilier naa dix mille problèmes ak ak kii. ak Ouzin Keita euh, ak Pawlish Mbaye damay nuyu ah, damay nuyu beneen couturier. mais xuloo bees dafa dekki fàllu ak ñoom. damay nuyu beneen couturier. bisu bisu ba may wax sànq ba tey ba wax da nga may bàyyi waxoon ma génn ah. de génnal. génnal maa ngi nuyu. eh génnal maa ngi nuyu beneen couturier. wàcc toogal. di nuyu këcc sama xarit sama lépp ku diñ ah, ah, xaaral di nuyu këcc sa micro police accord ah, allez vas-y allez monte toogal di nuyu këcc normal ok toogal ko dal ma mag ngay xool yow dégg nga waay yow toog yow waay waay doo jàpp nga mag waay yow eh yow déggal do natal ko jàpp ci rek maa ngi a mu changé Fallou bu wax rek pesal waaw waaw bay waxee waxal. da xoolal gaa yi dañuy fore gaa yi dañuy fore. waaw waaw. mais yéen mais nu may tiimee di wax ak man. tàgg tool tool normal. tàgg tool acca. maa ngi nuyu këccëb ku baax. ku xam li mu bëgg ku xam mooy kan. besal ku am la boo ko besal day besal ki xamul yooyu de. kon baax ku xam li mu bëgg ku xam kan. ku ku nit fonk parce que dafa gis damaa gis taw si mu def acte bu rafet acte boo xam ne nii du ko gaaw a def da yow. dafa def acte boo xam ne nit di ko gaaw a def. dafa def acte boo xam ne. ay këcc ba ñeme yàlla. te gisu ko de. ay këcc ba ñeme yàlla ay lexam. ma ni pizza. këcc ba nekk États-Unis. mais Ousseyn tàggatoo yaay ku ñeme yàlla bii du lu moo du ko def. këcc dafa am lu mu te xamul de gisu ko xam nga ni gisu ko. ko. këcc allez vas-y xarit Pape Diouf. bu ko de te gisu ko de. ñeme yàlla. dama nuyu këcc. waaw depuis état waaw dama dama laajte boo xam ne du ko gaaw a def. Ah, dama damaa gis ah, benn soxna buy jaay buum. Mhm. ci tabax bi. Mhm. loolu loolu ma gën a tuuse ci àddina lu baax la mën nag barki alxuraan ko mu def ba ko am euh, di nuyu taalibe bi may na déedéet maa xam ay mbokk xam fu ndëkk mais ma mbokk mi côté Fass Mbao caay la mbokk pare continue nuy waxee dof bi eh, non Ousseyn nag Ousseyn bàyyi ki mu yeggale waaw bàyyi pare bàyyi mu pare parce que jackpot bi ma waaje wax li may nii tant que jiwu ko dégg di di nuyu beneen couturier ku baax la li ñëw raam baalu maak day raam fii ñu baalu maak may raamee ci yow xamoo sa bopp waxal yow léegi di nuyu sa jiin bi nga doon zoom ana génnaan na zoom zoom gis zoomal ma lii waaye dama xool bi tedd zoomal ñëw zoom zoomal <laughs> bi nga beneen couturier di ko nuyu baax a baax di nuyu assistant sa baax a baax parce que Serigne Sadio Mbecc biir laa war baa nga def <laughs> waaw waaw. am teel li yóbbaale ko. ok merci beaucoup. Aja bi taf tàggatoo tàggatoo waaw. <laughs> Fallou Fallou. Aja tàggatoo Karajo maa ngi ñuy tëj nii rek. Aja tàggatoo waaw. Ousseyn poussal sës may comme tàggatoo Aja. non waaw waxal gaaw. ko xanaa ku ci tàggatoo rek. waaw rapidement rek. di nuyu Aziz Thiam. waaw ah, loo ngi fëttu de. di nuyu ki dàq rax oto muy borom NBG. loo wax boo ci jaaraatee a Pes ay petit cola ay ndiir NBG maa ngi nuyu Mouhamed Niang maa ngi ko nuyu baax baax di nuyu tamit sama kilifa. Mhm. muy ki ki ma tax ma mel nii. Mhm. muy waale maa ngi koy nuyu. tukuleel ku mhm. di nuyu jawaram soxna yàlla na ko suñu borom may jàmm ci leen si na wax mat. la belle au bois dormant. la belle au di nuyu ñëpp. di nuyu. Abel. Abel. moom la jëkkëram nag continuel di nuyu tamit da ngay mën a correct rek di nuyu sama yaay Aïda Mbaye maa ngi koy nuyu baax a baax. non gaawal bala fa faal di. moo tax wax naa ne wax yow ko yaa bëgg. waaw dafa dafa dafa dafa léegi maa ngi nuyu ñëpp waa Sénégal yi nuyu naa ñëpp. d'accord Fallou. Eh je waay Fallou yu ñaan. Fallou alors euh, may remercier Karajo nag may ñu tëj ñun ñaar na may ñu ko ah. ah. mais mais Karajo nag ñu koy may sax par force. ah yow lii émission bii tey. Karajo may ñu ko. Hmm. karaaj nañ dagg alors first class moom mi nga xam ne moom abiyee tey numéro am di 77 402 17 17 merci beaucoup. et di nuyu waa Medina waxal bu first class li ma ñëw wax ko aisément dama ne. chéri Ndoye Baara First Class moo ñëw fii aisément. voilà di 77 ñëw bu ak taal yi nga sol. da nga ko mën a sañse yow yi nga doon sañse dafa doon kàcc. kon da noppi bàyyi ma yeggali. tàggool voilà Baara First Class émission daf <laughs> merci beaucoup numéro bi di. yow eh bi baal suñu laas sama doom. amul woon eh, eh, yow boo jotee di sol li karaaje di sol doo fat ah, ay Paco Jackson ay yooyu sol ñaw bi anam eh, merci beaucoup ah. numéro baara sa publicité ñëpp xam nañu. kon nga may bàyyi man ma yëgali.

ndax tey sonn naa lool lool lool lool sama sañse bu yaay ji bi ah, du Sylla waaw koy xam nga ne Mouhamed moom ci sagal ñu la dëkk ah moo génn fii tey ci ñun mu Modou santal santal rek santal Mouhamed dëgg neexul ci émission tey bi ñu ngi koy gërëm bu baax moom Mouhamed ah fële ca seen gold di gërëm Khadim Ablaye Moustapha ñoom ñëpp Maas ñoom ñëpp ñu ngi leen di nuyu di leen gërëm bu baax di ko jiital ci Bilal Mamadou Niang euh, ba bijouterie seen l'islam seen euh, seen lislaam ah fële ca Pikine ñu ngi koy gërëm bu baax di ko nuyu euh, di gërëm aussi Masata ak Masaya Ndaak Baye Modou Kane moom moo génn fii euh, ku ma gis sama make bi ak coiffure bi tey damaa brochine sama karaw gi rek bàyyi ko noonu ah euh, Amel Beauté moo fa moo fi génn Amel ah sa loxo bi yàlla na borom Sacré Cœur Amel Beauté à fois moom mooy génn ci make-up bi nice ba bëgg a dee ci ca Precious Heinz ma koy nuyu bu baax ah, dafa xaw a tawat waaye yàlla na jàmm paawaali ñu koy gërëm mbiri ah sama njëkke bi maa ngi koy gërëm moor borom cheveux yi Tafaloum euh, depuis Paris Adama Kandé 2S fii ñoom ñëpp ñu ngi leen di nuyu euh, Lil Pro dégg nga Amadou Gueye 50 moom moo génn tey ci reer bi ah neen da koy def chaque vendredi confrontation moom moo leen di jox reer euh, ñuy gërëm waa fruiteria bi fii Samba Kend Samba Kend dafa aay waaw fële ca fële ca Nord Foire en face Philippe Maguilène Senghor yow ci rond-point bi wala Philippe Senghor bi Philippe Maguilène Senghor boo ko bëggee foofu ngay am Nouroullah jour bu ngeen duggee EDK bu ngeen dugg rek da ngeen am jour Nouroullah yu baax yi. te ah, Fata Sow ñoom ñëpp ñu ngi leen di gërëm ak ñi nga xamante ne koko euh, tex xam naa ne madame Kayra tey kontaan nga. Ah, euh, lii mooy dindi stress. Ah, waaw ñoom ñëpp euh, kontaan nañ ci émission gaa yi nga xamante ñoom la ñuy àndal à chaque fois euh, Babacar borom Diamond Bash ñoom ñëpp ñu ngi leen di gërëm Miss Alima euh, Cathy euh, sama ketchup moom xam nga moom dafa bokk léegi ci rubrique émission Penda Guissé xaaral ma ñëw xaaral ma eggali ngir yàlla parce que dafa am benn message boo xamante ne kii yónnee na ma ko léegi ah message bi il faut ma il faut ma jàllale ko parce que c'est très important ah. kii nga xamante ne moom mooy Ndey Ndaak am na message bu ma yónnee il faut ma jàllale message bi Euh, s'il te eh, plaît doo toog Ahmed Tidiane maa ngi koy gërëm Abbas euh, borom RTS maa ngi koy gërëm Lamp ma koy gërëm équipe technique bi yëpp Papi euh, Bruno Libas Karadio Abel ak Euh, Bamba. Ah, ah, ah, euh, Iba Yande Iba Yande Diallo euh, la la lampe dafa ñëw tey. waaw ak Iba Yande moom mooy. Iba Yande mooy manager xasaab moom mooy manager xasaab Iba Yande d'accord. <laughs> Ketchup ñoom ñëpp ñu ngi leen di gërëm bu baax ci émission Ndeye Ndack message bi moo message bari ba message bi nekk ci suuf. Mhm. xës nu mu tuddati naka lañ koy waxee Saliou Khoule. Mhm. Habib Mbacké Ousmane gànge ñoom ñëpp ñu ngi leen DJ Padros Aba No Stress. Aba sëñ Modou Borom Kéemaan ñoom ñëpp. Aba Aba Borom Kéemaan Euh, Ndeye Ndack am na message bu am importance bu mu ma wax mais nag euh, euh, message yi. ñoo ñoo bari mënatuma wàcc ci suuf xamatuma message bi lan la. wax dëgg yàlla mais lu am importance la mais xam naa ni suba ñoom di ngeen ko setaan ci ci ci fi nga xamante ne moom mooy. vous su ma jum dinañ ko setaan. xool ko rek xool ko rek. yéen ñëpp ñu leen di jox dig daje ci beneen dindi stress encore. des na ay poobar. ay euh, ki nga xamante ne moom mooy Malo Pikine. Ah, euh, ak keneen ki naka lañ koy waxatee kii wax joyeux anniversaire nguuda nguuda be ñoom waajal leen ñooñu tamit dañuy ñëw ci spécial dindi stress yi dañu leen ko defal chaque weer <laughs> suba day concentré ak gannaaw suba xoolal ñu ngi commencé di xeex di dóorante merci euh,